vous retrouvez ñu ngi leen di nuyu merci de rester fidèle au programme de Malikia TV nous sommes le vendredi 29 mars 2024 c'est Académie Ramadan qui s'installe chez vous merci beaucoup ci vous bi ngeen taw Malika TV mu di bëggal ay bu nekk ci waxtu bi ci koor gi en espérant que vous avez passé une très très euh, bonne journée et que ndogu ngeen ci en tout cas on vous souhaite de passer la meilleure des journées la meilleure des soirées évidemment à travers bien sûr euh, notre programme li nga euh, académie Ramadan nous sommes vendredi et ce vendredi est très très spécial comme je l'ai dit tout à l'heure on est le vendredi 29 mars 2024 euh, vendredi 29 mars xel de Edem dem ci ki Mansour Ibn Aladji Malik, Masha'allah. donc tey ci ce sera une soirée très très spéciale dinañ ko fàttaliku bu baax a baax alors je serai bien sûr avec Oussas Ndiaga Samb moom nar a wétali euh, ci guddi gi émission bi nag dinañ ko xaaj ci ñaari partie euh, bi ci comme tous les vendredis d'ailleurs bi ñu tàmbalee koor gi ba légui ngeen min ko lol ci suñu ay écran buñ ci noppé li nga nak moy deuxième partie bi euh, dinañ and ak ki nga xamante nak moy Oustaz Pape Anne pour tëj li nga nak moy ndax tay comme je l'ai dit c'est une soirée très spéciale

jangal li nga xamante guddigi guddi gi moo ñu nar donc c'est une soirée très spéciale comme on l'a dit ñëpp ko doon xaar il est déjà là il est très ponctuel euh, moom duróowul ak ñeneen ñi il est très ponctuel machallah allah jërëjëf Mbaye ñu koy ñaanal gudd fan ak wergu gu yaram jàppale ne loolu yëpp ko dëxëñee ñewé ko rek bien sûr moy nek académie ramadan de ce jour béni euh, du vendredi 29 euh, mars 2024 alors en attendant de retrouver tout à l'heure nos partenaires de publicité tout de suite bien sûr dañuy dem ànd ak ki nga xamante ne mooy Dieng xam ngeen tous les vendredis xam ngeen tous les jours moo ñi indi li nga xamante moy mooy naafilu dañuy dem li nga xamante ne mooy et puis on revient sur le plateau de Académie Ramadan en attendant de vous retrouver tout à l'heure jërë ngeen jëf بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بوك جوليت بوك تيليسبكتاتور مالكيه تي في ليرو مودو يتي بير مي يتي بيتي ريو نو لين دي زياره دي بالو حق تا بال دي يالا يالا نيو يالا بولا جيغال ñoo ngi ñaan lépp lu nu jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan koor gee ngi dem yàlla na dem ak jàmm yàlla nangul ñu ko ci jàmm ñu wóor ko ci jàmm mu baay mu fi ci jàmm fekkaat ñu fi ci jàmm yàlla ñu ko yàlla defal mbokk yi bu leen fàtte ñu ngi ci fukki fan yi nga xamante ne bii ne ci lañuy ñu war a def formation njëggal formation njëggal boobu nag fa tabarakallahu ñu ngi ko war a tàmbale ci sunu biir di jéggalante ndax yàlla mën ñoo jéggal ndax ku dul jéggale yàlla du la jéggal kon yàlla yàlla boole defal ñu ko incha allahu taala mbokk yi ñu ñëw ak yéen tey ci naafila bés bi naafila bu tey bi nag fa tabaarakallahu muy dix-neuvième nuit naafila bi mu ngi toll ci juróom benn rakaa muy ñetti sëlmal julli ñaar sëlmal julli waat ñaar sëlmal julli waat ñaar sëlmal naafila bi tey bi nag rakkaa bu nekk yaa ngi ci jàng benn fatiha ak juróom-ñaari qul huwallahu ahad benn fatiha ak juróom-ñaari qul huwallahu ahad ba saar yu jeex mooy naafila tey bi naafila tey bi nag fa tabaarakallahu njëriñ yi bari na lool lool lool bokk na ci doo yëg mbugalum bàmmeel wala xataayu bàmmeel yàlla na yàlla musal sax ci mbugalum bàmmeel waaye xataayu bàmmeel doo ko yëg ndax mbokk yi yëg nga ni am na ñoo xamante ne bii ne dinañu texe waaye dañuy yëg xataayu bàmmeel yàlla ñu ci yàlla musal waaye lii nag moom boo koy defee ci barke weeru koor gi doo yëg xataayu bàmmeel ëllëg yawmal qiyaamati kenn du la gide yaay gide sa bopp yàlla yàlla boole defal ñu ko ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi looloo doon naafila bi juróom benn rakaa rakaa bu nekk fatiha ak juróom ñaari lixlaas ñaan yàlla yàlla na ñu ko yàlla nangul yàlla bu nu mar maruk neen yàlla bu nu sonn coonoog neen yal na yàlla nangul ñu lépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

Euh, jotaayu jàngale la jotaayu xam la on vous l'avait promis Inch'Allah, ce sera une soirée très spéciale ce soir alors tout de suite dañuy dem seeti suñu ay partenaires yi nga ils ont fait confiance à Malika TV rawatina ci weeru koor euh, pour faire ce i ay produits lu ci mel ni Royal mi ñuy tous les jours bijouterie Serigne Babacar Sy euh, Sam Trouble jeu de dames Canal Plus Buzik donc. bu ko bu ko defee ñu ñu ñu euh, ñu ñu euh, ànd ak ñoom bu baax a baax di leen fàttali nag ay yenn ci ay xew-xew yoo xamante ne incha allah dañ leen koy fàttali rek parce que xam ngeen ne euh, koor gi bëri na lool ay événement yoo xam ne dinañ ci ànd ak yéen incha allah ñoo ngi waajal li nga xamante ne mooy Laylatul Qadr ci Tivaouane bu leen ko fàtte incha allah ce sera en direct de Tivaouane comme ni ñu koy defee at bu jot di leen fàttali aussi. li nga xamantene moy ndogu euh, Serigne TikTok bi les jeunes talibé chers tiktokers ñoy def ndogu Serigne ñu ci talibé na nga c'est important parce que nous, ndogu Serigne ñun ci euh, bu ko rek sera le 6 avril inshallah euh, fofu ci le donc japp est face Fass le 6 avril. ñu ngi ci woo ñëpp donc euh, képp koo xam ne rek bëgg nga ci euh, dugal sa participation mën ngaa woote ci wala mën nga koo yónnee ci 76. Euh, 338 91 53 76 338 91 53 di ci nuyu nag ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ci yëngu 24 sur 24 lu ci mel Khalil ñoom Amadou Samba nyom Saliou nyom Fatima ah, ku lim Dioum xam naa ay ngeen Amadou nyom Adi al ñoom nyom macha allah ñëpp a ngi ci eh, jàpp bu baax a baax yal na leen yàlla fay ndogu Serigne Babacar le 6 avril première édition la nag foofu ci diwaanu euh, Fass Mbao ko euh,

Euh, Baboy terminus 29 euh, d'ailleurs soppey Serigne Babacar Karsila, la euh, ca diwaanu Feke nañ ak aussi loolu bokk na ci ay dimanche aussi ba léegi bu len faté li nga Mbour imam Marsou Diop dina and ak bien sûr Moy xew-xew bu mag bobu journée conférence annuelle des des des des Dara. Yumbour est environ Inch'Allah, euh, ce sera ce dimanche 31 mars foofu ci Mbour Sali incha allah ñu ngi ci woo ñëpp euh, Imam Mansour Nak jàmbaar lool ci li nga xamante ne mooy daara ji ñu may euh, Sali quartier Darou Salam, en face du marché lay xewee Inch'Allah, rabbi mu ngoog alors y a d'autres événements peut-être que je j'ai pas. Euh, jàpp ma lépp mais yaa y' a tellement yoo xamante ne ñu ngi war a xew ci li nga xamante ne euh, di di di jaajëfal aussi euh, Babacar Mbaye dabaax rek ñoom ñu ngi doon def ay salaatul faati jëmale ko ci. 29 mars bi ci li nga xamante ne mooy bésub alaaji Mansour bi def nañu 151 mille 40 salaatul fatihi def ko addiyo Seydouna Mouhamed ngir ki nga xamante ne mooy alaaji Mansour si ibna alaaji Malick Mugok yàlla yàlla fay leen ci Euh, taxawaay bu am euh, solo bobu merci beaucoup Yen ñep yi nga xamanteni ne nga ngi message Abdou Fati aussi yëgaloon nañu bësam bi mom c'est le 30 donc lolu c'est demain inshallah ba légui fofu ci diwanu Mbour conférence religieuse deuxième édition inshallah à partir de 11h Souba lay am fofu ci euh, diwanu Mbour ciossé côté mosquée Sané en face c'est Daud Ndiaye commerçant mu euh, Abdou Fati Niang la conférencier bi Cheikh Thioy Moko, nara Djang, ñu ci rendre nag hommage ki Al xam am Serigne Babacar Sy Mansour ak le Khalif général des Mourit, Mohamedoul Bachir Mbake, Yalla Yalla, yàggal leen fi merci beaucoup euh, yéen ñëpp ci seeni message suñu yaay yaayu Daira merci beaucoup ñu ngi lay bëggee bu baax a baax jërëjëf euh, Kébé ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la wax nga nuyu suñu papa si malik ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax ñoom Badou Diop fàttewuñ kenn alors tout de suite ce qu'on va faire amis téléspectateurs de Malika TV dañu dem ànd ak suñu ay partenaires euh, seetaan i publicité et puis on revient sur le plateau de Académie Ramadan c'est parti Pure, clair, légère, plus riche en magnésium et un nouveau design. L'eau de source au Royal élargit sa gamme pour vous accompagner partout. Ah, au Royal, Bourundori. Produite par Win Industries et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés. dootuma ci sikki sàkk ba mukk ba cay werante jigéen oray xaritam jigéen ñi or la ñu bëgg or moo leen ni bégal or moo nekk ci seen xol waaw waaw ba ma demee ca bijouterie Serigne Babacar si laa ko gëm demal si plaza ca rez-de-chaussée ba da ngay gis jigéen ñi di dugg ak a gi mel ni lu ma la mënta wax ndekete yoo ca bijouterie Serigne Babacar si lañ jëm ca bijou ya maa la ko wax ay néo néro la ñu fay wut ay pommi ak ay gold la ñu fay wut te nag india bi laa lay wax nii de 21 carats bi nag lii kenn nett indiwuma ko maa fa dem gis jàkk ña nga ca bracelet ya ña nga ca bàgg ya bàgg de fiançailles yi nag gis naa leen ca sautoir ya 18 carats ba 21 carats gisal chaîne yi mooy yow xanaa gisoo boucle d'oreille yi nu mu rafetee lii ma gis ca bijouterie Serigne Babacar Sy ak jigéen yama fa fekk na seen kanam yi bellee ndax kontaan lii daal góor ñi laa koy wax ndànk ñu daw wuti fa ay cadeau daal bëgg ay jigéen ñi ku ci bëgg teral goro mbaa nga bëgg teral njëkkee ca bijouterie Serigne

En ce mois béni du Ramadan, Bessic Sénégal est ravi de vous accompagner dans un esprit de partage, de joie, de spiritualité et de piété. Parce que pour Bessic Sénégal, chaque geste de générosité a un impact immense, rapprochant les cœurs et renforçant les liens entre les communautés. Bon ramadan de la part de Bessic Sénégal. Que ce mois sacré soit rempli de bénédictions et de paix pour vous et vos proches. Le ramadan nous unit. Bessie, engagé avec vous. S'il y a bien un endroit où se donnent rendez-vous toutes les femmes du Sénégal et de Dakar, et eh oui, c'est bien sûr là où se trouve le plus grand secret. Waouh, waouh, n'y ñi pas ñëpp koy déyante ku nekk naan sa morom j'ai de dame j'ai de dame waouh, waouh, j'ai de dame ma seeni nopp ma déy nous ndax nag dañoo nekk ci le koor da ngeen dressé taaj ndogu waaye tamit di waajal li nga xamante ne mooy korité war cee def lu rëy ci seen waaj kon fekk leen ma léegi ci rond point liberté 6 ci wetu JVC ndax foofu le jeu de dame nekk jeu de dame art de la table et de la décoration waaw waaw mooy taaral seen waañ taaral seen i table à manger taaral seen i kër lépp loo leen soxla ci wàllum waañ ci wàllum décoration wala ci seen table à manger fekk leen ma fii léegi ndax lépp fii la amee lu ci mel ni en porcelaine wala céramique verrerie en cristal service de table le punk, le couvert bâti de cuisine l'aise pour maison accessoires déco liste de mariage cadeau de mariage cadeau d'entreprise manam, jeu de dame bàyyiwuñu dara kon boog jigéen dans les ligues fait que ma ci point liberté si vite ci de dame vous ma jox un secret c'est di ndogu préparer bépp xew-xew boo am rawatina ay gan yu màgg woote leen léegi jeu de dame 78 290 13 13 78 290 13 13 jeu de dame art de la table et de la décoration. ak bouquet canal plus Y, nous leen koor ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaîne yu mel ni tuba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ci bouquet Canal Plus yi dem leen léegi gaaw abonné wu wala réabonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor Canal Plus rek moo ma si doy

magnésium def ci baax rawatina boo weeree boo wooree ba ba ngoon dafa baax nga koy naan ci euh, ngoon gi c'est important merci beaucoup aussi à bijouterie Serigne Babacar Sy jigéen ñëpp fa la ñuy daje pour jënd or rawatina euh, ci euh, weeru koor gi ñu nekk ñu waajal korité mais aussi jeu de daam beneen ruq la bu jigéen ñi di daje aussi jëm ci wàllum vaisselle ak lu ne mel bu leen ko fàttee Sam Straboultor moom ngeen war a àndal ci laylatu xadri gi nag jëm ca diwaanu li nga xamante ne mooy Fass yàlla yàlla yóbboog jàmm je pense qu'ils vont partir euh, dès après-demain. Ce sera le premier lundi dem euh, Canal Plus Malika TV Canal Plus 227 vous êtes nombreux à nous envoyer des messages vous êtes nombreux à nous dire que. content. Malika TV euh, Canal Plus merci beaucoup aussi à la banque Bisic bu baax a baax ci euh, weeru koor gi mu merci beaucoup amis téléspectateurs yéen ñi nga xam ne vraiment mm. euh, tout le temps yéen a ngi bàyyi xel ak foo leen mënti nekk ci àdduna bi nuyu nañ leen bu baax a baax di leen euh, jaajëfal c'est un réel plaisir euh, ñu retrouver retrouver les waat ce soir ci li nga xamante académie Ramadan bi nee naa tey ce sera une euh, soirée très spéciale euh, légui légui dinañ and ki nga xamante ne mooy Alioune Diagne pour la première partie de cette émission mais aussi ki nga xamante ne alors Oustaz Alioune Diagne yegg si na nañ la dalal alaykoum Diagne Diagne di la masawu coon na ngeen def Diagne bàyyi nañ si jàmm naka daara ji naka waa Tiwaawan macha allah bisimilah macha allah bisimilah mu ngoog merci beaucoup jërëjëf Oustaz Alioune Diagne euh, suñu papa Abdou Aziz Mbaye aussi xam naa dinañu fekk si léegi euh, ci li nga xam ne mooy euh, plateau bi Oustaz xanaa ñu ñu bàyyi la nga daal di nuyoo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah mhm. Seydou Nourou ñu ngi lay nuyu ñun tamit jërëjëf jërëjëf Diagne téléspectateur yëpp a ngi bëgg ci yow jërëjëf nuyu nag mbooleem personnelu Malikia TV waaye jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane wallaay ak rakkam Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo ak sëriñ sunu baay sëriñ Baye Sy Abdou ak mbooleem njabootu Cheikh El Hadj Malick góor jigéen mag ndaw taalibe yi soppe yeeg fu nit mën a ne rawatina nag téléspectateur Malikia TV di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaye nag di la beral loxo waaye di nuyu ki nga xam ne tey mooy sunu kilifa ci jotaay bi waaw De Abdou Bay. Mbaye mhm. ñu ngi koy nuyu di la ziar di ko ziara mhm. di dig téléspectateurs yi mhm. spécial Cheikhul Xawmi Alhaaji Mouhamadoul Mansour ci kanam tout Inshallah ci kanam tuuti lay nekk merci beaucoup euh, ki xamantene moy ne mooy Oustaz Alioune Diagne moo ñu nara euh, waxtanal ce spécial euh, Cheikhul Xawmi Mouhamadoul Mansour si Ibn Alhaaji Malik inshallah mom lañ nara waxtane tay mu nara a nekk spécial di wéyjur ci xalif général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ñu koy nuyu bu baax baax di nuyu suñu yaay yaay Aïda ak njabot gi yëpp di nuyu njabot Alaaji Maalik gi yëpp le recteur de l'université de Maodo Serigne Babacar Sy ca Tivaouane mais aussi fii ci Dakar ñu nuyu taawu baayam euh, Serigne euh, suñu papa Alaaji Malik euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax a baax ñaanal gudd fan ak wéram ak li nga xamantene moy njabot gi yëpp mu ngok merci beaucoup amis téléspectateurs alors on peut accueillir suñu papa Abdou Aziz Mbaye momit it mën nañu fekk si ah ayca bismillah Abdou Aziz Mbaye ay ayca bismillah yexil yegsil papa bisimilah. ah ñu ñu daal di suñu papa Abdou Aziz mu daal di ñëw. bis ah bisimilah. bisimilah. ñun ñëpp ñu jóg accueillir ko eh, suñu papa Abdou Aziz Mbaye mu ngoog. salaamaaleykum wa ah. rahmatulah. bi rafet na Chérif Chérif Mbaye li mu la defal moom Chérif Mbaye mi def nii rek. ah Chérif moom. Chérif Mbaye Mbaye. Mbaye a ah déet déet mënta ne. ah tur beeg tool gi. ah Saïd Nour. ah Saïd dafa grave. jërëjëf amin jërëjëf jërëjëf bisimilah Mbaye. yàlla defal la Amin amiin amiin allah. te sàmm la Amin sa kaddu. amiin incha allah. sàmm barab bi nga bi nga nekk sàmm ñi lay déglu. amiin amin incha allah. barakallahu ak ak ak ak ñi nga xam ne ñu ngi am na ñuy xool. am mhm. ñu anu dégg waaye xool nu la dëgg la. amul. Mhm, bëri na wallaay bëri na. am anu na ñuy dégg waaye xool yàlla boole lépp sàmm ñëpp. allahumma amiin bay amiin incha allah yàlla boole suñuy kilifa. jërëjëf amiin la ñu seen loxo. incha allah allahumma amiin. barakallahu amiin wa iyaakum amiin incha allah. koor yàlla na yàgg ñëw yàgg ñu defee. amiin incha allah mbay kenn bañ koo wuute nag. incha allah amiin mbay sàmm suñuy kilifa. diine jërëjëf mbay. jiitu mooy sëñ Ibrahima Sy Mouhamed Mansour. si Malick wallaay. ak ay rakam. Mhm. mboolem usatu mbay. sàmm la. moo fi nekk daay man mhm. di mhm. wax lu tedd lii. wallaay ndeysaan. Eh, di ko dégtal ñu tedd ñi. Mhm. yal nañ ci amee lu tedd. amiin amiin Baye amiin Baye incha allah. amiin Muxtaar Njaay mi nga xam ne amiin wa yàlla jaarale lii. amiin incha allah. ku ci nekk ci jël loo yàlla sàmmal ko alalam. amiin incha allah amiin sàmm képp koo xam ne am nañu média. amiin incha allah mu di asfiya. ci mhm. média. wallaay barakallahu yëpp rek. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yàlla sàmm leen. amiin wa iyaakum incha allah sallallahu alayhi wa sallam. sëriñ Maodo dañuy wax ne xatal lu yaatu baaxul. Mhm. déedéet baaxul wallaay wallaay lu yaatu moom. yaatu na ba pare. jërëjëf Mbaye. wala fii. waaw bisimilah.

donc vraiment c'est des c'est des leçons yo xamantene chaque jour suñu kilifa yi ñu ngi koy jangal bu baax a baax jërë ngeen jëf ci taw bi ngeen taw Malikia TV mu leen di bëggal rawati na ci guddik euh, weeru koor gi euh, ñu ci and ak yeen bu baax a baax di leen euh, bëggal alors maa ngi seen ñom mam Asak ñom Serigne ñom ñëpp machallah ñom ñoom ñëpp fekk si nañu légui légui xamna dinañu and ak ñun alors Ibrahima mara Ibrahima sax euh Alioune. Mm-hmm donc tay comme je le disais tout à l'heure mu nek guddi gu spécial lol mhm. go xamantene dal daal euh, ñu ngi fas waxtane waxtaanee gu tedd. Mhm. góor gu baax. Mhm. mi nga xamantene moñu euh, moo ñu euh, jural xalifa bi fi nek tay ñuy gis ci mom nak tout le temps. lepp li nga xamantene mu ngi ci way juróom bu góor waaw lolou la xarwa waaw ndax téré yi dañu wax ne waladu sirru abihi. waladu sirru abihi. deug la te damay dégg suñu wayjur bu baax. Seex Alxaaji mali Si Maodo mu ne Alaaji mën radiyallaahu taala anhu mag ñu baax ñëpp moo leen defar dëgg la ñi ci bëgg yegg ci àll yëpp ci moom lañ jaar ginnaaw Seydi Alaaji Maalik mu ne nag du defar ñëpp dese bennam bi te du ko defar loolu ne na xel du ko nangu mu ne lépp lu mu tibbal góor yàlla yi bañ koy tiitaroo. Mhm. def na ko ci benn bi di Cheikhul di Serigne Babacar Sy Mansour. ah te loolu ku xool doxalinam xool ko. Mhm. daa xam ne alwaladu sirru abihi moom nag yàlla may na ko benn wax la im faxarta bi abain. sa sawo sa mhm. laqad sadaxta walakin bi sama waladu. ndeysaan sa baay bu lay tiitaroo ak say maam. neex na ngay tiitaroo sa baay wala sa maam neex na waaye góor góorgóorlu ba ñoom ñu leen di tiitaroo. wallaay diw sama doom la nga siggi. waaye moom defe naa ne bu ñu dekkee ci yoomal xiyaamati góor yàlla yëpp présenté seeni doom kenn ku ne maa def lii maa def lii maa jur diw moom bu ne sama benn bii moo defar sama jumaayu baay ji wallaay mu wecc junni junni doom ëllëg yoomal xiyaamati macha allah di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko wér mu fekkee lépp te tal te mottali ci jàmm ñun ñëpp ñu jëriñoo ko tey daal incha allah Seydou Nour naam Euh, Cheikhul Haaji Mouhamadul Mansour kenn xamu ko kenn xamu ko arabiyun dalla an qawmihi waaye luñ ci man rek dinañ jéem incha allah bokk ko ak mbokk yi li ñu liir ci téere yi mhm. ak mag ñi doon dund ak moom fekkee ko li ñu wax ci moom lu mhm. luñ ci mën a takk rek dinañ ko jéem a partage ak euh, téléspectateurs yi mhm. incha allah pour ñu man koo béggee ndax bis bi tey la wuy woon borom incha allah bu soobee yàlla incha allah mu ba léegi sama papa ngi naan woo leen Daawgóor papa Daawgóor yegsi na Ah, ah léegi eh, eh, mu ngok paf Dao Góor yegg si na eh, macha allah mu ngok di len nuyu wat bu baax a baax ñoom ñëpp di len di len dalal jamm ci li nga xamante moy mooy gi comme j'ai dit ce sera une toi une soirée très très spéciale fi tay ci malika TV yéen ñep yi nga xamante ne ah, commencé ngeen déjà di yónnee ay messages merci beaucoup pour ces messages merci beaucoup madame Ndoye nul ñu monsieur Ndoye ca France yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di hmm. leen jaar ñëpp ñi nga xam ne euh, ñu ngi ñuy bàyyi xel di leen euh, kontaane jërë ngeen jëf ci temps bi ak ànd bi ngeen ànd li nga xamante ne ak euh, Marika TV ñu leen di bégal bu baax a baax rawatina ci li nga xamante ne mooy guddi gi kontaan nañu trop merci beaucoup alors xam naa léegi-léegi incha allah dañuy bàyyi pap Abdou Aziz mu daal di ñuy tijjil li nga xamante ne mooy guddi gi Euh, bu fekkee lépp yëpp lépp yemb na rek wala ñu dem seetaan yi ay publicité euh, comme ça ñëpp mën a installé wu bu baax a baax ñëpp toog bu baax ñu dem ànd ak waa ñu seetaan publicité puis on revient sur le plateau où se donne rendez-vous toutes les femmes du Sénégal et de Dakar. Et oui, c'est bien sûr là où se trouve le plus grand secret. Waouh, waouh, jigéen ñi nous ne koy pas ku nekk naan sa morom jeu de dame J'ai de dame Waouh, waouh. jeu de dame jigéen ñi Allez, ma c'est une autre déy leen ndax nag dañoo nekk ci weeru koor waaye tamit di waajal li nga xamante ne mooy korité war cee def lu rëy ci seen waañ kon fekk leen ma léegi ci rond point liberté 6 ci wetu JVC ndax foofu le jeu de dame nekk jeu de dame art de la table et de la décoration waaw waaw mooy taaral seen waañ taaral seen i table à manger taaral seen i kër lépp loo leen soxla ci wàllum waañ ci wàllum décoration wala ci seen table à manger fekk leen ma fii léegi ndax lépp fii la amee lu ci mel ni vaissellerie en porcelaine wala céramique verrerie en cristal service de table le le le couvert ba de cuisine l'aise pour maison accessoires déco liste de mariage cadeau de mariage cadeau d'entreprise manam, j'ai de dame bàyyiwuñu dara kon boog dans les ligues, fait que point liberté si de dame ma jox leen secret accompagner partout. Ah. au Royal Burundori. Produite par Win industrie et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés. En ce mois béni du Ramadan, Bessic Sénégal est ravi de vous accompagner dans un esprit de partage, de joie, de spiritualité et de piété. Parce que pour Bessic Sénégal, chaque geste de générosité a un impact immense, rapprochant les cœurs et renforçant les liens entre les communautés. Bon ramadan de la part de Bessic Sénégal. Que ce mois sacré soit rempli de bénédictions et de paix pour vous et vos proches. Le ramadan nous unit. Bessie, engagé avec vous. dootuma ci sikki sàkk ba mukk ba cay werante jigéen or ay xaritam jigéen ñi or la ñu bëgg or moo leen ni bëggal or moo nekk ci seen xol waaw waaw ba ma demee ca bijouterie Serigne Babacar si laa ko gëm demal si plaza ca rez de ba da ngay gis jigéen ñi di dugg ak a génn jaabante gi mel ni lu ma la mënta wax ndekete yoo ca bijouterie Serigne Babacar si lañ jëm ca bijou ya maa la ko wax ay néo néro la ñu fay wut ay pomi ak ay gold la ñu fay wut te nag india bi laa lay wax nii de 21 carats bi nag lii kenn nettali fàttewuma ko maa fa dem gis jàkk ña nga ca bracelet ya ña nga ca bàgg ya bàgg de yi nag gis naa leen ca sautoir ya 18 carats ba 21 carats gisal chaîne yi mooy yow xanaa gisoo boucle d'oreille yi nu mu rafetee lii ma gis ca bijouterie Serigne Babacar Sy ak jigéen ya ma fa fekk ne seen kanam yi bellee ndax kontaan lii daal góor ñi laa koy wax ndànk ñu daw wuti fa ay kado daal di bëggal soxna yi jigéen ñi ku ci bëgg teral goro mbaa nga bëgg teral njëkkee ca bijouterie Serigne Voilà, ba wala ma jox leen numéro téléphone bi moo gën a gaaw wooteel ci 77 669 86 95 mën ngaa woote ci 77 885 46 46 ou appelé le 33 825 61 61 bijouterie Sérine Babacar Sy ñanga ca si plaza ca suuf ca de chaussée ba bijouterie Sérine Babacar Sy mii nag ma révélé secret pur clair légère plus riche en magnésium et un nouveau design. L'eau de source au Royal élargit sa gamme pour vous accompagner partout. Ah. Eau Royale, Burundori. Produite par Win Industries et disponible partout au Sénégal dans les boutiques et supermarchés. ak bouquet canal plus yii dund leen koor gu ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaîne yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wu wala rey abonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé daal canal plus rek moo ma si doy bien un endroit où se donnent rendez-vous toutes les femmes du Sénégal et de Dakar. Et oui, c'est bien sûr là où se trouve Le plus grand secret. Waouh, waouh, jigéen ñi ñoom ñëpp koy déyante ku nekk naan sa morom j'ai de dame J'ai de dame waouh, waouh, j'ai de dame ma seeni nopp ma déy leen ndax nag dañoo nekk ci weeru koor da ngeen dressé taaj ndogu waaye tamit di waajal li nga xamante ne korité war cee def lu rëy ci seen waañ kon bokk fekk ma point liberté 6 ci ndax le jeu de dame jeu de dame art de la table et de la décoration waaw waaw mooy taaral seen waañ table à manger taaral seen i kër lépp loo leen ci wàllum ci décoration wala ci table à manger fekk leen ma ndax la amee lu ci mel ni en porcelaine wala céramique verrerie en cristal service de table le le le tutamblé couvert ba ustensile de cuisine l'aise pour maison accessoires déco liste de mariage cadeau de mariage cadeau d'entreprise manam, jeux de dame ou dara kon code jigéen dans les leen fait que ma rond point liberté si fii ci wetu de dame bu ko ma jox secret il ni préparer bépp xew-xew am rawatina ay gan yu màgg jeu de Dame, 78 290 13 13 78 290 13 13 jeu de dames art de la table et de la décoration. merci beaucoup amis téléspectateurs il est 22 h passé exactement de 38 euh, minutes ici à Malika TV Nous euh, émission Ramadan vous aurez compris que euh, c'est une soirée spéciale alors soirée spéciale tout sera spécial alors comme ni ma Abdul Aziz Mbaye mu dal ñi tejul guddi gi ñu ngi nuyu bu baaxa baax suñu papa daaw góor momit it uh, na di nuyu ñepp ñi nga xamantene uh, ñom lañu andal ñu àndal uh, papa mën nañ tambali bismillah bu ko defé ñu ñu tambali tàmbali en attendant ñeneen ñi di ñu fekk ci inshallah bu soobee yalla bismillah mu ngi jël micro bi. nubuwati aliman waadamu bayna

الجنة عالم وادم بين الماء والطين ساويا الأنياء غدا للسوائل المعسرات بواليا وقفت بها حيرانا من لا عجل أسعى أكاتم الزفرات الجوانع باكيا أسائلها أنا ليا أين يمهمون وسمى صداها أن طيب المناديا وكيف يجيب القول رسم معثر عثر آي إلا ثلاث الأسافية وإلا رمادا بارسا متقطعا كخط كتابه يحط المزانية عيتباع حورا أوانس قرة أنتانا إلا أدنى البيوت تهاديا يرن على صانبان بأوديها ويبسم عن قلقوان أواقيا فيا لك من نور عرفت عودا سبحت بها ذيل الشبيبة الضافية صحبت باشم الأنوف جهادعا أنادي كأس الصبابة صافية فدعا كذاك الدهر واليا من العمر فيها قد أطعت الملاهيا أضعت ثمين العمر من غير طيل ولم أنتبه حتى أتى الشيخ جائيا أضعت ثمين العمر من غير طائل ولم تتب حتى أتى الشيب جائيا لعل ذا العمر في زمن السباع يكفروا أني أقمت ليالي بطيبة بين القبر أنقوا التي ومنبري خير رسل أتلو يا لدى مجد شمس الحقيقة قد حوى أنا رنا أفق الهدى والبيان أدافع نار الشوق تلزع من أوى عشاي وأدري من شؤون يمان ولما بلغنا من سر البدر وانجلى للرسول حتى أزال من وجه ما بيا رسول حميد هو محمد نبي سما فوقاه بمئتين سامية غفور حميد حامد ومحمد نبي سما فوق سما كيد رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السماء كإنسان هو الدوحة العظمى يظل بذلي ممد يمن بلا من وينفي المعاسي هو الدوحة العظمى يظل بذله يمن بلا من ويكفي المعاش يمن بلا من وينفي المعاصي يمن بلا من وينفي المعاصي يمن بلا من من في المعاصي يا مصطفى يمن بلا من في المعاصي يمن بلا من في المعاصي يمن بلا من في المعاصي يمن بلا من في المعاصي السماء يمن بلا من ويغفر معاسي هو المنتهى مدا وبخرا وسودة هو المنتجى يوما يشيب النواصية وأول من لبى ألست بربكم هو الروح والرحمن كان مناجيا وغرى صبلا وارحينا مسبحا وجاب بحورا عشرة متدانيا وكان نبيا بالنبوة عالما على أحمد وادم بين الماء والدين زانيا وكان نبيا نبوة عالما وادم بين الماء والتين ذا والامداد من فضل المنه نواحيا تولولاه لم تدر الخليقة قدره يتلى أحمد في فتح الله الكنوز البوادية في فتح الله الكنوز البوادية تداول كنوز البواتي إيه، فتح الله المجاد جل جلاله والامداد من فضل المنير نواحيا ويولاه لم تدر الخليقة قدره به فتح الله الكنوز البوادية لو الحمد لله جل جلاله والإمداد من فضل المنير الأواحية سن بني وله له لم تد الخليقة قد رواه فتح الله الكنوز البوادية تقلبت بالأسلام بمن صلب ساجد الاسد المازا ما زمنتك ما فقلبت بأسلام محظوظ من الأملاك وترقى المراقية بمولدك دنيا الزهد وتزينت ودان الأرباب العقول الأمانية من مولدك الإيمان صار منكسا والماء يقعون بعد ما كان جاريا وفي خمود النار غادت بحيرة فخر لو الأصنام تلك الآلية واقشع ليل الشك والكفر والمحال واصبح اسم الدين للناس باديا تلاقى الوحوش الخالقين مسرة ودان له من كان فيه مماريا وسل حبا دموعا غزيرة لا تلتفي لغيب الحب ثانيا تلتفت للغيب بالحب فانيا لا تلتفت للغيب بالحب فانيا لا تلتفت للغيب

وتكسو من الانوار من كان عاليا محبته يمن وامن ورحمه وتكسو من الانوار من كان عاليا محبته من الغرباء الغني من كان نائيا فقد جاءه جبريل بوحي من وناب عليا عنه يد الايادي وياسير للاعداء ياخذ قبضه ويقرا ان يغشيهم متهاديا يصاحب الصديق في كل موطن ويكره في الغير ما كان يصاحب الصديق في كل موطن ويكره في الغير ما كان خاشيا يصاحب الصديق في كل موطن ويقلع في الخير ما كان يصاحبه الصديق في كل موطن ويقلع في الخير ما كان خاسيا يصاحبه الصديق في كل موطن ويقلع في الخير العجب الله والعذاب حمامة وبالعنكبوت أسمح لابن راسيا وصاحب سدين في كل موطن ويقلعوا بالغيب ما كان خاشيا

ما كان خاشيا والرفق موقع يصاحب الصديق في كل موطن ويكلم بالغار ما كان خاشيا ويكلم بالغار ما كان خاشيا ويكلم بالغار نقل وودعه من الغرباء الغر من كان خاشيا وقد جاءوا جبريل محيابرا وناب عليا عن يرجو الآلية وياسين الأعداء يأخذ قبضة ويقرأ في الخير هكذا خاشيا وياسين الأعداء يأخذ قبضة ويقرأه إذ يوشيهم قتايا يصاحب الصديق في كل موطن ويكلو في الغير ما كان خاشيا ويحفظه من قلبي وأمامي وكان إله العرش للكل واليا وقد حجب الله العدا بحمامة وبالعنكبوت أصبح الراس نبي الله جم الفضائل ديدنا فوادل تدري البيوت الهوائية هو المصطفى المختار بدأ ومختمل به ختم الله رسالتها هادية فأكرم من أسرى به الله ليلة باخترق السبع طباق العوالية وبقاء قوسين منير لربي لنا تنزل هذا المعالي ولم يتنادي في البرية كلها مصطفى جغن بروم نبوس مبو ولم يتنادي إيه. في البرية كلها دنوك إذ خوقت وحدك خاليا وابو أجل ليس بمسفين يرد آيات الجد مواقيا ويدعو إلى الله الماشر رحمة ويأمر بالمعروف ينهى المناهيا بتصديق صديق نال سعادة بتكذيب نهل دون المخايا ولله ما أبدى ولله ما اختفى من المعجزات الغر تعلو الدرى عصى الجيش أصبحنا فيها وصار عسيب النخل سيفا بكفه لدى أحد تبعد التواليا وقد حبست شمس النار لأجلي مرارا وكان الجيش منهم واديا شق له بدر السماء وستره قد انشق حتى صار لله ساميا من يبي يقولون سحر مستمر ثبات ومن زجر حتى أراه يقولون سحر مستمر ثبات يروح التعب دواء النصيب الهدى وقيد العدا ما زلت تلهي فلولاك ما أتاب الإله لآدم ولا نسمور ابن عمران جاريا بك نار بردل للخليل قد أصبحت وصارت سلاما لا تدر ولا والصلاوات والصلوات الغيابات نجد مأمنا ليوسف حتى صار في الملك زاويا وأنت دعاء النور في ظلماتي يا لا أحمد وزايل بطن بلا بلاهيا أجاب لك المولى سليمان إذ دعاه ونال بي ملك عن يا فأدنى نعود إن الصبا لم تحب به فريح نقح يستقر يا سيد من يا من حملنا كعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائيا أنقت ما الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يبدو الهوى والمسايا أنقت ما الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يبدو الهوى والمسايا مرسوم عندك أبتغي بفضلك ما يمحو هوى المزايا وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما سأت وإني أتجه للآجيا فحاشاك عن الباب بابك واقف بي مستجير كيف يلقى المخازيا نحو بحر قطام لا تقدر الدلا بشاطي من جاء أخذ وزرناكما بعد البقيع ما يزار بها زرنا واشفي غراميا وزر واقترب حك عادلا مرور ليالي البدر لا صلاة وتسليم على شافع الورى وال واصحاب وجاء المسائي صلاة وتسليم على شر الوالي وأصحاب أجاب المسائي صلاة وتسليم هلا التلبس فيها بعين الغير منعدم مولانا صليا يا إلهي وزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم سيدي كانت إلى أخوال زائرة وفي الإياب بقضاءات من الأكبر نجات لا تحل قوله والله منتصف ولا أخف من الجائمين العالم مولانا أم أيمن بعد الأم تحمله لجدي شيبة الحمد للرضا العظيم على مالنا وصلي عيانه رمد في شدة الآلام مالنا وصلي يا إلهي وزيا أبدا أن محمدنا مختار في القيد مولى مالنا وبإله um يزن لكي يهنئه في الملك والإيمان وصليا يا المرضي وبشره بأصدق القول صدقا غير موتى ولما إذا وصل يا إله هي القول صدقا غير متهم غير متهم على مالك وصلي يا إله وهي وزيا أبدا أن محمد محمدنا المختار بلطيف مولى مالك كما غدا في يسر تسقيم صاحبه من أجل يا ربي ويب اليوت ولما وصلي يا الهي هيوتي أبدا وأن محمد ولدنا الفتان غدا بالنبي غدا لجنا بالحمد وعبد منا بالوسيلة جد المشفق الرائع على مالك نادي صلى علينا وصلي يا إلهي وتيا أبدا وأن محمدا المختار في القيد مولى مالنا سيبالي في مروري مولى مالنا وصليا يا إلهي وزيا أبدا أدعو

يلحقه لحظة شديدة ونظر إلى الإيمان مالنا وصليا يا إله ورهي وزيا أبدا ووالي بدر سيدنا ينير تلك الدياجي غير معتاد حول مالنا وصلي يا إلهي وجهي أبدا أن بدل المختار هدى مالنا لما تحقق ما قد ظن وقال لعم ضوابه رددنه فأهل المكر فيه ما مالنا وصليها لما تحقق ما قد ظن وقال لعمه ارتدنه فأهل المكر فيه ما وصل يا يا إلهي وزيا أبدا مدنا لنا مقتار مولى مالك إيه، وقل زبير وعباس إلى يمن سار به عمجيد عد واحتاج مولى مالك إيه، وصلي يا إلهي لي وديا ابدا وعنا محمدا مختار في القيد هدى وقل زبير وعن عباس الى يمن يمن سار به عبدي الحد وحده أتاك علماء لنا وصلي يا إلهي وزيا أبدا أن محمدنا المختار بالقيل علماء لنا خير الورى شهد يوم الفجر له عشرون عاما ليس مفطنا على مالنا وصليا يا إلهي وثيا أبدا وأبدا أن محمدا أنا المختار في القيد قد مالنا وهكذا شهد الله هادي شفيع لنا علم الفضول الذي بالأشرف ذي مولى ملكنا وصلي يا إلهي وجزيا أبدا أن محمد ولنا المختار في القيام لولا مالنا إن النجود عنك نل العلف وما التلاوة ببطل دين اليماني منشئ الكلمة لولا مالنا وصلي يا مننا وعام خمس وعشرين الرجوع إلى شام وميسورة في خدمة الكرم وصلي يا إله مغلب عنا محمد أملنا المختار ذي القيد أولى مالك وعام خمس وعشرين الرجوع إلى شام وميزورة في ختمة الدار أولى مالك مصليا يا إلهي وسيا أبدا وأن مدنا المختار في القيد ودمى للنار العجائب إرهوى خاء الغصون له إذلاله في اشتداد الحر برك بالركب مالكنا وصليا يا إلهي وزيا أبدا أن أنا مختار في القيادة مالكنا قد شاب إليه راهي وأنا طورا يقول نبي يرجى بالأمم مالنا وصليا يا إلهي وزيا أبدا وانا محمدا وختار بالقيد يا يا بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم سيد الحاج مالك جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم سبحان من جاء بالأمم جاء بالأمم بالأمم بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم بالأمم جاء بالأمم يا بالأمم سبحان ما جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم جاء بالأمم صليا يا إله في وجهي أبدا أبدا أنا محمد محمد لنا المختار في سبحان علمنا وصلي يا إله في وجهي أبدا أبدا على محمد أبدا ومن المختار بالقدم قبل النساء صدقت أولاده خرجوا خرجوا منها سوى البدر والجد إبراهيم ذلوة سيد الملكة قبل النساء صدقت صدقة أولاده خرجوا خرجوا من هاس والبدر إبراهيم ذلوة قبل النساء صدقت وصدقت أولاده عدو خرجوا سوى البدر إبراهيم جلوة أولى بالعقبان قبل النزاع صدقت صدقت أولاده خرجوا خرجوا منها سوى البدر إبراهيم ذو الولد ما مولانا يا ربي صل على محمود سيدي محمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولا منوصا سيد الحاج مالك يا ربي صل على على محمود سيدنا واقبل شفاعته فينا ولم نطفئ sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf Mbaye yal na yàlla fay la yàlla guddal sa fan wér-gu-yaram gu bëree lool macha allah maa ngi lay jox maa ngi lay jox nuyoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Tall Macky ah sama sëriñ maa ngi koy ziar bu baax yónnee na la fi àddee fukki junni ah bu baax maa ngi koy ziar de waaw ki maa ko ziyaar bu baax mhm. di ko ziyaar bu baax a baax di ziyaar ay maamam la ko ci yëpp rek mhm. mu dem ba ca mag ña incha allah yàlla yàlla yokk fanam yokk wéram amin amin taal amin amin Seydi Tall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ah, da ci nuyu waale Thierno Bachir al Khalifa ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaar ca Louga njaboote bépp incha allah

kon mun nañoo tàmbali jotaay ji ci alaaji Mansour radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu wa allahu bi barakaati mhm. wa jaalana min ñu ngi wax ne ñu ngi ubbee sunu kàddu ci sant yàlla julli ci yonent bi muslu ci seytaane ak bakkan bëgg a jéem nab nabi benn ci góoru yàlla yi ku ñuy tuddee cheikhul xawmi alhaaji mouhamadul mansour si ibnu seydil haaji maalik si rakku sëriñ babacar si waaye nag magu baax malik ak mouhamadul habib sunu maam yi tedd yooyu uh-huh. di wax ne ñun ñi koy waxtaanee xamuñu ci moom dara ndax dunduñoo ak moom uh-huh. waaye yàlla may nañu ñu fekkee lenn ci magi Tiwaawan yi dund ak ñoom uh-huh. ñu amoon yitte di leen laaj ñu di ñu wax ñuy bind li ci desit li ñu yër ci ay mbindam ñu tegtaloo ci xam ne kii jaamub yàlla la bu yàlla baaxal mhm. di wax ne yow mi may dégg tey may bëgg a waxtaan ci seexul xaw mi mhm. jàppaar na képp kuy nitu yàlla rek maa ngi waxtaan ci yow mhm. ndax nitu yàlla yi benn lañ dëgg la ah, ah awliyaa yi taxta xibaab yi laa yaarifuhum ina ana ila ana wax di dëgg sunu borom yàlla moo wax ci xadisul qudsi na awliyaa yi sama wëllu yi taxta xibaab yi ñu ngi ci sama suufu bergende laa yaarifuhum kenn xamu leen illaa ana wax di man yooyu rek maa xam sama góor yàlla yi comme yàlla moo ne moom rek moo xam ay góor yàlla uh-huh. te amuñu benn sikki sàkk na cheikhul xaw mi mii bëgg a benn wëllu yi la ci wëllu yi laayi taala uh-huh. alhaaji mahamadul mansour mu ngi juddoo ci diggante ñaari wayjur yu tedd waalidayni ni waaye azizayni kenn ki ñu di ko tuddee cheikh alhaaji malik si kenn ki ñu di ko tuddee soxna sofiyatu ñang uh-huh. yàlla dogal soxna Sofiyatu Ñang moomu nga xam ne mooy way juram wu jigéen moom maam Alaaji Malick ñoo bokk benn maam ok ñu di ko tuddee Maaram Mbàkke ndax mm. Amadou Farimata Mbàkke ak Thierno Farimata Mbàkke ak Ibra Farimata Mbàkke ñoo bokk ndey ak baay Maaram Mbàkke moo leen jur Amadou Farimata Mbàkke moo jur maam moor Anta Sali mu jur maam Balla Aysa maam Balla Aysa mu jur maam Mor Anta Sali mu jur maam Cheikhul Khadim mm-hmm. Ibra Farimata Mbàkke moo jur xadi mbàkke moo jur xadi mbàkke mu jur ngaññang mu jur maam safiyatu muy woy juram ceerno farimata mbàkke moo jur maam mati mbàkke mu jur maam ousmane mu jur seydil haaji malik muy woy juram moo tax moo doon nidaayam laqad tarabba fi hijri xaalihi nijaayam la waaye wa waalidihi mooy woy juram waaye wa cheyqihi mooy sëriñam wa saahibihi moom rek a doon àndaale moom ci doomam yi wa aminihi moo doon homme de confiance am sëriñ babacar si doomu cheikh alhaaji malik la خليفه شيخ الحاج مالي لا مام الحاج مالي موي سيرينم مام الحاج عبد دوم شيخ الحاج مالي لا شيخ الحاج مالي نجايام لا موي سيرينم مام حبيب نونو وايو كين كون بيغا اندك موم سي سيدي الحاج مالي با ييغي سي ñaar داغا تاخاو موي وصاحبه وامينه كو خامن سا ديرو دوند مسو تاخلي كو سي الحاج مالي كوكو شيخ القوم موكا ام سي دومامي وامينه موم ريك موم لا مام مودو دون دوغ سي بير نيك بالا ген موي نجاك balaa tëdd mooy mujj ci moom mhm. yàlla may ko nag Seydi Maalik yar ko waaye wax naa ne dafa jóge ci ñaari kilifa yu tedd dinaa la wax kan mooy Seydi Maalik waaye ma wax la tuuti ci maam Safiyatu Ñang mhm. ndax jigéen ju baax mooy jur doom ju baax mhm. wal baladu tayibu yaxruju nabaatu bi isni rabbi waaye la waaye wala si xabusa la yaxruju ila nakida sunu maam alaaji Maalik dafa wóolarante woon ak góor yàlla gu baax gu ñëw alaaji Ahmad Baro Njëgan ca waaye maam Ahmad Bara suñ jullee fajar wala suba teel ba pare wala ñu julli gee balaa ñoo lalli malaan mi si Malik danaan góor Ahmad Baro maa ngi sàkku ci mbooloo mi ñu ñaanalal ma ci sama njaboot ñaar hmm. maa laaji Baro joxe ndox ñu ñaan di ko def di ko def ba mu yàgg Baro na ko waa sëriñ bi ñaar ñooñu ngay ñaanlu xanaa mënuñoo xam seen tur mun a jaru ko yàlla xam na ko hmm. mu ne ko ah, dama doon sàkku xam leen bu ma wéetee di leen ñaanal mu ko kenn ki mooy Ñang kenn ki mooy Alaaji Ngom Lutak tax mu ne ko maam Sofi wéretu daf maa defal lu jafe mhm. alaaji rawaan defal ma lu jafe mhm. mu ne ko Sofiyatu lu mu la defal mu ne ko ba ma àndeek moom ba ñu di màgget mosta yëkkati sama si dutu jë mosuma koo laajte te newu ma maa ngi ci sa wet mos ci lu xamul te lu mu am wërsëg mag njabootam bàyyee na ma ko te loolu yombul ci jigéen alaaji rawaan lu tax mu ne ko mosumaa defal lu ma sàkku ci moom ma alaaji rawaan defal lu ma lu ma ko ñaan may lu ko laaj ma mu ne ko lépp loo xam ne yaakaar na ne bëgg naa ko balaa ma ko laaj mu jox ma ko hmm. moo tax ñaar ñii di kenn ci ñoom ci man kii di jigéen kii di góor ma bëgg nga ñaanalal ma leen mu yar ko nag beneen ci tegtal ci maam maam Safiyatu hmm. nga xam ne war na jur góoru yàlla bu mel ni alaaji Mansour hmm. dinaa dugg ci moom maam alaaji Maali wax naa la ne daanu lekk ceeb du lekk maafe du lekk mbaxal du lekk roti du naan supp du naan boisson yi ñuy lekk yëpp di ko lekk waaye laaxu bisaab laaxu daxaar la daan lekk mhm. te duñ ko suukar duñ ko xorom benn bis Seydi Haaji Malick di ko toggaloo maam Safiyatu maam Safiyatu juum xorom ko xorom sa ëpp mhm. keroog lañ wax ne keroo lañ gis Haaji Malick di tibb di lekk bu daan lekk baaraam yi lay samp waaye muy tibb di lekk rek bi ñu paree ñu ne nañ jox taalibe yi ñu barkeelu taalibe bu ñam mu weex rek nga ne ñu ne lan ñu ne dafa saf xorom ñu wax ko a Haaji Malick ñu wax ko maam Safiyatu mu ñëw ne ko asangi ah, bi daal di ñam mu ëpp xorom mu ne ko ah, lu tax waxoo ma ne dafa xorom si daa ëpp mu ne ko Safiyatu ñang baalo ñaata ak yaa ngi ma koy toggal ma soo koo xorom tey boo juumee xorom ko mu ëpp ma am wan la ne la xorom nga te bëgguma xorom kon ma baadoo la mm-hmm. nit ku lay defal lu baax ba bis mu juum war nga koo mën a muñal waaye soxlawuma lool xam nga maam Safiyatu nu mu def mm-hmm. dafa wut ñetti juróomi juróomi ngërdu dem ba ca sawiya ba fa sëñ Bay Abdou di jàngalee sunu sëriñ mm-hmm. sukk di raam ba ci kër gu mag fi Mamadou toog ci mbaar bi mu yëkkati jox ko ko ne ko si dëgg la baal nga ma waaye damay jéggalu pour ñu xam ne dëgg la ci man ñetti dërëmu ngir du yooyu defe naa tey jëral na ko ñetti wëli kon jigéen ju baax moo ko jur macha allah maam alaaji maal na yar ko ci anam boo xam ne maam alaaji maam alaaji Mansour nee na mhm. vingt deux ans mosumaa tàqali ko si Aji waaye mosumaa gëdd mosumaa mere mosuma koo trahir wax na wax bu rëy ne ku alaaji Maalik defar lu mu la defaree man xam naa mu ne si Aji maal ñi mu defar ñett lañ ñi mu defar laataa maa gane àdduna ak ñi mu defar bi ma ganee àdduna te mësooraguma ak ñi mu defar bi ma mësooree mu ne ñi mu defar laataa maa gane àdduna kon ku ne lam la defaree wax na ma ko ñi ma defar bi ma juddoo te mësooraguma ku muy defar damay toog ci sa wet ñi mu defar bi ma mësooree ku lam la defaree man la ko sant man nag lam ma defaree waxu ko kenn ku dul yàlla ak man ak moom oh. moo tax mbiram doy waar moo tax Seydi Maalik ko bil adabi wa bil waqaari damay wax ne maam sa féetu ñang mii wéy juróom benn daggitu aaya rek la am ci kër si Hadji Malick benn daggitu aaya xusil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin xusil afwa mooy alaaji Mansour xol baa yaatu lu yàlla bind moo ci dàq mun wa amur bil urfi mooy da baax Malick di wéy jur Abdou Aziz mii ñu doon lépp lu baax loo xam ne bu ko waxee ñëpp jëriñu jaral na ko lu ne waaye wa arid anil jahilina mooy cheikhul qawm mooy alaaji Mouhamadul Habib bu la kenn tardeel wóotal ak sa borom di wut yàlla ba keroog nga am yàlla ma ne ñetti daggitu aaya jigéen daan na sëy ñu yebee ko aaya maam sofiyatu daggitu aaya lañ ko jox mu am ci ñetti góor yàlla yàlla da koo natt mu sëy ak Cheikh Alhaji Mali ñu ànd baal ma ci waxin bi taaloo fa doom muy maam sof muy maam maam mu amaat doom muy maam Asietu Malick amaat doom muy maam Umu Malick amaat doom muy maam doom muy maam maam Nafisatu Malick maam Sofi maam maam maam Sofiyatu ñag ko asi jigéen de buy sëy ci kër am doom ju góor baax na mhm. waaye alquran nee na walay sa sakaru kalun sa ma bëggoon am doom ju baax ju góor yoo xam ne bu ëllëgee ma mën ne am naa ko fi mu ne ko ah su fekkee da ngaa bëgg doom comme doom rek de mën naa ko ñaar waaye soo bëggee doom ju ñuy jaay nag kooku day jaay kooku njëg lay jaay oh. lu na ko si Malick luy doom ju ñuy jar di jaay mu ne doom joo xam ne dañ koy defaree ca xadara ba góor yàlla yëpp di ko njëkkante alaaji Malick yor loxoom foqati ko ñaan ko yàlla mu jaar ci sa biir bu màggee ñëpp saggo ko mu ne ko si boobu laa bëgg mu ne ko day jaay maam Sofiatu dem di cuub di dajale di cuub di dajale ba xaalis ba bari mu jënd ci ñetti xàbbanu kuy yu nag ñëw ne ko si Malick mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko léegi da jar naa ko ci la ko ñaanal boo tax mu daan wax ne man muraad laa dañ maa sàkku ca xadara ba indi ma ñetti nag ñett yu nekk di doom di benn doom oh. muy alaaji Abdu alaaji Habib di cheikhul xaw mi mi ñu bëgg a waxtaane benn naar dafa ñëw siyaar si Seydi Hadji Malick جالس سرين بابكر سي جالس سيد حاج مالي جالس سرين بابكر جالس امام منصور جالس امام عبد جالس امام حبيب داري جيل خلي امام بن نا ابو بكر بكر مرجان سباته في نهجه اذ هو ناسك ومحمد المنصور يتلو كبيرهم وعبد العزيز السبل من بعد ناسك كذاك حبيب الله در جمال عليه من الرحمن منته مالك من ابو بكر ينا سرين بابكر من بكر مغي دوغ دور اي مرجان سباته bu soobee yàlla toogaayam bi dina yàgg te lu Malick defoon muy benn dina ko fukkeel lu doon fukk waaye dina ko juróomeel lu doon fukkoon dina ko téeméera waaye bi ma soxla mooy waa Mouhamadul Mansour alaaji Mouhamadul Mansour mi yetloo kabiruhum boo bëggee xool alaaji Malick entière ju dara manqué wul oh. ni ñuy jëlee Malick rek dëxañ ko ci jénn jëmm mu ne kooku kenn la ci doomam mooy alaaji Mansour moo tax mu daan wax ne eh Babacar si doomu Maodo la eh Abdoul Aziz doomu Maodo da man du ma doomu Maodo man daggit laa ci Maodo eh. ana bi daatul mun Cheikh Alhaaji Malick hmm. man dogitu Cheikh Alhaaji maal la mu ne bi yàllay bind Maodo suuf sam bind dafa tibb dafa ëpp la ca des ci lañ ma bind alaaji Ahmed dem sookoon la ko wax waliyun min awliya illahi taala mu ne ko eh xalaa xamoo ne Amadou mu naa ah, mu ne ko bi yàllay bind Maodo suuf si mu bind la man la ca bind doomi Maodo yëpp da a jur man du ma doomu Maodo man daggit laa ci Maodo téye loxoom alaaji Ahmed dem sunu maam waliyu boobu ba nee na jaaro bi mu takk deret ji doon génn ci xaal la ko ko waxee na ko yarax bàyyi ko ne ko jamono ngi ñëw nga xam ci dara mu ne ma toog ñu tàgge mu baaba Babacar ma ñëw jaale ko balaa muy ñëw ci yoon ñu tàgg ma alaaji Mansour ma pare fekk sëñ Babacar ñu denc ko ci buntu këram denc bu rafet daal di defar sengri yi wëralu ko ma ne alaaji Mansour fu ñu ko denc ñu ne ñu ngi ko denc ci kanam baayam ci ginnaaw baayam ma ne ah nit buñ koy bind fu ñu tëbboon bind ko mhm. foofa lañ koy delloo maa ngi doo ko xam alaaji Mansour lu mu ma wax si dax mi te ko mag tëddul ak baayam sëñ Babacar ko mag tëddul ak baayam mu bokk ci caatu Maodo day tëdd ak Cheikh kon mu ngi tegtal ne biddaatu Malick fa yàlla tibboon bind Maodo fa la moo tax li coow li bari bari moom rek moo wéetoog bàyyam ci tëddaay góor yàlla bu yëw arfulu fi aswaabi an'umikum mu ni wal ayshu fi raga jin wal jaddu mahmuda farbadu ala al ibni sukurul walidayni wa bawday وانسك النار ما زلت أرفل في أثوابي بكم من والعيش في رمى جد والجد محمود بقرب والعيش في غابة جد والجد والعيش في رغم جد والجد والمسود فرض على الابن وشكر الوالدين فهدي والد البر يا أستاذ ارسل بينه في كل يوم لنا لوح يذكرنا

ستطالبنا وبعد ما خبت وجه الكريم بسط لنا بفيدك والتيسير مسبوط وبعد ما خبت وجه الكريم بسط لنا بفيدك والتيسير مسبوط زرنا لنا بفيضك والتيسير مجبورنا لنا بفيضك بفيضك انظر من زرنا لنا بفيضك والتيسير مسرور dëggal ci wax bi maa ziltu maa ziltu arfulu fi athwaabi anumikum wal aysu fi raqadin wal jaddu mahmud maa ziltu la wax maa ziltu ba alaaji malik alaaji malik maa moom la woon ca ruuxul arwaax ca aalamul arwaax maa ngi moom loon maa ziltu maa ngi ci biir Maodo Maodoy dund ci kaw suuf maag moom ci néeg bi Maodo génn àdduna ñëpp maag moom maa ziltu dañu ma woon dañu ma tëdduma dañ foo ma dégg nga wax benn di maa siltu maa bi naafiyatun lil jins bi kulli zamanin min al azmani jamono bu ne man ma mën ko ca alamul arwaax maa sama baay maa siltu fi alamil asbaax maa siltu fi alamil barzax maa siltu wa fi yawmil qiyamati maa siltu musuma dañ maag alaaji Maalik di nekk fi aswaabi anuumikum ci xeetu xéewal gi nga ma defal dumb bu mu ñuy sol xéewal gi lan la da ngay ñoo ci aan laaj rew du kenn man kenn duma laaj rew du Maodo rek lañuy laaj ku siyaar mo duma duggalé aswa bi anu bi ko da ngay def am téeméer kenn la laaj yow du soxul da ngay laaj dem fay laaj laaj Habib ba ci soxna yi man kenn laaj man ci alfu ma ngi rek la Muhammadu Rasulullahi wala zina maa huwa ashiddaa alal Muhammadu Rasulullahi wala zina maa huwa babakar. أشد دعوانا الكفر عمر بن الخطاب وخما بينهم موي سيدنا عثمان تريهم ركعا سجدا يبتغون فضل موي سيدنا علي محمد رسول الله موي سيدنا مالك والذين ما هم على المنصور ممكن تاكلكم أشد دعوانا الكفار سرين بابك رحماء بينهم على جاب تريهم ركان سجدا يبتقون فد شيخ الحاج محمد الحبيب <laughs> مو أمالي شيخ الحاج مالك ما تبقى bi ngay tàgg yéeg nga ne boo yegaan ci bayit boobu sunu maam Abdou dala naan maa ko ñee muy Seydina Aboubacar. waaw waaw maa ko bi ta bi tasdiqi naa la saadatan. waaw waaye bi taksi bihi naa la la jojul maqaasiya. bayit bi waxtaan naa ci ak xalifa bi du ñàkk mu ngi may dégg. suñu mujj jotaay bu yàgg ci bayit bi lañ wax. mu firil ma ko firi bopp dinaa ci ñëw ci biir téere bi. moom moo ma ko firil moom xalifa bi ci boppam mu may dégg. keroog fa la fekk bëdd. defe naa mi dëkk Mansour Thiaw mi dëkk Ndar moom fa la ko fekk keroog Cheikh El Hadj man Mansour li gën a yéeme ci moom dégg ngeen yéen ñëpp maam Abdou ne El Hadj Mbaye dégg Paate Mbaye 1906 la leen Seydi Hadji Malick jël leen teg leen ci loxo El man Mansour ba léegi tàqalikoo la na moom Padago loolu du la jaaxal 1900 la gën a àdduna 1906 ñu jox ko taalibe ku war a toll ci jàng ñu lay jox koo jàngal yow loolu jaaxalul la. ok xaw ma dégg xam de. Oh. ñetti sëriñ a am. seyku tarbiya seyku taalim seyku nit boo koy jox ni da nga koy jàng pour mu xamal ko wala nga jàng ko pour mu yar ko wala nga jàng jox ko ko pour mu yéeg ko yow nga toll ci 6 ans wala toll ci naan la alifun ba ñu jël ku nekk taalibe jox la waaye Pape Dago loolu jaaxalul ku toll ci jàng ñu jox la yëguloo ne Cheikh El Hadji Mamadou Mansour bi muy am ñetti weer la am turandoo ah. bi muy am ñetti at la commencé ren di xarum tabaski ba nu muy génnaat na ñetti at la commencé ren di xarum tabaski dafa judduwaale cëram wala dégg nga li may wax boo seetloo ci mbind maam Abdou bi muy tagg si yonent bi bi muy tagg bi muy tagg dafa nag kasal xalifatu bahrul ulumi naafi dalaali kasa xabibu safiil ilahi saafil qisaali waaye bi mu yegsee ci alaaji Mansour dafa ne wa muhammadul mansuuri hadimil misaali hadimil misaal la wax Serigne Babacar mu ne mooy géeju xam-xam yi alaaji Habib mooy borom jikko yi tedd yi alaaji Mamadul Mansour mu ne mooy ki niroowul ak kenn kenn melut ni moom ci famille bi li ko yàlla may moom rek la ko may addimul misaal du samay wax nag شيخي شيوخ حسن ثمالي كذا الخليفة بحر قلوبنا في الضلال يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي كذا الخليفة بحر البلور منا في الضلال كذا الخليفة بحر البلور منا في الضلال يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي معطي النفاق وسيدي محمد المنصور العديم المثال كذا الصفي حبيب الإله صافي الخصال يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي محب النفال وسيدي أحمد المنصور الحبيب المثال هكذا صبي حبيب الى صاحب الخصال يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والكمال ومنتهى كل شكوى مولاي موطن النفائي قال عبد حميد يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال واخنا كو تي بنين واخ inni alaftu bi rabbil bayti wa turi ma in ra'aytu fatan fina ka suri. inni naka man ala abdu halaftu ma ngi gëñ bi rabbil bayti ci yalla mi borom néeg bi wa turi ak yalla mi gën ci wa turi wa sini ma in ra'aytu musuma gis te duma gis fatan ascam fina bop nek na ci ñun ka mansuur mu ni doog alaaji mansuur li ko ko may nak dafa xey wo sëñ musa Ñang ne ko sëñ mu ah, ko sama papa dafa am luma daba bëgg damaa bëgg nga ñaanal mako ma dem jangi sëñ Moussa wax ko ko mu ree na ko ah, Amadou boo ko ak moom xalaat maam Alaaji Mansour Amadou la ko daan wooye woo ko mu ñëw mu ne ko Amadou mu naa mu ne ko toogal ci sama wet ñu denn ma jàngal la téere yi ba mu jeex jàngal la jamono jàngale li ci ginnaaw téere yi moo tax mu daan wax ne eh eh mbaa yë ne ñett dama koy dégg xaw ma ko damaa dégg ñu di ko wax eh ñett dama kaa dégg ah ñu ne amu ah, ne iñaan xamu ko xaw ma iñaan parce que lu nit di am ba mu fees sama bët xaw ma ko xamu ko man la mun a réer xamu ko bi ma màggee xam ne Mansour laa tudd si laa sant ku ñu wax moo maa liggéey sama baay ku ñu wax Safiyatooy sama yaay lu góor yàlla di xam keroog laa ko xam. xaw ma fu ma ko jàngee. waaw. ñetteel bi ban la mën a ragal sama fit mosta parce que fañ ma yóbbu la ma teg sama bët sama mosu mosumaa xaw ma ko moo tax moo tax aslaxta xaaliya sirran لست محتفلا عالية سرا لست محتفلا سوى الرضا ورضاكم في فرض على الابن لله شكر الوالدين يا مولى والد البر يا استاذ غرس فبايا اصلحت حالي لي سرا لست معتهلا فرضا ورضاكم في تسليما على الابن وشكر الوالدين مولى الوالد البر يا استاذ فرصه فبايا يبدو تربية باب إبليس فابتسمت منه المكارم وتنوف زالي دين الله تربية إبليس فابتسمت منه المكارم أصلحت حالي سرا كن لما أخذ يونا aslaxta yéwénal nga defar nga xaaliya sama àdduna ak sama àllaaxira sirran fu kenn fekkewul lastu amatul lu may yëngal ci àdduna waaye mu andi ñaari wax Abdou Aziz si war rida wari daakum sëñ war rida wari daakum soxlawuma lu rida bu njëkk bi dafa am alif ak bu mujj bi amul alif laam damirul la am si war rida wari daakum soxlawuma lu dul ñaar xam nga lu tax ah. sama àdduna man alaaji Mansour ñaar rek laa ciy si war ridaa lu dul ngërëmal yàlla war ridaa kom ak sa jaajëf baay am na ko de lu neexul yàlla neexul wutuma ko ci àdduna dépassé naa gaay yi moo tax daan na wax eh eh eh dégg ñu ne Mansour la bul laajaa ah, maa tooñ ah ñu ne ku ngeen dégg ne alaaji Mansour ak moom la eh maa ko tooñaa ah. ñu ne amu ne histoire fu mu amee ñaara am da dal ci kaw nit mbaa nit dal ci sa kaw man ëpp naa fu may dalee ci kaw nit waaye ku bëgg dal ci sama kaw ma moytu la ndax la ma ñam ku ko xas ba ñaw dootoo yëgati ku lay song taxaafaltu xataa xila laysa lahu min ijan walakin na ma dëbul kiraamu taxaaful dëgg la de taxaafultu damay sàkkan sàkkanlu di fàtte faatu ba damay dégg waatu ñaan laysa lahu min ijan góor gi ñorul mu ne walakin na ma dëbul kiraamu gis nga humul kiraamu wa ashaabu rasuli mu ne walakin na ma dëbul kiraamu dëgg la ca ñañu tànn ca góor yàlla yi fa la ma sama baay boole ca classement booba laa bokk te foofa ku fa toll wala mën a dépassé lu nit di waxati moo tax taw dal jalaalati sabran dal jalaalati sabran qalbukum salima ya mujbal xawbi sudin wal bayadi سلمى يا معجب القوم سود والبيان غالب الصوت جلالاتي صبرا خلقكم سلمى يا معجب القوم سود والبيان الحاجم زرناك زرناك الرسول يا سندي يا مدد الدين يا مأوى المساكين والزور قد جلالتي وصبرا قلبكم سلما واو يا قلب القوم زود الحاج منصور عبدك من باع لخير يا بشرى سلام غالبا زرت جلالتي صبرا خلقكم سلمان لك ذا المجد والعلم بل حامل محاسين منصور قد جلالاتي وصبر الخلق سلما ولو يا مجب الخوف سود الحاج منصور أعني بنجلة شيخ القوم كتابا بجالات ظل بشياطين من زار فتجالات صبر الخلق زيتا ومجد الغرب زود والبيات البحر والدكم يا حاملا كلنا كل الأحيان من زرت جلالاتي صبرا خلقكم سلفا يا مذب الفوق سود والبادي ضد منشر لو مواردكم يا حبيل الكلام كل الأعايب

أنا بدوى ونفسا تجاوز الملاقي فالبيت عاقا وسوادي يا حاملا كلنا كل أحسن يا حاملا كلنا كل الأحسن هم جبن صدلك اسمع قد رزقكم ذا فشاء كل الأماكن يا عاملا كلنا كل الأماكن فلتر فلتر عاملا كلنا كل الأماكن حبيلا كلنا كل الأعز الطيب منصورا حبيلا كلنا العادي منصور عز الطيب كلنا كل الأعز فتنا من جاء وتوت حاجاتي مفجلت بوتي مقام بوتي مدى ci walu diine ji ak bokk bi yi man soor ko doxal habilan kallana kulla xasida bi sunu wayjur bu baax Cheikh El Hadj Kebe moo def ci sëriñam Cheikhul Qawmi. papay Pape Makhtar Kebe mooy papay Pape Makhtar Kebe. sëriñ Babacar si ku yàlla baaxal la dinaa ñëw ci relation am ak sëñ Babacar si bu ñu ko temps bi mayee ak relation ak yonent bi ak relation am ak Seydi Hadji Malick ñetti tomb yooyu dinaa ci wax xasida bi maam alaaji Kebe mu ngi ko defaree Thiès kër maam Alimatu si Seydi Mansour dem alaaji Mansour ku la ne gis naa ko bi ma ko fekkee mu toog moom rek a toog waxoo dëgg ki nga gis du moom si di nuy naa la maa laaj Mansour boo koy gis ñetti mandarga yi benn day am bu dul moom ki nga gis du moom danga koo jaawale danga koy fekk mbooloo wër ko mbaa nga fekk mu yorub téere mbaa mu yor kurus bu dul ñetti ki nga gis jinne la du moom fu mu toog mbooloo koy wër mbooloo mu ko wër ku ci koo ci daagu nga jaawale kook moom daan na téye kurus gi di liir téere bi nit di ko nuyu mu di ko fay ngay wax mu di la tontu te bu waree wàccee kurus gi dina ko wàccee te li muy liir làmmiñ wi du noppi dégg wax bi daan na bind ba mu nekk ko mu të dafa mel ni sunu sëriñ mooy dugg sëriñ Sidi Ahmed si bu maam Abdou Aziz Dabakh Malick bisimilah ci <laughs> dem hmm? jox yéen ñëpp am ngeen jëf. jërëjëf. man maa ngi laaj. wallaahi wallaahi bàyyi sama nekk yàlla waaye waa tarix bi sax nga leen di déglu wallaahi laa. est-ce que yàlla na waa kaw a ngi leen di béré waa suuf a ngi leen di béré. est-ce que est-ce que est-ce que jërëjëf jërëjëf nañ la woo ci kanam dinañ la woo papa ci kanam. dafa dafa daaru nañ ko woo ci kanam. waaw moom moom mooy nee naa la ñeent boo ko déggee rek bankal sa baaraam kenn la Sidi. Seexul xaw mi boo ko déggee kenn la waaye xalifa bi ñaari kaale soo ko déggee kenn la sëriñu mag ñi soo ko déggee kenn la ki ñu wufal baayam soo ko déggee kenn la xacoowul ak ñett yooyu kenn doy na sëkk lu waaye am jëlal nee na seddu naa في كل يوم لنا الله يذكرنا من حكمة منك فيها الدهر ترسيل سما باي داف ما فورم بوبي قال داف من دنج كو لاج من من سما لبس دي اجمال البسه الله بلباس الكمال جرجف مات يومول باي لاج منصور كين مسو كو خيب وسينه باسرف القسال لوي تيد نغا جيكو بو توك موم خم منصور في من نتاي دا دينا وسام ايامي jërëjëf suusu de yi fa laxtu xam naa alwara góoru yàlla yi bu ko firee mbindee fi maalaaji mën soo rawante wala góoru yàlla nit mbindee fi alwara yàlla yi ci biir mbindee fi sartulwara sharta araftu gëstu naa ba gis natt naa natt naa alwara góoru yàlla yëpp naa natt ñu ne ko Sénégal ngay mu ne déedéet sarxan fa jant bay fenkee ca mag wa xarban ak fii muy soyee ca doju ngor naa yëpp sharqan wa gharban wala ara waaye ba ma gisoo wara ara teguma sama bët gisuma ku misli fatal mansuuri ku mel ni astam su mel ni alaaji mansuur gisuma ko ci góor yàlla yi fii saa ilil wara ci mboolem góor yàlla yi nag ida sabaqa al aqwaamu yowman li lay xamal ne waxul isa sabaqal wara mu ne isa sabaqal aqwaam ulaika al qawm moo tax ñu tuddee ko sayidul qawmi xam nga luy seydil xaw mi fukk rek lañ duñ weesu fukk rek lañuy doon alxaw mu fukk lañ boo demee ci xadratu ilahiya di laaj yonent bi xamuñ ko booy laaj seydina seex xamuñu ko boo demee ci xadra ba xamuñu ko xadra ba ñett fay séese xaw ma laaj kan sayidul xadarati ak wakilul xadarati ak seexul xaw إذا سبق الأقوام يوما إذا سبق بويرا وانت الأقوام غورو يالي يوما بس بمنا دون تبسي loo ca teg fi sa'ir alwara ci mboore mbindee fi yowman ilal ula yakunu yowman benn bis ilal awaaj ilal ula jëm ci kawe ci daraja waxumay darajay àdduna de kawe ci wàllu yàlla yakunu day nekk seexul xawmi way juru xalifa bi yakunu mal wara yakunu imam al wara al imamu fi al amami wa tax mu nekk imam al wara al imamu la fi al xalfi wa innama fi al wara

boo gisee Serigne Mansour borom daara yi bi ko maam Abdou di jox xilaafa gi ne ko xat wu liitu moo sirral xilaafati pour nga nekk xut bu samaan dafa jafe parce que il faut nga bokk ci cheikh ci gars yi xaw mi te fukk la ñuy doon ak ki leen ki leen seize muy fukk ak benn ki ñuy tuddee ki ñuy tuddee xut bu samaan seize bi muy toog ki ko war a remplacer gauche droitam lay toog ki ko war a remplacer toog góosam kii kii bu jógee kii muy toog waaye kii balaa jóg dina may kii place bi juróom-ñaari at moo tax Serigne Babacar Sy waxoon ne doon naa Maodo juróom-ñaari at balaa muy dem su waree jóg pour génn àdduna xam day jóg de frorte ki toogoon ci yam nday ndeyjooram ñëw toog ki toogoon càmmooy ñëw remplacé ñu jël ci ab daali kenn ki leen di remplacé nag mooy seexul xaw bi kii classé maanaam kii classé kooku ay seexul xaw bi ñu baax ñëpp am ah Abdou Ba ma leeral foofu alaaji seexul xaw mi demal demal ñi doon xalaat mhm. ba xol yëpp a ngi malaat li nga yoroon ku koy jalaat ba tax ñu tàggoog suñuy naqar mooy sa nijaay tam moo la yar Maodo mm. moo ko jur mooy na jaayam moo ko yar moo ko xamal yoonu si kër samat na door samp kër ana ci yar ma nga moo ey Mansour doo denc ci dërëm juróom te yaa ko sopp sa borom yaa lewet ba mel ni xar يكون إمام الورى والورى ورى يكون إمام في الورى والورى يكون إمام في الورى والورى jërëjëf ma من من قصيدة بي باب على alaaji kebe moo ko ñu nuyu suñu baay suñu sëriñ sëriñ Sidi Ahmed si Dabaax. wallaay si Malick. ku ko dégg xam nga daanu na. wallaay ci baayam la ko jëlee Cheikhul hadji abdou Dabaax. Eh. mo daan wax mag ñi ñom bàyyi goon gaajo. na la eh gëmu leen ma da ngeen may nax. mën Mansoor ngeen gëm. mo fess del ci seen xol yi. waye bo demee ci qasida bi qasida bi Abdaz nee naa la sëñ babakar ci ku bax la. kenn day mom dañu joggé Thiès mu bind ko jox ko ñom ñoom rew du ñom Baye Mori na leen bu goor gi toogee rek yëkëti leen ko ak Baye mawdu Buri gor gi tok rek ñu yëkëti bayit ma lañ mën so tok di jaayu rek ba bayit bi jeex kenn yolle ko dem ci señ babakar ne ko doomu Fatim ale jangi bëgg a tas kër gi xam nga lu yàq Sénégal da nga naan daa góor a baax ñu ne abdoulay Gaara Sénégal boo ne diwa baax ñu ne nee na diwa bon kenn sañatu la wax diwa baax daa dem ca sëñ babakar ne ko doomu Fatim ale jangi bëgg a tas kër gi mu ne ah mu ne ko déggoo li ma alaaji mën soo لولاك نولاك نبكي فقد والدكم يا حاملا كلنا كل الاهاين كون يوبلو في ده يا حاملا كلنا ديغل بي واخ بو نياو سن باو كان كو انديل مقاصيد مو بند كو مونا كو لا كي لي واخ منصور امنا لو تي ديس <laughs> ظاهر منصور لا خم خمول باطن سيدي حاج بالي مونا كو يو داغا ام كولا گنال منصور تي كاوسو بوكو امي دا واخ كو بابكر من بابكر اوما كو بوكو گنال bo amé kuko gënal demal wax ko lo wax kenen ci lu li nekkul ci mom li ci man so rek lañ ko wax mu nekk ci mom suñ Babacar kenn du moom da ko xam mu ne sadal musafiri lum mu ca teg misbaaxul bilaadi manil musafir yéen ñi kenn ci mamun su dul jox yóbbal yóbbal bis mu ne nga yóbbu sa kër yóbbal mamun Sour joxul la ko saadul musaafiri ila man ila hadati ilahiya boy tukki ci hadara ba yóbbal bi gëna gaaw moy xam alaaji Mansour moo tax mu daan wax tibb ci suuf si moo ma gën a yomb moo ma gën a jëfee defar nit parce que nitu yàlla yi ñett lañ ki mën a gént gis yonent bi bis boo mënee gént gis yonent bi na la nit moytu yaa ngi commencé am cër ci yàlla ku mën a gént gis yonent bi du dem safara man raani fil manaami faqat raani li anna saytaana laa yatamasalu waaw waaw première buntu wilaaya mooy gént gis yonent bi foo fekk ku gis yonent bi am na cër ci lum bon bon am na fu ko yàlla kalaas ñaareel bi mooy nga man koo gis sa yaqasatan laa ma waaye gudd lay doon ñetteel bi nga mën koo gis digg bëccëg naaj wi na dàng ñeenteel bi nga man koo wan keneen ku dul yow ñeent yi la nit yàlla yu wuti dégg mhm. ma tasal la ko bàyyi daago foo fekk ku mën a gént gis yurint bi te mënu koo gis te mënu koo gis yaqasatan kooka dafay dog a dàmbal dàmbali bis bu yëgee ne am na cër ci yàlla yàqul foo fekk ku ko mën a gis bëccëg foo fekk ku ko mën a gis bëccëg te mënu koo gis guddi kooka commen commencé na dépassé ay jéego waaye moom it bi gisee boppam yàqu le ku ko mën a gis nag bëccëg dàng te du guddi kooku passé na fu mu yàqule waaye ku ko mën a waraate ne ku ko bañ yàqu moo tax mu daanu eh, sama der bi dañ ko tookee ah eh dañu teg sama door bi ah ku ci xas ba seex dootoo yàbbi ah parce que mboole ginnaaw bi maa ngi lay wax benn secret. Hmm. xam nga lu andi borom ñaari kaala yi. du kaala yu muy kaala woo ah ñaari kaala am. waaw kaala gi ngay laxas pour ci sharia ak gi ngay laxasoo ci xaqiqa. Hmm. maalaaj maal daf ko tariya tarbiya ci sharia ba mu mat mu kaala ko. tarbiya ko ci xaqiqa ba muy dem maalaaj maali mbooleem nitu yàlla yi gi mu am ñëpp bawuma kenn unanimité kenn ku ne ijaasa itlaq la la bindal ci tariqatu tijaani بن إجازة البند موي إجازة التربية الأرواح إلى حضرة المتين بن لتي بند شيخ القوم لكم الله كين بن بين إجازة البند تربية الأرواح إلى حضرة المتين من سيد مالي بن لتي بند شيخ القوم لكم جو على جمنسو موتاخ مودان توك اك موجوت داجالا جوم نيار فكي بونكال يوبولن تير مبي مات خم غلوم لين دوي بلا تاخلي كو نيو موان لا moo Papa laji Mbay neena na dama tok Papa laji Mbay bim mu koy li keureum moy papa Abdou Aziz Mam Faama na dama tok beug di Cheikhul xaw mi ma e e eh eh Alaaji Mbay duul sa tala ñu dem mu ne ma duy sa tala gaddu der ñu dem ba ci buntu segi. fofu ñu denc mam Jokkel mu ne ma eh togal fi xaar ma sotil ma ma japp ma sotil mu jël mom der bi jëm ci biir na bi mi dem bay beug a rek sama xel na yar man de alaji Mansour man sama top gi nga ko top ak sëg yi buma fi fekke jom man alaji man sama andak ak mom bi mba dina ma jik mu ne ko e eh, e eh, eh, alaaj mbay toogal mu toog mu jox ko benn dog papa alaaj mbay nee na matul ñaar fukk ci salaatul faatiha fi ma tiim di ko jox ma gis jëmm ju taxaw tànki xees fecc ma ne xees gis mu rafet mu nuyu ma na ma taay na ma eh yow la ma mën soo di wax mu ne ma daanu xam papa alaaj mën soo fëgg ko mu ne ko e waaye yow yaa ngaa xalaat gis yonent bi moom la seex ngaa xam bu ma la wane yonent bi foo jëm limla wa rabbaka shaykhun fi ah kooku bokk ci ah. wallaahi ah? limla lu du mel ورباك ورباك تيارنا لا شيخ في مروءته شيخ سرين بوخنا مولا يارال بوبام تي بير نيغو بوبام وفي سياستي واي يارنا لا تي يارنا لا تي ديكو دي رافيت با كو مانا ديم جفلانتك موم وفي سياستي فرد الأحاديث وفي وفي سياسته فرد الأحاديث فرد الأحاديث مو يار لا تي سياسه بو رافيت boo xam ne dafa dem ba nekk farata yow ba alaaji Mansour ku muy jëflanteel jëf ju baax rek la xam rabbaak sa baay yar na la de ku la yar mu ne man ma alaaji Mansour raqaaka sa baay bi mu la yaree pare daf laa yéege fëggal la buntee ba nga bokk ci góor yàlla taaxusta jumla tama taaxusta ba nga làq jumla tataam jumla tamba mbooleem loo xam ne law kamaalal lawoo ñeel na kamaala góor yàlla yu mat yi wa xilmal mu defal la ca lewet gu mat sëkk bil qawaanini jërëjëf Abdou Aziz ma continuer macha allah. lawlaaka lawlaaka dabqi faqda waalidukum. kalla. kalla. boo kullu juum. kalla naa kalla kulla. yaa xaamilan kalla naa kulla. kalla kalla killa du ñu benn. mu ne xam lu ma gën a impressionné ci El Hadj Mansour mu ne ah mu ne dafa mën a yenu benke ñeenkay jaam ñi. yaa xaamilan yow mi nga xam ne yaay aji yenu kallanaa ñi bon te bandi te saay-saay te wuyu di def lu leen neex yaa leen di jël dugal leen ci seen biir defar leen ba ñu mel na yàlla bëgg mooy xaamilan kallanaa kaana sahlan kaana dafa nekkoon maam alaaji mën soo sahlan di ko accessible waaye nag am personnalité du ko ñëw yàpp ko de jawaadal tabe lool ci daraja ak ci xam-xam ak ci baatin laynal nooy lool ba lu njabootu ku mu jabootu rek nga ñeme ko waaye am xel lool man jaaho ku dikkal ko di tawat fi xaajaatihi ci aajo mu fajal ko ko moom Cheikhul Khadim jaaho di tawat xaajaatihi mu fajal man jaaho di tawat xaajaatihi mu fajal man jaaho di tawat xaajaatihi mu fajal man jaaho di tawat xaajaatihi rajaan moo tax mbaaxam gi yaa ngi koy xamee ci ñi mu yar kenn rek doy na la ci misaal soxna Fatou Sy Mansour ku mos a toog ak soxna Fatou Sy Mansour xam ne kii ku ñu defar la bari na ku ñuy wax cër ci yàlla soxna Fatou Sy Mansour tax moo ko lu yàlla dal Maam Alaaji Mansour ku mu yar ñu xam la ci dal Maam Alaaji Mansour ku mu yar ñu xam la ci nite Maam Alaaji Mansour ku mu yar ñu xam la ci xam àdduna waaye ku mu yar ñu xam la ci dëgg dafa mën a defar nit lépp luy jafe-jafe ci nit daf koy soppi ba mu jeex tàkk moo tax biñ ko laajee Cheikh El Hadji li mu am lu ko ko may ci xamam dama lu ma daf ne lim laa waza umarul fuuti yu wusulatuhu hmm. waaye wa qutbuna Ahmad Tijaani madda Sénégal mu ne amu ah, ne kuy bañ ma Maodo tiim la hmm. leeral la sa xol dina dëkk ci tàng hmm. lu tax mu ne lim laa pourquoi pas waza ta lamp bi umarul fuuti wusulatuhu prise biñ ko branché mooy Cheikh Omar Fuuti waaye waqut bu naa Ahmada Tidiane ma daaw projecteur bi koy leeral mooy Cheikhou Tidiane boobu làmp ku mu nekk mu naqadi mu tiim la <laughs> mu Seydi Hadji Malick kenn du Seydi Hadji Malick wa jaddu Umarul Fuuti wax nga bu wér li moo dooy nonom baadaw xaqan du ma ko sosal wa jaddu Umarul Fuuti wax na bu wér mhm. بموضوع موضوعنا بعده حقا ما قصص عاملته بسياسات بها انتفعوا ووصلوا للعلي مصدر لقاي مصل ووصلوا للعلي مصدر لقاي مصل

dama ko wara leral ñetti at la am ñuy tabaski ñettelu atam abdou mbay ñuy laal xaar yi di reey mawlaaju malik taxaw ñu julli ji ba mu ne eh, ana bu mamadou mansour xaru mansour ñu ne mansour mu ne mi ci neeg ñu ne mu ne eh, ki dafa ray ah yeen ñi ray fi yeen ñi fi ray ëpp leen ko responsabilité ah nañ génne bosam rendi ko moo bi daal toog ba mu yàgg xaal bi jàpp ko mu ne eh fii ku fi dul sëñ babacar maay sa baay ah ku fi dul sëñ babacar si maay sa baay ci wàllu yàlla maanaam dafa feesoon dell dell dell akramahu llahu bi awdahil kabaali lépp luy nit di matoo di ko tiitaroo yàlla daf ko déchargé Cheikhul Hadji Mamadou Mansour kam min kabirin yura waaye wal jahlu saxarahu waaye kam min saxirin yura wal ilmu kabbarahu léeg-léeg nga romb xale bu tuuti xeeb ko fekk na fa mu yegg ci yàlla kenn xamu ko waaye léeg-léeg nga romb mag xeeb ko lu tax bi mu bi Maam Alaaji Maalik génn àdduna Sëriñ Sukkari ju bind leetal ne Cheikh a ko feeñ ne Maam Alaaji Maalik bàyyi na fi ñeenti doom kenn ku ne xalifa la mat na toogaay waaw kenn ki 37 ans moo ca mag moom mi ñuy wax Cheikhul Xawmi 22 ans maam El Hadj Abdou 18 ans maam El Hadj Abib 16 ans mu ne ku ci na mbat na xalifa Cheikh Cheikh nee na ku ne xalifa am waaye fal yuqaddim bi man bu mel ni yusamma Ababakrin wa illaa takun fitnatun nañ jël ci jox Babacar moo tax doomu Seex Ajmaal yëpp ay xutbu lañu. Oh. doomam yëpp moo tax mu wax ne li ma dund ak sama baay diiru 22 ans benn yoon la ma laaj maa li mos a mere Abdou loolu yombul de. nee na benn yoon la ko Seydi Maalik ma a mere mu yëg ne def na Maodo lu ko naqari ñu ne ko kañ mu ne mu xaddami dañ ñëw siyaar si ko ñu añ ba pare Maodo jox ma benn saaru layu def ci def ci def ci gura na ma jox ko mag ñi sa baay yi nee na may jox ba yegg ci génn góor gu xër ci Seydi Maalik du ma tudd tërëb mu ne ma mën soo dama bëgg nga ñam guro bi ma ne ko doy na mu insisté ma bañ ko rusal ma jëy guro bi seex ci tuuti Seydi li a ngi toog mu jóg rek dugg néegam tëju ba mag ñi bëgg dem mu ñëw yeewi leen ma xool ko ci moom kanam goo ma sa xam ma ne ko papa dama laa def loo naqari mu ne ko lool loo ma def mu ne ko Mansour li ma def ci yow di la préparé balaa ngaa ñëw ak yaakaar ji ma am ci yow rusoo sa ay moromu bàyyi toog ngay sàqamit ñu di la xool yaakaaroon naa ni rus manam dañ ko defar dañ koo defar rusoo sa moromu bàyyi toog ngay sàqamit Muhammad Nazifi ma laaj mun so li gën a yow Seydou Nour mas mm. nga dégg kuy bind lettre arabe te dala golax dari bi mu waré tari alxuraan si ajmaali ci mam Sayar Mbay la ko yóbbu tari pour mu tari mam Sayar Mbay na balaa maa déglu nit xala mu jàng ku ma sa fekk mu jàng benn fekk mu sumun bëgg tari alxuraan sama kanam bismillah ñu sét ben jotaay la tok tari ko ne ko ma ngi daw sama baay dama yoni mu ne ko dom dig ma man ma dom doom tari de wala fenda de ku jangul tari de gis na ko tay foko ko muna mu ne ah, man dama sama bay di ma lo waxaf bi bu bëggee waxaf ne ma soor sooru si bal ma juróomi xisib juróomi xisib yi ma jàng rek mokal mu ne ma demal tari ji ma tari man non la ko mokalé de nek ba fi nan alifun baa un taa un damay dox mission rek bam nek nekk mu ne ma dee jangal sa waxaf may jang waxaf mu ne demal sa baay seer mbay teyel ñew na teyel nga ba mokal na maa ngi dem wasalaam dafa am lol kenn du ko topando <laughs> motax Mawlaji malik bi muy man na man dem ba ci Maroc ba néeg ba maam man soo duggee ci kër Cheikh Mahamadou Nazir fii mu bind duratul xarida maam alaaji Maalik ci biir muraasali daf ko waxoon na ko maag yow dinañ gisante ci kaw suuf maam alaaji Maalik génn àdduna Mahamadou Nazir fii na ah góor yàlla gu doy na alaaji Maalik ñëpp yaakaar ko sarqan wa xaraban mu wax mu dëj jaaxal na ma de <laughs> man de wax boobu jaaxal na ma teel mu dugg ci xalwa moo tax góor yàlla ñoo yéeme mu ne ci biir xalwa bi bu ko alaaji Malick yónnee waan lettre bi parfum bi ci daan xeeñ di ko xeeñ mu xam ne li bokk ci Maodo ngi ñëw mu ne bunt bi ñu ne ko am na ku lay seet kan mu ne alaaji Mansour ban mu ne alaaji bu doomu alaaji ma ko na ko yow yaa daan bind ne ko déet booba noo toll lettre yi arabe yi booba noo toll mu ne ko ça environ six ans sept ans mu ne ko yaa doon bind lettre yi tey laa gëm ne sa baay bokku ci noonu na ma dinaa gisanteeg moom tey sa xetuk bàyyi ma doon xeeñ ma nuyoo muy yow kon xam naa ne werante wu ma ne yow yaay sa baay ci kaw suuf ah alaaji Mansour waxtaanee ko yombul déedéet sëtam bu baax sëriñ Maodo bu khalifa bi nee na ma mhm. alaaji Mansour boo koy waxtaane nit ñi dañuy foog ne da ngay xuloo marta ba baa rëy ba boo ñu foog ne da ngay xuloo fi mu toll ci yàlla toll doon kenn du moom kenn du moom mooy doomu Cheikh Mali bi njëkk gane àdduna Tiwaawan mm. mooy saahibul awliyaat yi ah. mooy doomu Maodo bi gane àdduna Tiwaawan te kat kat Maodo kat ngambu ci la la taxane waaye ndar la toggee njaar nde la baarale mais la yekke ah fi mu yekkee laa laaj mën sor gën a àdduna maay wax ak yow xam nga noo koy xamee eh. bi mu tolloo ci digg digg xeex tubaab bi maam laaji Malick tubaab yi ne du fi mu ne dina fi ci la ko yàlla may doom dina Sidi Ahmed mu judd am martaba boobu dem jeex ca guerre ba fi mu dajalee mbooleem xeetu xam-xam yi am martaba su góor yàlla yëpp yàlla may ko Sidi mu ñëw dajale xam-xam ba dajale martaba suuf góor yàlla yi fi mu yeggee ci defar nit nga xam ne koo la rek nga defar alaaji mën sóor ñëw di defar gaa moo tax muy sëriñu man bi mu dee ba xam dara desalul islaax ku këram bëgg a fay mu tak mu dekkale ko ku ñàkk dara ja ñëw ci moom yàlla may ko alaaji ab ku kenn xamatul alaaji ab di gane si la ñëpp xam la bi mu dee ba suur àdduna wan ginnaaw ñëpp jublu yàlla alaaji ab yëpp gane àdduna mu ñëw ne gaay yi jël leen man bii mooy sama cër nit nu mel bu juddoo doom ji da cee taasir ku la dàq naan sàngara bu juddoo doom ji bu tuxul sàngara bu naanu sàngara yi tux maa la ko maay wax yow doom dafay rayaat ci doom yàlla may ko muy doomu alaaji maali bi njëkk a gane àdduna tiwaawan di doomu Cheikh Alhaji Mali bi njëkk dem màkk aji di doomu Cheikh Alhaji Mali bi ñu denc yotu Maodo di doomu Cheikh Alhaji Mali bu mos a tàqali koog Seydi Alhaji yàlla yi ñaar lañ man hum ahlu dawqi wa man hum ahlu shawqi xam nga luy ahlu sawq mooy ñi mos xam nga ñan mooy ahlu sawq mooy ñi nga xam ne dañoo sopp guur yàlla ba mu yóbbule xam nga léeg-léeg nga firi ku bind bi himmatin aw bi xaalin xaasa tarbiyatan ni ama nga ne himma mooy yitte xaal mooy déedéet bi himmatin mooy ahlu ahlu ahlu dawqi waaye bi xaalin ñooy ahlu sawqi ci sopp sëriñ bi bëgg sëriñ bi di ko kotuwaaye ba sëriñ bi yóbbuwaale ko bokk la ki nga xamne dafa ñew jox bopam serigne bi mu naan ko jaaral fi jaaral fi ba mat motax fa kullu muwasilun wasilin wasilin walay sa bi kulli wasilin muwasilin wasilin bàyyi xam nga luy loolu ku meuna fexé ba nga gis Macky Sall ngay warante mom meuna gis Macky Sall am déet <laughs> yow ciune nga cuune nga kay way du ku ñu ci Macky Sall nga meuna yobbu yóbbuwaate de wa deug la gaay dañ leen di ñamal ben yon ñu cëpp-cëpp way ku bëgg dem sétil Cheikhul ah. min ahli shawqi wa min ahli dawqi ku mu andal yobbu na la ci yalla xaw ma li gën a yéeme toog ci kër maam maam Sofiatu xam naa li góor ci maam Alimatu woo Pape Serigne Sine eh Serigne Sine abal ma bi nga bind gaawal tuuti gaawal tuuti waaye dafa lu maa bind mu yéex mu ne ko e eh, bakwan ah, alaaji Ceerno Seydou Nooru moo nekkoon fee Dakar bind ma benn lettre ci miir bi ma doon gaaw bind ko mais bàyyi ko mokkal naa ko eh, xaw ma dégg li may de ki toog ci Ndakaaru bind la lettre mu affiché ci sa ma xam kañ ko envoyé ki koy liir far amu lu ko bindee mu mokkal ko ñaar ñii kan moo ci man <laughs> Cheikh Tidiane dañ ko laaj góor yàlla pire gu mën a yóbbu ci yàlla nu muy mel mu ne ko am ñetti ñeenti qualité qualité yëpp a ngi ci cheikhul xaw mi man lisaanu hoo bi zikrillahi naatiqu koo xam ne làmmiñam fu mu tudd day tudd yàlla ma sa turandoo Thierno Seydou Nour moo ñëw ci sëñ Babacar si ne ko nañ ànd ñu dem ci bàjjan sëñ Babacar bàjjan la daan wax maam suufiet ñu wax ak moom ci Amadou balaa rey boppam xam nga lu tax turu yàlla yi muy wird mag mu am téeméeri at bu ko saxoo léegi mu dee moom fan fanweeri at nañ wax ak moom mu wàññi ko ñu def délégation ñëw ci maam Soweto mu ne ah woo leen ko mu ci biir de mu génn booba mbaaru si aj Malick Thierno Seydou Nour wax sëñ Babacar si da koo bëggoon sopp ko ne ko Amadou ah maa ne Thierno ñu ñëw tur yàlla yi yëg naa ne tàng na te ëpp na mu ne ko laay la yii bi may am juróomi fukki at ak la ma sama baay di lim yu magee dama koo wàññi jot ji ak ñi may siyaaraak ñi ma yaakaar ak soxla yeeg dox dépense yooyu ak ñi daayira yi moo tax ma wàññi ko lim yooye bu ma leen ko wanoon gën a déedéet moo tax mu amoon cëru di téye ñaari kurus te li muy wax ci bii bokkul ak li muy wax ci bii te bii du tarde bii du tarde mooy borom ñaari kaye bii di xuus ci baarul xaqiqa bii di xuus ci baanu sariyaati ak a jafe ay mbir Cheikh Tidiane ni ki mën a yóbbu ci yàlla ci nit ñi mooy lisaanuhu bi zikrillahi naatiqun mooy koo xam ne làmmiñam fu mu toll day tudd yàlla oh. moo sa fokk ma sa fekk day tudd yàlla moo tax lu mu bëgg lu mu ma bëgg yàlla bëgg fokk ko ci inna lillahi aradan isa arado aradallaahu oh. dama am sama yaay ju baax ajaro tante Diop oh. dafa ma ne man sëñ Babacar si moo ma yar soxna soxna asukan moo ma yar alaaji ab dooma may wér waaye kenn laa alaaji alaaji ab Mansour rek laa gëm mu ne ah mu ne ma sama jëkkër amoon ñang awa caam day tukki ànd ak alaaji Mansour bu daan tukki mag ñi dañ koy topp ma jóg fajar téyel ko valise bi ñu dem ba ci gaaru Tiwaawan ma daf yëfu daf seex benn socc fa kastalu socc bi jaf ma fii bi may wàññeeku te alaaji mën soo départ naa mag ña ma ñëw sama kër tëdd mu néewi yokk ba gisatuma sama bopp bi toll nii ñu dem wax ko sëñ Babacar si mu woolu benn docteur bu nekk Njaasaan bu man a faj docteur bi ñëw lu ne mu def ko mu të ba ñu ne dañ may saraxal damay dee gisatuma ñu wax ko seexul kaw bi bi mu wàccee ñu ne ko ah, sa waa ji kat da doon gunge alaaji Amar Ñang awa caam ca seen yoon wa keroog ba léegi ngeen dem Ndar fukki fan boo moytuwul boo fa yéexee mu dee nee na ñoo ko ma mun sa mu ñoo ne eh tante du dee léegi ah eh day ah déedéet ah loolu ay caaxaan la ah nee na bi ma ñëwee bi alaaji mën soo dugg see ci néeg bi rek la sama yaram commencé yëg te yëguma woon ma ñëw mu ne ma ngaangal ma ngaang nee na ma baaraamam bii la dugal sama gémmiñ gi ma yëg ngelaw luy génn ci diggante weer bi di dugg ci sama biir ca sa sa sa sa sa sa sa ca sa sa sa sa sa sa sa sa sama xol bi sa sa yi mu sa raay na ma baax na ba suba nee na ma xëy mu def benn tuuf fi ñu bëtt ko rek mu bës puut gi ma raay fekkatuma ci dara كد موم كوكو شيخ القوم شيخ القوم ان لله ارادا اذا ارادوا احد اراد الله يال دا فام تي غور يالا يوخنا لون بغي يالا فك لنج نون لا شيخ القوم ميل وون من لسانه بذكر الله ناطق فمو تولو تود يالا كو غنال ييب بيتك يالا 24 سير 24 يالا لاي باك واي وقلبه بحب الله صادق قولم بوكو خري يالا رك لا بغ مام الله منصور بغ لودول يالا دوندول لودول يالا امنا يو خامني بور وانا تيلي دينا كو واخ واي سوما كو واخ سوما دين جاب سوما نوب <laughs> waaye kon bëgg yàlla am ma wax la ci lu bari balaa joo dugg ci xasida ñu ngi lay seetaan de wa sirruhu bi wujudillahi waasiqu sekkereem dëgg bi mag ñi yéeme alaaji mën soo du dara wa sirruhu sekkereem bi wujudillahi waasiqu jàpp na ne fu yàlla ne yàllaa fa ne ku dul yàlla doo yàlla tawxiidam moo ëppoon doole lu dul tawxiid أفي الباسطات غير الله معبود بالحق أم في ما للغير قد فرزرنا فرض على الابن وشكر الوالدين ومن مولى والد البر غير الله معبود بالحق أنفسه ولغير وجدان فرض على الابن شكر الوالدين مولاي الوالد البر يا أستاذ فرصة بالحق أم في ما للغير موجود فرد على الابن وشكر الوالدين ومولى الوالد البر يا أستاذ محمد من زردون أبي البسيطة غير الله معبود بالحق أم في

سغبايا حمد الله ووالي ولمن قد خص شرب ما نيله ليسي وفي دار منصورنا فرد على الابن شكر الوالدين والمولد والد البر يا استاذ فرصه الأخيار شافعنا عليه خير سلام الجيل منصورنا فرد على الابن وشكر الوالدين وموضوعي والد البر يا أستاذ سندينا والآل وصحبه والأزواج وتقيس تمهيد وتقويد والآل وصحبه والأزواج خاتمة ما من خراتيس تمهيد وتسميد والآل وصحبه من بعد القراطيس تبيين وتزيين والآل وصحبه والأزواج خاطبة مع القراطيس تبيين وتزيين booba mooy kër Paate Ja kër Paate pièce la woon pièce la woon ah bay dee ñu ne nañ ko may doomu alaaji Maalik yi ba xam ñoom nañ mat nañ ay sëriñ séeréer si ku fi jaar dee nañ leen ko may pièce la ñu wax ko sëñ mu ne gisi leen maa la ko ku fa timis fekk nga dee ñu ne nañ ko may kii ñu ngi nu Cheikh ñu ngi nuyu Serigne Cheikh. Cheikh Tidiane Tall Maki Cheikh ñu ngi koy ziara sunu soppe. Ah, soppe ku baax yónnee nañu foto Cheikhul Qawmi bu ànd ak sëñ Babacar. Serigne Mansour ak sama turandoo. sa turandoo waaw ah, Mame Alaaji Mansour. Ah, Seydi Tall. Seydi Tall koy ziara Seydi Tall di ziara nag Amirul Muminin lam dëjul be. Mhm. ah Thierno Bachir waaw ñëpp a ko sopp. wallaay ndeysaan. bi ñu yeggee bi ñu yeggee dex gi jësi tënk jësit ji du jësit du neen loolu yàgg ngeen dégg mag ñi di ko nettali mu ne eh Moustapha eh, si beekul nga dugg ci dex gi moo tarbiyee sëñ Moustapha si Jamil sëñ Moustapha Jamil Moustapha la ko daan wax waaw moo tarbiyee sëñ Moustapha Jamil wan ko yonent bi yaqasatan laa manaama moo tax sëñ Moustapha Jamil bari na ku ñuy coow seenoo pëndam boo bëggee xool takk ndeer walaaj mën soo a xoolal Seydi Jamil góor yàlla piirango fees dell ak yàlla na dégg kenn du Seydou jabir mu ne dugal ci teet bi dugal ci dex gi mag ñi ne ko déet yow doomu sëñ Babacar si ji mu wóolu la jox la ko fu mu dem ànd ak yow nga bëgg ko dugg ci dex gi mbaa nga ne su duggee du génn mu ne eh dafa génnaa ah, xanaa dex gi xanaa jësit ji du nit xanaa du jaam Moustapha di jaam jësit di ci jaam ñuy jaamub yàlla bu ko laalee eh, su ko laalee xam fi la maa fekk ah, eh, na mustaf dugal sëñ Moustapha Jëmee dugg ci biir dex gi moo jësit ji ñuy fo paccax paccax paccax paccax ñëpp téye seen gémmiñ mu capp xalimbaam bind na afil basitati ne eh Moustapha Kandji Pape Moustapha Kandji eh, abal ma foofu bigal xalima mu abal ko mu ne afil basitati maa la ko ndax am na kenn ku nekk ci dënd bii maabudun ku ñuy jaamu bil xàq ci dëgg xayrallaahi ndax am na ku yeeyoo jaamu maam ma alaaji Mansour foo jëlee lii mu ne jaamu yàlla ba jeex ci yàlla ma ko may soo ragalee yàlla lépp ragal la boo ñemee yàlla ku la war ta la damaa ragal yàlla moo tax jësit juddu laal sama doom waaw amul fi sama am fil ardi ci suuf amul xayra mawjud Mamoun Sow nee na boo koy wër ku yeeyoo jaamu te may dëgg doo ko fa fekk yàlla moomu laa weetal ba lu ma bëgg mu fekk ma ca ku man essayel jël leen seen doom yi dugal ko ci jësi di xool <laughs> ku ko alaaji mën soo digal ku ko do ku ci ku digal sa doom mu dugg ci géej gu jësit am ku dul alaaji mën soo nga ñàkk sa maa alaaji mën soo rek ko ko sañ yàlla fekk ko ci hmm. mu ne subhanahu min ilahin wahidin samadin dunaa sellam gi min ilahin ci buur wahidin kay kenn samadin ku ñëpp jublu muy faj soxla ñëpp te jubluwul ci kenn ba mu koy sax loxoo aji nekk la di ko ñeel albaqa lii dinañ toog ko nettali du ma fi ne yàllaa fi ne yàlla mi fii dee sama ginaar rek moom ma may lii wasana yàllaa moom tagg fii taxliidu fii aji nekk la ci sunu borom taxliidun tagg goo xam ne day sax ba ilaa yawmi hamdan cant ñeel na loxoo ñeel yàlla wali man ak ñeel buur ba nga xam ne xas saxoo jagleel na ko sarafan tedd nga ah, maanay lu xooli si waa fi dëxri mawjuud ñu ne kookan la mu ne Muhammadun bu ma sante yàlla il faut ma julli ci bi safatul axyaar yi lu yàlla bind moo ci gën a sell saafi inaa moo ñu ram mu ëllëg yowmal xiyaam alayhi xayru salaamin yàlla na gën jin yoo nekk ci moom fii ci moom tayidu boo xam ne dafay dakkatu ilaa yawmi diin waaye xam nga lu ma ca wal aali wa sax bi ñu ne alaaji Mansour lii ngay tagg yàlla ak julli ci yonent la mu ne Mansour la tudd sant ci ñi sant ci bari nañ ñi tudd Mamadou Mansour bari nañ waye limay def ku ko mëna yombul dama leen bëgg wax fuma ko jëlé ñu né amu ah, né man na alena شيخ والي والي من فعل مار مبني على الفتاة لا محل له من الإعراب وفاعله دمير مستتر وجوبا تقديره هو على جمالك دفن نب فاعل جه على جمالك من من من علينا من قيولنا علينا تنين لا لا يسيخ على جمالك من يلا نقيو الله جب سيخ تسرين serigne bo xamne dafa nek serigne malaaj malik ku ñew ci mom dom la lay jappé dafa tok ca dafa tok ca ca num tuddati ci njaar nek mak ñëpp bër ko bay dagul rëg rëg rëg rëg mu ne mën a li lu mu ñëpp ne pat mu ne mën a li lu mu ñëpp na pat malaaj rawane ko asi ah, kana wut yalla rek mu naa ah, yàlla am ñu ne ah, ka nañ ko ci yow ta xam nañ yalla def na ci yow yalla mu ne maalik gisul yalla yegul yalla waaye fu ma ko njëkkee yëg dinaa leen ko wan maa ngi leen di ñaan ku ma ko njëkkee yëg na ma ku ma ko njëkkee gis na ma ko wan moo maandu maanaam waa na ko si bu ñu jommal ñun ñii ku ci dolli ñu topp la te ci yàlla si yàlla ji nga ñuy tibbal ba mu doy dangaa wàcc rek mu ne ah Malick de du kenn lu ma gis dinaa leen ko wan waaye yéen it ku gis luy jëriñ wanal Malick ndax Malick ëppalewul boppam yàlla ku mu yar wàcce la moo tax seexul xaw mi suñu xalifa bu baax bii ba alaaji mën sëñ Babacar Si Mansour soo gisee mu wàccee boppam doyadal boppam tuutil boppam ca ka ko yar la koko tagal la babu mu ne ah mu ko isa daqalta ala qawmin fakun minhum wa in rafauka faqul hadha min fadlikum wa in qafaduka faqul hadha mahalli suñ Babacar mu ne ah ko isa daqalta ala qawmin mbooloo moo duggati fakun minhum raaxalool ci sen biir moo doko fek mu ko mën a ci ko ñu tok ci suuf mukk xamu ko wa in rafauka buñ la yekete si Malik yow sëñ Bay Mansour xalif général des Tidiane ne leen faqul haza lii ngeen ma yëkkati fadlun minkum yéen a baax mérite wuma ko wa in xafadoo ko buñ la na teg toppal fële gënoo kenn ne leen naa faqul haza mahal li yéen a ma xam ndax mi naa xalax naa ko wa fi an waidukum wa mi naa nuxrijukum taaratan uxra moo tax cheikhul xaw mi lu mu mos a bëgg yàlla mu ne mën naa alay naa bi seyqin waalidin ah dañ may jox addee sëñ Bay Mansour waalidin way jur waaye man may tudde sëñ Mbay Mansoor rek rahimin ku bëri yërmande atuufin ku ñeewante ay taaliba mu xiisin eh. ku mën a xettali Abdou Mbaye jërëjëf addee sëñ Mbay Mansoor Abdou Mbaye bayit bi yëpp kasiida bi yëpp ñaari baat yi may bëgg a firi ma ca dàqal min wu tajwiidu xam nga lii loolu ah. tajwiidu shay'in ihsaanuhu wa tasyiinuhu moo tax naan dañuy tajwiid alquran mooy njàngin bu rafet te tedd te sell xam nga jërëjëf ci barke sëñ bey Mansour xam nga luy min wu tajwid min wu géwénu alaaji Malick ñu ne a ah, borom ñaari kaale yi mu ne tajwiidu lu mu wax ñu ne est-ce que géwélam min wu gumbaab alaaji Malick ñu ne a ah, mu ne tajwiidu fu mu woyee ñu ne est-ce que gumbaab min wu firikatu alaaji Malick ñu ne a ah, mu ne fu mu taxaw tajwiidu est-ce que min wu imaamu alaaji Malick ñu ne a mu ne fu mu taxaw tajwiidu min wu satub alaaji Malick ñu ne mu ne fu mu taxaw tajwiidu est-ce que منو عندو على جمالك نينا منو فم تخاو تجويد اسكي منو جيلو على كونيك على جمالك فم تخاو نينا اسكي منو لو جوغي تي موم رك تجويدو اسكي ليسان اسكي اني ابو موتاخ اصحابه جلاسه قوم اصحابه اغناوك عن توصيفه وهم في كل مكان لولو ما نيخ تي واخ نينا بو نين ما جيسه لي نين ما ييمي بولول ييب نينا موني سما باي لو جوغي تي موم ني رك ما لاج ما لاج ماري امول لو يس ديدت mu yées Mali Seydi Hadji Mali amul lu yées. lépp lu mu am. amul du doob du jarbaat du set waaye man sama heure mbaa jeexul deuxième partie baa ngi ñëw de. deuxième partie amul. ah kay. kenn du dagg waxtaan kenn du dagg waxtaan ci El Hadj Mansour ëpp naa def. moo tax bi mu bi mu demee bi mu demee ci Serif Bachir Haydara. mu ne ko dama ba nga waxtaanal ma ci Seydi Hadji Mali. mu ne ayaa man yarumu shifa as saqam waxul yam min al lu'lu'il muntazam بأخبار شيقي رويدا فصل خبيرا به ثم قل لي نعم فشيقي مرب مرق مدر رسل كل العلوم كل علوم الشهير العلم إمام به من يروم شفاء السقم وعليا من اللؤلؤ المنتظر أيا من يروم شفاء السقم وحلي من اللؤلؤ المنتظر يا من يروم شفاء السقف وحلي من اللؤلؤ المنتظر يا من يروم شفاء السقف وحلي من اللؤلؤ المنتظر المرتضى وبأخبار الشيخ رويدا وصل خبيرا به ثم قل لنا نعم. يا من يروم السخط مولى وحليا من اللؤلؤ المنتظر سقط وحلي من اللؤلؤ المنتظر بأخبار شيخ رويدا وصل خبيرا به ثم قل لنا يا أخبار الشيخ رويدا وصل خبيرا به ثم قل لنعم فشيخ المربي المرقي في كل العلوم شهير العالم إمام به يقتدى للهدى بالذي من هدى ووقى آية يا من يروم شفاء السقم وحل يمي كاللؤلؤ المنتظم بأخبار شيخ روينا وصل أميرا به ثم قل لنعم وولم لا حمالك للورى ولم لا وحبالك للورى ولم لا وحبالك للورى ولم لا وحمالك للورى ولم لا وحبالك للورى وهو الأجمل قسام الخيام أيا من يروم شفاء السقم وحيا من اللؤلؤ المنتظم بأخبار شيخ رويدا وصل ربي ثم قل لنا نعم. ايا من يروم yow mi sàkku sifa a saqam ku saafaraal sa jangora waxal yan ak takkaay bu rafet mina lu lu il muntazam boo xam ne mu ngi tukkee ci tagg yoo xam day mel ni wurusu or boo xam ne dañ ko nosee yow mi bëgg ñaar yooyu bi axbaari cheikh yi ci kan moo lay nettali kan mooy cheikhul haaji bi axbaari cheikh yi ca teg way dalal وسال تلاجل خبيرا لوي فيري خبيرا إيه. بقول علي من دي بقول لي من جاي دانيو خم مولد من خوما مولد دا ما ميتريز مولد خبيرا به ني وقت مولد يب خم خم لاني وخي من ميتريز ميتريز راج مولد بقول علي من به خبيرا به دينغو خبير لوا الله هو العليم الخبير خبير موي كي خم بخم لا تي بير لي نيوغول مو نكي نكو لا خبيرا به kon lu xew sëriñ Bachir maa ngi yow ñoo yaroondoo ci baay waaye maay xabiir nag yow ci alim nga toll kon su ma xul lii na am lu ma wax ne ma waaw tey ma wax la ci Maodo loo mës a dégg hmm. cheikh ilmu rabbi ilmu raq ilmu dar huwa Seyaaji Malik mu ne a ah, mu ne acheyqu mani cheyqu acheyqu lugatan huwa man yadubbu dubbatan wa silaahan man balaqa rutubatu ahlil fadli walaw kaana saxiran mu ne du bu njëkk bi bu ñaareel bi la hmm. سيكون موي سيرين مرابين مرابين مربين مربين دالاي تربيه با ديفار سا جيكو فو ديم نيو ناولا واي مرقين دالاي ييغا باغا بوك تي غور يالله شيخ المربي المرقي المدرس كل العلوم سيد العالم كل العلوم مدرس دا فاي جانغالي كل العلوم مبولم خيتو خام خامي الشهير لو سيو والعالمي اك ييغا خامني دا فا نوبو نقدي قام بامل ني مونتاج كل علم الكلام دار بين المدارس بطانا وسودا هذه فكم وهبت مئات كم وهبت قولوا وكم وهبت هذا العاد مالك مدرسا كل علم كان مندرسا بين المدارس زيدانا وسلاما مدرسا كل علم كان مندرسا بين المدارس زيدانا وسلاما المولى مدرس الكل علم الكلام مهدر وبين المدارس إيمانا وسنانا مدرس الكل علم كان مدرسا بين المدارس إيمانا وسنانا مولى بين المدارس

بدل الوصف دانا بين المدارس مدارس بين المدارس بدل الوصف nga dégg ne nga dégg ne Maam Alaaji Mansour ca xam-xam ba benn bayit bi Abdou Mbaye jàngale na ci ñetti mu ngi jàngale ne sëriñ ñetti sëriñ la seyku taalim seyku tarbiya seyku tarqiya mu njëkkee bi ñu war a mujjee bi ñu war a njëkkee la mujjee dafa na sey fa seyqi murabbin mu njëkkee seyqu tarbiya muraqin teg ci tarqiya mu darrisu kullal ulumi mu teg ca seyqu tar taalim xamuloo ne am na ci mag ñi ñoo xam ne Maodo jàngalu le mhm. dalee na seet mu wóor na ñii xam-xam jegoowuñ ko mu jël cërub yàlla def ci ñoom eh. moo tax mu njëkkee muraqin foo ma dénk li may xam de am na ñoo xam ne dañoo jàng ba fees dell ñëw ci moom bëgg a yegg ci yàlla mu yeggale leen moo tax mu njëkkee mu rak mu rabbin boo yeggee ci lii moo boo xam ne sa àlliwa mënatul a feeñ kenn mënatul laa xamal boo ñëwee mu defal la tarbiya moo tax maam Cissé Touré way juru sëriñ Haadi moo daan wax ne alaaji Maalik Si ku ma yéem la ñu ne ah mu ne dafay fekk ku jàngul xaala wala xiila mu def ci moom jikko yoo xam ne bu jëfee jëf bu mu jëf di ayab alquran Seex eh. Seydi loolu la ma yéeme daf lay defar boobu loo def muy alquran te doo yëg ne alquran waaye bu ñu lay wax mayu Seex Alxaaji Mamadul Mansour ma ñëw ci mayi laal tuuti rapport am sa diggante ma sëñ Babacar bu ñu ko mayee rapport am ak Seex Hajji Maalik rapport am ak rasulillahi muy ñeent point yàlla nañ ko mën a laal suñ ko mënul rek fu ñu temps bi même ñu yem fa ndax dama doon introduire waaw ah. nee naa la Seex Alxaaji Mansour dafa bokk ci ñi nga xam ne luñ bëgg yàlla fekk leen suñ mën su borom daal dafa toog ñu ne ko wil sa turundo mu ñëw mu ne ko eh dama dem bour te yow laay àndal ah da ngaa dem nga wax ko xalifa te ñoo ñu dem mu dem fekk suñ baabakar tëju mu ne ko eh saxaar gi dañu fi bàyyi ah kon yéegal ñu dem suñ mën sóor yéeg suñ mën sóor benn turki la sol ak benn dara ndeke mam mën sóor moom ma ngi fay dem pour weer ah, suñ mën sóor ñëw toog ci wetam rek eh léeg-léeg mu ne eh awal ma foofu maasu dawal indil ma fay bindal ma lii sëñ Mansour ku xam àdduna la ku yeewu la boo ko xam jegewul doo ko xam yàllaa ko may xel mu set borom daara ji mu xam ne kii góor yàlla la daf may natt xam nga nu muy def day bàyyi ba guddi bu yére bu tilimee mu fóot ko weer ko toog ci ëtt bi ba mu waw su ginnaaw subaa mu sol garaabu bi génnee tubóoy ji fóot ko yoon bu jot mbub mi set te du xew kenn du xam fu mu ko jëlee nga ba turandoo ma ngi koy seetlu ba mu def weer mu ne ko eh sóora dañoo ñibbi ah. yow saa sa yow sa bi ah te dafa rek mu ne ko waa papa nga de xanaa ci sa mbaax rek mu ne ko doom dama la doon seetlu mbaa yëg nga ne sagal gi nga ma sagal te laajoo ma yére te mosoo ñàkk a ci sama wet ba kenn di la xeeb jamono ngi njaw foo soloo ku solo ñu fàtte ko ndax sa solo moo tax fu mu ne tëll ku soloon mbubb ñu fàtte la wax boo toppandoo ñëw sëñ Mansour nit ñi dañ lay daw ni sëriñ Mansour di solo boo ko toppandooyee ñu daw la moom rek la jàpp mooy téye mbubb ci kaw ba ci suuf daal bi ko fu mu tourné mu rafet turandoo man ma wax la beneen góor gi tafsir jiey ca Gàmbi ci daara ji la ne woon maa la mën so e eh, woowal ma tafsir a ah, mu ñëw mu bësal ma sama tànk muy bës maa mën soo na nii rek mu daw mu ne e ana ki doon bës ñun daw la mu ne e kii moo ñàkk ful la woo leen ko mu ñëw mu ne ko yow ma bëgg la def imaam ci Gàmbi ngaa daw ak ca bësal waay yow imaam nga ba pare mooy jiite jumaa ja ba xëy génnaat ma wax la beneen hmm. fii xalifa bi dëkk ci guy gi keroog bi mu ko jëndee maam Sofiatu daf ko ne Amadou Amadou lu ne nag terrain bi ku fa timis fekk nga dee guy ga ay jinne kese fa de loo koy doyee mu ne ko eh dama faa tuxu maag daara ji ah foofu la ñoo dëkkaa yaay mu ne ko mën soo lu ne yaa ciy dugg doomi jàmbur yi mu xëy ñàkk lu muy def woo maam biraan si xam ngeen pap biraan si ba nit ñi waaj a tëdd mu ne ko eh biraan yow da ngaa fanaane ca guy ga ah. <laughs> pap biraan si di wër di tàggoo damay dee <laughs> maa ngi dénkaane maa ngi dem parce que alaaj mun sonne na dem ca guy ga te foofu ko tamit fekk nga dee maa ngi leen di tàggu sama njaboot gaangoo lii la yàlla dogal ci man ñu tàggoo bëgg ñu ne ko demal teddi, demal teddi ci biti bu bët setee mu ne xam na ko baal ma dem rek jàpp ci yàlla maam biraal si bi mu tëddee daa wut mool teg ci tànk yi wut benn mool teg ci dënd bi pour bu ko daala yégee mu yëngatu ngelaw upp ko mu biddant yeewu gis jigéen ñi dem marché muy làmb boppam moom ci bàmmeel bi la ne voilà wala mu ngi ci guuy gi xool gis guuy gi mu ne moo ne deewuma de mu ñëw jub Mamoun mu ne ko eh yow biraan da ngaa ragal defu yàlla xanaa xamoon la fa doon tiital nit ñi yaa ngi wa jox naa ko wér di barki démb ba léegi mu ngay wësi fa nga di ko daw moo tax ku la wax alaaji Mansour borom jinne yi waxul dëgg alaaji Mansour ëpp na loolu borom jinne mooy ku tàggat jinne di ko defloo kooku min di jaali laay akbar jinne yi la ko bàyyam dénk mu leen di jox wér di leen jàngal baati waaye kooku du borom jinne kooku mooy sëriñu jinne yi ku ne alaji mansour borom jinne ne ko aline diagne waxo deug alaaji mansour moy sëriñu jinne koku du borom jinne borom jinne moy ko yakkat jinne ma jox la benen ñu doog dem nak ci mak rasulillah da fay dem kaw nag kër bàyyi mu ngi simi dal duma ko tuddu mu dem ba passé gin gi neew ñu annoncer ne ko fa nga don dal changement am na nee do fa dal kalam na yar ci gi alusis mu ne xamante ak mom kër Pape Aline si sàkket la ñaari néeg a fa mbaam yee xar yaa ngi romb mën soor ñaar fukki juróom-ñaar fukki muqaddam lay àndal ñu annoncé ko ne ko mën Mansour a ngi ñëw mu ngi tugg mu ngi tollu Ndorong nee na sa kër lay dal man man sama kër mu ne kenn du ma toroxal daw <laughs> dugg cees na mais dugg Kaolack na mees maa alaaji Mansour ñëw wàccee bagage sam ne eh ana Aline ñu ne ko daw na mu ne eh, daw na waaye dina ñëw de awma lu ma leen ganale alaaji Mansour kenn mënu koo gana balaa ñuy noddukee liñ fo indi ci xar mat na ñaar fukk mu ne rey leen ñuy indi boolu cere kee bi mu ne yàllaa ji mu ne eh, eh, eh, Aliou Cissé dafa maa xamula ah, dafa xamul ne sabaaru dugg foo ko sa mu ruus ah jëri leen ko ne mu ñëw ku mu bëgg mu reer mu reer kooku kenn du moom keroog bi muy tàggoo ne ko alaaji yow Aliou Cissé may ñëw pour defar sa affaire nga maa daw xanaa yëgoo ni jamono ngi ñëw ci kaw la kuy leb yow lay leb Aliou Cissé mos na jot note bu jógee président ci Senghor mu ne ko bàyyil gerte gi ngay jënd balaa moo taxawal bascule bi lu gouvernement bëgg a jënd nga jënd ko da ngay arrêté ba gouvernement bi jënd baa ñu tëj njaa ñu tëj la mu ne ah man kenn du tëj ba maa laa mën soo di gane si aw ma lu ma reeree tey kuy leb man ngay leb lu ñuy jaay ci réew bi maa koy jënd sama barke sëriñ te du bind jox la duna la tëf day wax yàlla fekk ko kooku rajulun min rijaali may daaneelee nag mooy mais Alioune Diagne moom demoon na demoon na Côte voir waaw demoon na Côte d'Ivoire moom euh, moom moom tukkikat la woon d'accord da daan tukki xam nga lan moo andi inspecteur u tariqatu tijaan yi Abdou Mbaye wax nga ko léegi sëñ kër si lépp kër gi moom la ko joxoon waaw lu mu wax nag maam ab sëñ Babacar ànd ci gis nga góor gi Baba Ñaang fee ca mbos sëñ Babacar kër la ko joxoon Tiwaawan ndax xam-xamam da ngay toog jàngale mu ñëw wax ko maa Mansour mu ne ko eh, man bokk maa xalifa foofu xalaa dan baal ma jëm seeti góor gi bu ne góor gi rek sëñ ñaari tur la daan wooy sëñ Babacar xalifa bi xalifa wala góor gi wala sëriñ bi bu ne sëriñ bi rek sëñ Babacar lay wax mu ñëw na ko eh baaba da nga ne dañ koo téye fii mais bokk maa yow xalaata mu ne ah mu ne ko baaba làmp la dafaa leeral te yow sa kër sa kar sa sa kanam kenn du fa mbaar yow la sa kanam ku fa toog sa leer nëbbu ko. Oh. bàyyil ma seetal ko fu mu dem. lu mu mos a wax da daan def nag day tukki muqaddam yi lay wër muqaddam bu mu ci seet lu manqué ci sa wàllu yàlla mu defaral la di expecté tariqa bi ñu ngi wirdu suba ñu ngi wasifa suba ndax taalibe yaa ngi sellal lépp lu muqaddam mu mën a doon. Maam Alaaji soor moo am rapport ak yow moom mooy wax ak yow di wax ak sëñ Babacar doo yegg sëñ Babacar lii ma lay wax mu ngi am 22 ba dans les années 40 lépp lu am ci tariqa bi cheikhul xawmi alaaji Mansour moo koy vérifié moo tax mos nañu wax ba mu yàgg ñu ne ijaasa alaaji Mansour ku ko am werul mu re ne eh boobu sama ijaasa wérul mooy Cheikh Tidiane ijaasa am wérul allah Cheikh Tidiane la wa mag ñëw na ci siraaji maal di wut tur yàlla boobu maam alaaji Mansour xam nga ñaata la am yàgg kër alaaji Maalik def fa juróomi weer di wut turu yàlla ma alaaji Maalik war koo yeewi ne eh ana Amadou mu ne ah mu ne ko demal seet turu ngaa bindal sa baay ma yeewi ko góor gi ne ko si yow xanaa dangaa xamul li may wut <laughs> man ma def ci sa kër juróomi weer nga may boole booy bi <laughs> kii mu ne ko eh Maalaaj Maalik ne ko xanaa yëguloo ne Maalik ndigalal joxe la am waaye bind Cheikh jan tampon ci loxo xale bii la ko yàlla def bu la bindalul doo dem de mu ne ko kii ngay xeeb bu la bindalul doo dem de bind ci tariqa bi Cheikh Tidiane tamponné kooku ci loxoom la ko yàlla teg macha allah ma jox la benn bu yéeme ci moom dafa am benn waaye bu ko kar kër maam alimatu si foofu laay daaneele ñu da ko dem ci digganteem ak Serigne Babacar si benn waaye daf ko kar kër seen maam alimatu si lii dinaay bari lu ma koy nag te Abdou maa lañ mën soor yéeg ci ci oto bi rek chauffeur bi taar rek waa ji ñëw rek na chauffeur bi may ma may ma may ma mu ne eh, kii lu ma wax ne mu ne ko si dama doon xeex dóor nit toj bët ba mu porte ma plainte tey la àjjuma tey la samedi kon suba dimanche altine lañ may àtte te buñ ma àttee dañ may toj kaso te yaa ma joxoon wér dama ñëw ci yow mu ne ko taf tàllal mu tàlli mu ne tëf ne chauffeur bi demal mu ne ko dem dem xanaa yu déggoo li ma wax dañ may tëj nga may tafli yow jàngoo dara sax mu ne ko eh, danga xam ki la taf tafli nu mu toll ci yàlla ak tafli tam bët bët la ko yàlla xool ne chauffeur bi demal waay ah ji dem rang tribunal ñi ñuy tëj ñi liberté provisoire ñi seen avocat ñëwul. ñi mandat de dépôt jeex. président tribunal bi ne borom bu mu wert mais ca biti lu mu fiy def woo leen ma ko mu ñëw mu ne ko yow loo fi wut mu ne ko man dama ko ma fi woon mu ne ko damaa bëgg nga génn mbaa ma tëj la gis naa la ci suba ba léegi yaa ngi defar rang bi nit ñi cooy nga nopp leen bu subaa boo mënee nga ñëw di ma defar rang bi nga signé fii ma di la fay weer nga wax lu ma lay fay mbaa nga génn mbaa ma tëj la mun a nangu mun a signé Euh, tàkku saani suuf mu jub maam Mansour fekk mu ngi tëdd bu daan tëdd day bind buy bind day tëdd ku yàlla bind moo la dàq bind bu bindee rek nga jooy yàllaa ko tàggatal lépp lu jëm ci wàllu nuuraaniya insaan rabbaani la léppam yàlla la mu ñëw jub maam Mansour mu ne ko eh baal ma ci wax gi yéen ñi may déglu baal leen ma damaa bëgg a jàngale da ko daan yenn saa di eh raam doom raam xam nga mooy lan mooy xale bi doomu raam yow mi raam waxul doomi Dumram, Dumram, moy yow mi nga xamne ne dumraam jéemal tey lu bax dum sakal sa dum saxal ram ngay sakku lu bax mu le e eh, dum raam la wax nak loolu la waxul do raam de mu ne ko e eh, dum raam yow mi wut lu bax sax ci mu na ah, mu ne ko yow ngay xaar ku la nga dem ñu ambossé la xam nga ne ki la tafli yalla rus ko lu mu mos a laal yàlla da allah ak ak Cheikhul haji malik legi legi legi euh, ngay continuer fofu il faut que Pape Abdou daal ñuy bégalaat. Mhm. il faut que mu bégal ñu Pape Abdou foog ñoo ñoo la ko ñaare foog nga bégal ñu. waaw euh, di di di fàttali aussi téléspectateurs yi euh, joxe leen addiyee joxe leen addiyee yi ñu ngi leen di ñaan ngeen joxe addiyee parce que nag guddi gi aussi euh, xam nga chaque chaque guddi chaque Pape Abdou xam nga daaw ni ñu ko defee woon daaw guddi gi dañoo sargarool ki nga xamante ne mooy suñu yaay soxna Ndey Paala Mbay kon ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci sargalaat bu baax a baax di ko nuyu di ko ziar xam naa ci kanam suñu papa daaw góor dina wax ci moom euh, comme ni ñu defoon daaw rek incha allah Matar Jaay yónnee na ko ay teraanga incha allah léegi euh, Papa Abdou dañoo bëgg rek nga bëggalaat ñu tuuti bu ko defee euh, Alioune Diagne mën a tëj parce que xam naa ne foog ñu yeewi la mais foog nga bëggalaat ñu tuuti rek Alioune Diagne mën a tëj ako une fois ñu ngi leen di fàttali ngeen yónnee adiya sa benn soppe Eh, wala taalibe ci kër gi sax Hamza Hamza ñang ñu koy nuyu bu baax yónnee na la adiya bu bëri macha allah waaw ñëpp ñu ngi yónnee adiya mais yokk leen gaaw adiya numéro yaa ngi ci ci écran bi ngeen yónnee ci Abdou Aziz Mai ak eh, Oustaz Alioune Diagne eh, mu ngoog incha papa bismillah لولا النبي رسول الله لاختوري وبلغت بيني ولكن بلد بالكرم لولا لولا النبي رسول الله لاختوري مولا بلغت بيني ولكن بلد بالكرم لولا النبي رسول الله لاختوري النبي لخشى بيني ولكن مرنا من كرم لولا النبي رسول الله لاختوري لولا النبي لخشى بيني ولكن مرنا من كرم الجليل النبي رسول الله الاختوري بلغش بيني ولكن قلنا من كرمنا لولا النبي رسول الله الاختوري قولا بلغش بيني ولكن قلنا من كرمني أفاق بالقرن أي قرن الثعالب أو قرن المنازل ميقات لنجدنا لولا النبي رسول الله لم ترم بلا بيني وأهلي ما منك ربي وكان له يشعر بالجل أو نزلت وإن صرفنا فنعال العلم كالحالة لولا النبي رسول الله لاخترب النبي بلا بيني ولكن من منك ربي وإن صرفنا صرفنا صرفنا فنا العلم كالعالم صرفنا صرفنا صرفنا صرف صرفنا صرفنا العلم كالعالم صرفنا الله صرفنا صرف صرفنا فنال العلم كالعالم صرفنا صرفنا صرفنا صرفنا صرفنا أنال العلم كالعالمي فاخترت الأرض والأشجار قد حامى تلبس في العام عام الفتح والرحمة حبت الأرض والأشجار قد حامت مولى بما سمي عام الفتح والرفق بي وللنساء أذن الرحمن حمل ذكور ذلك العام إكراما لمعتنانا الأرض والأشجار قد حمت ونفس في العام عام الفتح والرفق ولا هنا ثم بأوا والبهاء من حمل بخير الورى مختار جبل هنا ثم بأوا والبهاء حمل بخير الورى مختار تلقي دمي إن البشائر ما زالت تبشر حتى نرى نوائش جب الهدى ثم مأوى والبهاء مولا حمل بخير الورى في القدم لما رجع النبي يأتي بساءات جنى طير النفى بلى من حزن ما جب الهدى ثم بلوى والبلى حول بغير الوعى مختار في القدم وقد رأت نسوة قد قلنا آسية وبنت عمران تيك العور لا تكون وقد رأت نسوة قد قلنا آسية وبنت عمران تيك العور لا تكن بنت عمران بنت عمران تيك الحور لا تمنى بنت عمران بنت عمران بنت عمران تيك الحور لا تكلني وبنت عمران وبنت عمران وبنت عمران تين الأولى وبنت عمران وبنت عمران لا تكن بي تزلزلا أسطوانة ملوكك كعبة ثلاثة أيام ظلمت لا تزلزلت أسطوانة ملوكك كعبة ثلاثة أيام فلم تقم بي مالت مع الأركان أو سجد موتا تعظيما التعظيم به تعظيما معتما تزلزل أسوانات الملوك ككعبة زلازة أيام فلم تقم بيوم السبابة مقبال الأسابيع ومثل المسبح يرن الحلو هدى والرأس جاء يبدي عباد الحسن قدرة من جلال رب رفيع قال حين أنت وقيل صبع في تكبير العيد ورسول يا يمني يا عباد بالله منرة صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة رمضان ورسول يا يمني العالم عينا حبيب الله بذرة جنبي وقلبي للذكر والتسبيح ثم مولا اللسان جبته والقلب مولانا ورسول يا يملي يا عباد أذناه عيناه حبيب الله بغرة تبقي أمن شفاء ثواب ثم ميمنة موتا حلم سعد لبدر بينما ميمنة رسول يا عيني يا عباد الحسنى وعيناه حبيب الله بالرا تبدي أمن شفاء ثواب ثم ميمنة وهو حلم سعد لبدر هو يقيم رسول جاء عباد حزناه عينا حبيب الله من تبدي ورق شعره الأصفاف من عسل الكنات والنبت أما الكف من كان ورسول جاء يمني يا حسن الحسنى وعيناه حبيب الله بدر جنبي جناتي والنبتي أما الكف من كرم مولى الجنات والنبتي أما الكف من كرم مولى جناتي والنبتي أما الكف ونبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف منك ربي ناتي والنبتي أما الكف من كرم لجناتي والنبتي أما الكف من كرم جناتي والنبتي أما الكف من كرم لجناتي والنبتي أما الكهف من كرمي جداتي والنبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي جناتي والنبتي أما الكهف من كرمي مولى الجنات والنبت أما الكهف من كرمي سيدي خصت شفاعته فولا بالكبائر كي من الموت سلم على سيدي خصت شفاعته فولا بالكبائر كي من الموت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم mu ngoog merci beaucoup Eh, jërëjëf eh, Mbaye alors eh, on va terminer Oustaz Alioune Diagne macha allah jërë ngeen jëf yéen ñëpp yi nga xam ne yéen a ngi yónnee seen i way leen di ko parce que yéen ñëppay bëggee Abdou Aziz Mbaye chaque jour ku nekk naan damaa bëgg Abdou Aziz Abdou Aziz tey rek dañoo bëgg ñu Abdou Aziz ah. ah Alioune Diagne dañ koo bëgg kay nan ko teral ah Daouda Ka Sodi Prom moom it yónnee na la addiya <laughs> waaw ah, macha allah ñi ñaa ngi yónnee ñu ngi leen di nuyu Euh, bu baax a baax. maa duñ ma ci yoon bi. yow kenn du la dab mbaay. moo dañ ko de. kenn du la fan la lañ la dabee woon. moo si am ko dab. kan Sidi. waaw ah ñoom Sidi ay booy lañ booy la ñuy dab. yow kenn du la dab mbay. looy wax nii temps yi nag yi xam nga temps yi seen gars yi xam nañ leen xàmmee nañ leen de. de leen wut sécurité wut leen sécurité ah wutal sécurité <laughs> ah. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup Nous ngi nuyu ki nga ak euh, wajuram euh, Baye madame ak bébé Kodou ñom ñep euh, depuis West ñu ngi ñu ngi lay Pape mu ngi lay mu ngi aussi mu ngi di ci ci ki nga dafa Gambi ñu koy nuyu euh, Mayoro Fall parcelle Assainies unité 25 ñu ngi koy nuyu bu baax a baax baax a euh, merci beaucoup jërëjëf euh, merci beaucoup Mamadou Moustapha depuis Port Sali, ñu ngi koy nuyu bu baax baax di Papito mon frère capable couture merci beaucoup d'être fidèle à nous alors Aliou Ndiaye man nag am na benn këyit moo fi déggoon am na lu ma fi bindoon xaw ma yaa ko jël bind ci say arab santal ma Chérif Mbaye Chérif Mbaye waaw waaw Euh, ah, Matar Matar Matar Matar Haj Matar Ndiaye tamit yónnee na bataaxal xam naa dinañ ko déglu ensemble yónnee na ma vocal nee naa ko teg yéen ñun ñëpp ñu déglu ko yow la ko yónnee ak ñu fi nekk ñëpp nañ ma ko préparel après ñu teg ko balaa ñuy tëj rapidement euh, waaw Abdou Aziz Sow ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci kanam dinañ ñëw ci yooyu yëpp incha allah ci kanam dinaa ci ñëw continuer téye ko ba ma pare Euh, léegi euh, vas-y Alioune Diagne ñu bàyyi la nga terminé kon boog ñu ngi leen fàttaliwaat ngeen yónnee addiye ci numéro yooyu nekk ci écran yi euh, addiye Seydina Mohamed ci suñu papa Abdou Aziz Mbaye ak Alioune Diagne ayca bisimilah. waaw xanaa ñu tëj rek. waaw. li ñu tëjee mooy géej moom kenn mënu koo xuus ba mu jeex. déedéet maam Alaaji Mansour kenn xamu ko. arabiyun dalla an qawmihi nit la boo xam ne. benn bi sëriñ bi xalifa bi sëñ Babacar masour dama ko mos a siyaara ñuy wax muy waxtaan ci soxna Faat Mansour ma ne ko papa soxna Faat Sy Mansour ca mag ña la bokk mu ne ma Faat Sy Mansour weesu na loolu weesu na ca mag ña la bokk daal di nopp waaw bu waxee loolu ci soxna Faat Sy Mansour kon bàyyam na wallaay ndeysaan yàlla jubale woon kook sëriñ Babacar Aliou Pape Abdou kii mhm. dafa bëgg Mhm. ndeysaan naa la francs yi maa la ko yónnee. Ah, million la. ko laay yàlla fay. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. am na sa benn mhm. eh, doom sa soppe. moom it ndeysaan dafa xool wéefam lu tolloog ay 1300 des ci. mu yónnee ma ko ba capturé sax ni wéef bi dara nekku ci mu des zéro franc mu joxal ma ko sama pap Abdou Aziz lii rek la am wallaahi mi ngi nii nee na mi ngi lay ziar di la nuyu Serigne Cheikh Tidiane Faye ca kër bir daw waaw doomu góor gi Mansour Fay. waaw mi ngi yónnee teranga moom it dina na vingt mille francs d'accord d'accord d'accord on va on va terminer sur ça yéen ñëpp di ngeen ñi ñi ñi ñi yónnee ci yéen ay messages yëpp après dañ leen sant euh, suñu papa El Hadj Mansour Mbaye mu ngi wootee jox leen ma téléphone bi comme ça Euh, Papa Mansour Mbaye mooy woote oh, ah dootul euh, leen ma téléphone téléphone bi merci beaucoup ñu ngi nuyu Ndiasse euh, Guèye Tivaouane Couture waa kër Serigne Babacar Sy Mansour ñu koy nuyu bu baax a baax waaw macha allah ah di yaay Mansour waaw kii ma waaw mu ngi lay dégg waaw labbayk ma di yaay Mansour man maa lay ziar ñu ngi lay nagul baax a baax. alhamdulilah. ak kay Mbaye. bëggoon naa sànni ñaari baat. bisimilah. Mbaye. waa Ndiaye bisimilah. bisimilah ma maa ngi ziar Sidi Boubacar. Ibnu Alaaji Mansour. xalif général Tijani. di ko ñaanal gudd fan ak wér. يكجار الشيخ سيد الحاج مالك ابن الحاج عبد العزيز امين اكسيدي ابو بكر اجيبوت الشيخ سيد الحاج مالك يب امين ذاك جي خمن مامم الشيخ سيد الحاج مالك موك سفلو الله تبارك وتعالى الحاج عبد العزيز دف شلم شي دف موم شو بوبم مو يوب دباجي yàlla noonu yàlla may kattan ak doole may ko boobu te wér ak kattan ak doole ba mu inauguré amin ànd ak njabootul maam Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp ak doomam yëpp ak taalibe yëpp ak jullit yëpp ñu dem ñu ngi jukko amin incha allah di gërëm njabootul Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp joxe cër du tee am cër cër bi ñu jox xam ne mooy xalifa bi xale yi xam ne mooy seen baay ñenn ñi xam ne mooy seen baay di seen nijaay ñenn ñi mu mu bokk ñoom benn bàyyi ñëpp jox ko cër teewul ñu am cër ndax Sidi Boubacar moom ci boppam mission bi bu yore xam ne ni mission kër Cheikh Seydi El Hadji Malick ak dundit yëpp kon nu ko yàllal yàlla may ko du fan lool yàlla may ko wér amiin ki doon waxtaane tey rek ma ñaan ko tudde woon a tarixa Cheikh Seydi Ahmed Tijani lu waral loolu mooy bi fi bàyyam jógee Cheikh Seydi El Hadji Malick moo seen muqaddim yëpp ñenn ñi du war fos ñëw ñenn ñi du dugg saxaat ñëw ñëpp ñëw ci moom mu leen kenn fi ne di El Hadji Malick mooy sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu ki ngeen waxtaane tey moom la xam ci rawaan ni su ma toogee moom il faut yenn saa yi sama rogoñ jël sama jël ndax fàttaliku Cheikh Seydi El Hadji ki yéen waxtaane tey Sidi Boubacar si xalifa bu tedd ba jàkk jooju jumaa jooju nuy defaraat julli na ko ba pare julli tabaski geesu ni ana Mamadou Mansour lu ko bëgg nii mu jox ko paaka ba mu rendi xar ba ki yéen waxtaane tey moom la Sidi Boubacar radiyallahu taala anhu wax ba mu seetee sunu yaay umu xayri sàll ci tëggéej ci luy booba de Dakar ci dund ko yi foog nga génn Dakar mu di dee damay dellu Tiwaawan wala yóbbuwaatil ma Dakar gi ma jóge woon ma jaar ca sama rakk ja Alaaji Mansuur boo fa jaaree ci barke baayam mu mu ñaar mu ñaar xëy sax bal dootu tàkk Dakar woon ki yéen waxtaane tey mooy ku xam ni lépp gannaaw yàlla ak Rasulullah Seex al Hajji Maalik la seen maam Amadou Bay Maodo ne moom amee ñetti at am ñeenti at am juróomi at la chef del Hadj Malick kii dafa koy fab taf ko sox bopp kii yéen waxtaane te moom lañ daañu fay géwél bu mag ba wax si di Boubacar süre kaldı. Geri geçiyor allahuma amin amin amin yàlla yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram bu baax macha allah jërëjëf mbay jërëjëf fu nu wootee ay jotaay yu mel nii rek eh, nga woote daal ñuy sagal eh, comme ni nga ko waxee jëmmal jotaay yi mu ngoog alors eh, Alioune Diagne sans plus tarder ñu ñu bàyyi la rapidement rek nga may ñu fan ngay dem ci finalement moom ak Serigne Babacar ngay dem wala moom ak waaw ci moom ak Serigne waaye oh. ñu nuyu sunu maam nag waa sunu Serigne da Alaaji Mansour Mbay uh-huh. ku ko xamuli deg nga ko. walay deg la. ni nuy wa kër ga yëpp. mom uh-huh. sa par uh-huh. mbay job sama xarit mom doomam yi samay wëlëre lañ bee mbay. ni diko ko Cheikh Tidiane ak wa kër ga yëpp. deg la je pense sama waaye man. mag mu bax la dina fi yag de. man so di nga fi yag de. fi yàgg de macha allah di nga fi yag de. ku lay xaar dina xaddi. walay deg la walay deg ah waaw yàqoo fi dara. déedéet wa fi nga tek sa tank lu bax ci rew mi. Uh-huh. Eh, rek nga wax ko ken mos sa deg ci sa gémmiñ nga wax lu yàq. déedéet macha allah nii nga ko àndee won ak sa sa baay Cheikh Al Hadj da baax mhm. mu jógee fi nga ànd kook borom daara ji mu mhm. jógee fi ak Serigne Cheikh Tidiane si mhm. Serigne Cheikh fu mu daan dem yow lay àndal yaa ko wax costume sax yéen a ko daan niroole ndeysaan te ku ne xam na ne Serigne Cheikh du ànd ak n'importe quelle personne te wilaay gaag xàmmee gaag nite ga noonu nga meloon ak suñu Abdou Al ku la bëggoon ku la fonkoon wallaay wallaay noonu nga mel ak Serigne Maodo mu baax mii noonu nga mel ak xalifa beeg sëñ Babacar si Abdou kon la mën a fay yal na la yàlla fay bu baax a baax ñu nuyu sa kër yëpp démb yit nii nga ko defee yow kër si aju Malick amoo ci xajji amoo ci seen ñëpp nga bëgg euh, sa baay góorgóorlu na ñii ñii seen maam seen baay maam góor mm. góorgóorlu na ba lépp lu Cheikh Alhaaji Malick bind soo ko bëggee dégg ci njabootam ngay dem macha allah loolu liggéey budul naax saay la ilaa yowmil xiyaamati waaye nag mu xaddami li ñuy bare bare nag mm-hmm. Amadou Mbaye Maodo kenn la kenn rek lañ askanalee Maodo muy sa mu daan sottil Seydi Hadji Malick muy jàpp loolu tuutiwul Cheikh Alhaaj ah, ah. Mansour Pouy président daayira Ahmadiyya waaw président daayira Ahmadiyya ñu di ko nuyu moom woote na moom it bi lañ ko tuddee sëñ Babacar maam Mansour lañ ko tuddee asalaamaaleykum Pape Mansour ci xalifa bi waaw waaw ngi lay ziar waaye maa ngi leen wallaahi dañ la wàññil télé bi tuuti dañ la wàññil télé bi ñu mën a dégg. waaw. acca bisimilah jërëjëf Pouy bisimilah. maa ngi leen di ziar. delloo ziar. di bég lool lool lool lool lool. jërëjëf. wax dëgg yàlla sama xel dana mais lii mu wax léegi ci Pape ci Kebe. ci kër Soxna alimet foofu laa nekkoon. foofu lan daan jóge di ànd di dem ci tool yee ci Kër Madaaro bi muy bind foofu taw euh, kii zurnaaka zurnaaka yaa Mansuur yaa sanadi li desoon ci këyit yi sax man booba gën naa doon xele waaye fa mu ko yóbbu Kër Madaaro fa mu ne woon ci rombay jaar nga fa la ñu fare këyit yooyu sax nga xam ne kon lii Alioune wax loolu ñun dañu ko dund ci moom parce que moom lañu nu tuddee te fu nekk jaar na fi ak ñun xam nañu ci moom loo xamee ne nag wax dëgg yàlla sunu xel dal na sunu xool sedd na kuy kuy kuy kuy guy maa ngi dina di ñaanal nag yàlla na yàlla yokk seen fan surtout njabootu maam Moussa Ali gii te Serigne Mansour nekk ci bopp bi mook alxaaji Tawgour Abdou Aziz nekk ci bopp doom yi ak jarbaat yi Alioune ñu ngi koy ñaanal yàlla nag fan wu gudd ak wér xam na am na yu mu junj ne su ma ci àggee sax boo moytuwul dinañ jàpp sama nopp ndax ndax naka ni démb maa ngi ci xalifa bi falaa ndogoo fii ak moom kon nag man sama xel dal na sama xol sedd na waaye boobu ba léegi damay jéem a dugg rek mënumaa dugg. wallaay dëgg la jërëjëf. kon nag kontaan naa lool lool lool lool parce que man sama lépp ala ci ma suuf la. waaw na dëgg de. lépp nag ginnaaw moom sama lépp mu ngi ci sëriñ Babacar Sy Mouhamadou Mansour. ah muy sama sëriñ di sama xarit di sama lépp nag. ah loolu defe naa Tiwaawan yëpp seede na lool. kon nag maa ngi leen di ziar di ziar Seydi El Hadji Malick si Maodo ak sëñ Babacar si Abdoul Aziz ak njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp yàlla na ngeen ko yàgg taxawee yàlla na ngeen ko yàgg taxawee sama xadama am xadama xamatul leneen la lu may wax rek ndax xol bu sedd rek alhamdulilah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. jërëjëf ah doy na waar kii waxtaanee moo doy waar. jërëjëf léegi léegi nañu may rek comme ça. Alioune Diagne daal di terminer rapidement ci loolu comme ça ñu mën a sant ñi ñuy sant ñëpp gërëm ñi ñuy gërëm ñëpp. waaw euh, Alioune Diagne vas-y. Mansour ñu ngi koy nuyu sunu Pape Mansour. di kenn ci xalifa bi. Mhm. di am taxawaay lool ci Ahmadiyya. dëgg yàlla na ko yàlla fay. amiin amiin ku baax ku mhm. baax. Mhm. Pape Mansour ñu ngi ziar waa Mbaaw yëpp. Cheikh El Hadj Mamadou suur nag. keroog bi Cheikh El Hadj Malick nelawee. ba mu def ñetti fan li ñu nettali. ci la maam Sufiyatu téye ci loxoom. ànd ak moom ak maam Abdou maam Alaaji Mansour jël benn jàllaabe Cheikh El Hadj Malick na jàllaabe ba sax dafa wert ñii ne manto mu ñëw ba ci maam Alaaji mun maam sëñ Babacar mu ne maam toogal mu toog mu ne sëñ Babacar juraluma la ay rak ay taalibe ak i jaam laa la jural. loolu la wax keroog jooju ba keroog muy wuy ji boroomam mosta nangoo wuuteeg sëñ Babacar si lu baab sëñ Babacar bëgg ma nga ci. feeñal ko ci jëfam bennam bii mu am moom la ko tuddee. kilifa gi la ko daan wax kilifa gi. kilifa gi bu ne kilifa gi rek sëñ Babacar si la. waaw baatu xalifa ci sëñ Babacar maam mën Mansour moo ko njëkk a prononcé ñu nekkoon ay xarit ñoom ñaar ndax maam Sofiyatu mooy bàjjanu sëñ Babacar si dama lay wax ne la sëñ Babacar maam dafa rusoon maam Abdou. waaye homme de confiance am mooy sëñ Mansour mooy maam Habib. lum dul wax kenn mam habib la koy waxal ñom ñaar dañ daan déyoo ñom ñaar dañ daan ñepp dañ daan taxaw ni seigne babakar leung mam habib taxaw ak ne di wax mam abduna na bu gisee seigne babakar day seug du siggi waye seigne mam alaaji mansour mo doon doomu bàjjanam dañ daan dem juma ñom ñaar and di dox bam yag mam maam alaaji mansour coup de poule li ki mako netali nettali sëriñ job moko ko netali bu ko seigne babakar na tartal mun e eh, khalifa ya ngay magata ah eh mala laal eh, yo daanu eh yow nga ay way lañu ñu loon ñoom ñaar motax tax bo mu demone Côte d'Ivoire ta yag fa ci la binon ayaa xaasidan nahwal khalifatu qul lahu tahayyarat qalbi xayarat hayratan ay xayrat yow mi dem seigne babakar bo demé nga ne ko alaaji mën soo dama ngay doxal mission waye bu teddé du nelaw lu ko tax du nelaw mu ne tok lu tolok ñetti fan ñenti fan man alaaji mënuma ko mun ñu ne ko ki ngay ku la jaral mu ne fa aani fa aani bihi abal Mansuri, samsu zamanihi ki ma jaral ñàkk nelaw man alaaji Mansur mooy jantu jamonoom ñu ne kan mu ne bàyyi sëñ mansuur borom daara yi waaye wa misbahu ahlul ilmi yéen ñi borom xam-xam yépp aw jàng ngeen am mais xam-xam pire la koy niital ma nga ca dënnu sëñ Babacar Si baasilu xikmati mu ne mbooleem xeetu njëriñ yi soo ko bëgg a jëriñoo yàlla ko dëxañ ci dënnu sëñ Babacar ki ku ko wax li serigne nga ko jàppe kéro ci jumaa ja fa wa ajaban fa wa ajaban li shayqi la wa li shayqi li seyqi damirul mutakallim bu delu ci moom laqad لقد صلى صلاة الجامعون ولولا الصلاة salat la afsaduha bi taghlitin ne boo mune bo may la serigne mon serigne babakar man mako xam ñu ne maam sor kuy serigne babakar mune aminun nit ku wóor ngok naqiyul qalbi mune serigne babakar Babacar si set man mooy góor yàlla bi nga xam ne amruhu mbiram alaa dafa kawe maam xalifa maam man soo nee na sëñ Babacar si yàllaa kaweel mbiram ka tal ati fajrit mu ne mbiru sëñ Babacar mu ngi mel ni fajar gu xal balka kam sam mu ngi mel ni jant jantu njolloon waaye fi may tëjee ci moom sëñ Babacar mu ne xalifatu samsu diini waarisu malikin mooy san xalifa la boo xam daa mel ni mooy jantu diine waaye moo doonu Cheikh Alhaaji Malik alayhi ridal malika anna wa itrati kon da ngay dégg ne sëñ Babacar si relation am ak Cheikh Alhaaj Cheikh sëñ Babacar si relation bu sincère la woon léppam sëriñ baaba si la sëñ Babacar si léppam maam mën soo loolu loo man a wax danaan ah ba Amadou ñëw du takk sëy sëñ Babacar si njabootam njabootu mu xaddamam sëñ baaba si du tudd doom sëñ Babacar si même ijaasa bu koy bind danaan woolu maam Alaaji Mansour même ijaasa ne ko diw dañ ko war a bindal ijaasa sëñ kër si bind ko wala mu bind ko wala ñu wax sëñ Aline Gueye wala sëñ Moussa Niang bind ko ñu andi ko sëñ Babacar si bi ma walaaji maa doog a génnaat na sax daan dañuy wax ne ku ku sëñ Babacar si jox ijaasa te fekkoo ca tampon alaaji Mansour wérul mais ku alaaji Mansour jox ijaasa te fekkoo ca tampon sëñ Babacar wérul ma alaaji Mansour bu la ijaasa dana la eh, demal ci sëriñ bi mu tamponné ko ah yaa ngi dégg mais maam ala sëñ Babacar su bin la ijaasa nga jaar ci Amadou mu tamponné ko ah loolu moo amoon looloo doon dox ci kër gi kon nga xam ne que Cheikh Al Hadj Malick radiallahu nii la ay doomam daan dundee. amaa relation am nag ak Cheikh Al Hadj Malick moom mooy sédagement rek wax na ko sukurul wasaa'iti waajibun fa kayfa bi man saat manaqibuhu wallahu a'lahu mu ne nu ma mel El Hadj Malick la kon lu ma wax ci àdduna eh eh eh Sidi Mbaye dinaa laaj benn question lu tax maam El Hadj Mansour taggul Sidna Cheikh. yow gisoo benn xasida Maam Mansour bu mu wàcc si dansé hmm. du ngeen muy Maodo du ngeen muy Maodo si xasida Maam Alaaji Mansour gis nga ko yow asma amoo ko doo ko gis xam nga lu tax am na diiwaanu Alaaji Mansour waxul dëgg luy loolu Alaaji Mansour dëgg ah, li ngeen di gis du diiwaanam luqta tafaat yi la luy dafa bind diiwaanam ba pare li mu tagg Seexu Tijaan moo ëpp li mu tagg li mu tagg Seex kenn taggu ko mu lakk ca néegam ba ca Tiwaawan léegi nag léegi nag waaw léegi nag ya nekko yam ba woon Dakar fii xalifa bi ne ak yim bàyyi woon Thiès ak yenn yi mag ñi mokkal ak yi mu mujj dund ci mujj dundam yi mu bind loolu lañ dajale waat tuddee ko diiwaanam mais diiwaanu Alaaji Mansuur dafa lakk xaw ma dégg ngeen li wax. dégg naa li wax looloo tax doo dem ba moom fekk fu mu bindee Seexu Tijaan lii ñuy wax du diiwaan bi luqta tafaat yi la mooy yi ñu for dajalawaate ko ne lii la wax ci unité bi lii la wax ci baayam lii la wax ci àdduna lii la jàngale waaye li mu tudd bindu ci Seexu na Tijaan yi li mu bindu ci Seexu Tijaan yi buñ ko dajale woon mat na tom tom ndax yàllaa ko mayoon xariixa xariixa la amoon fu mu mos toog rek day bind day bind rek day cëpp xalima gi di bind diiwaan yi dafa yomb su daan bind daan na doo loolu maam Abdou rek moo ko ci roy laaj ko Pape Makhtar Kébé maam Abdou daan na boole juróomi xasida te bokkuñu xaafiya bokkuñu wasnu bii ne nekk baaxarub la siib bii nekk baaxarub kaamil moo tax Pape Makhtar Kébé ku jàmbaar la jàmbaar la Pape Makhtar Kébé jàmbaar la de su maam Abdou bindee bu xarixa bi nàccee su bindee dina xam bii ca bayit bee la war a bokk wala bee ca la war a bokk maam Alaaji Mansour na moo ko daan bindal boppam huwa bi nafsi day commencé benn xasida teg ba mu yàgg mu teg ko xëcc beneen benn bis daan na ci commencé juróomi xasida juróom benn bis daan na ci commencé juróomi xasida Abdou mbay xaraftu bi salma باليفاي مغانيا خدت لسواري موسيرات بواليا ما من سوت bind جتاي jotaay la بين rek cëpp توك gi خاليم بغي رد كو رك جوخ باي نين موكال لين def ko muy 44 بيت mu aji 1944 te kat kaay ma wax la kero bi mu ajee màkk bi mu ñibbisee bi mu ñibbisee sëñ Babacar dafa ko ne dafa ne mag ñi ko jëlee ca gaar ba dama ko bu mu dem këram de bu mu dem këram de dem këram de dugg ci sow yëpp mu dugg ci sow bi fekk sëñ Babacar si mu akalaat ko ñoom ñaar ñëpp ñu jooy sëñ Babacar si toog mu toog sëñ Babacar si ne xam ngeen lu tax man du dem këram dañoo soppante mu ne ah, mu ne ko yow gars yi dañoo aji woon yow aji woo woon oh. dangaa doxi woon mission ajiwaale ku doxi mission nag da ngay rendre compte alaaji maal neew fi maa maa la jox ndigam uh-huh. kaay toog ci saw yëm bi mag ñi ko yaakaar wër la nga rendre compte guerre bee am sama baay yebal góor gi Ahmed góor gi Abdou kan mu dem ñaan xaar ba jeer ba jeer tubaab yi di ñu testé ma yebalaat la nga dem nga ñaan guerre bi jeex moo tax mu ne fala maa danaw naa min sanal badri wan janaa la na sitru xataa zaala maa biya mil mu ne li ma xamal ne mission bi ma Serigne Babacar si sant am naa ko te nag kaay ma wax la kaay ma wax la Baye daa góor lii kenn waxagu ko yonent bi ah? déedéet war leen diwaane doo ko fekk ci Ahmed Sawqi doo ko fekk sax ci diwaan si Hadj Malick falamaa danaw naa min zanal badri wan jala kenn rek ko wax keroog ba ma jàkkaarloo roog bi la pavillon bi na tay ma jàkkaarloo sang wan jala la na situm pavillon bi na tay ma jàkkaarloo moom mille duma biya xam nga luy lool سل البدر لنا سترة زاد يا xam nga luy mi mil wujdi maa biya minal wujdi la mu ne mil wujdi xam nga luy njàqare ba ah, ku dem aji ji màkka di rakk sëñ Babacar si nga dem aji ñëpp di la xaar nga ñëw ne damaa dem jàq xam nga lum mu tiit ku day ni sëñ Babacar Si doon Seydi Hadji Malick àdduna di tàkk ñëpp mën a ñaan ñu yaakaar fenn furul Sénégal Sénégal yaakaaroon furul Tiwaawan Tiwaawan yaakaaruñ kuru sëñ Babacar sëñ Babacar Si ne kenn rek ko mën a régler mu ne njàqare boobu su ma demee ñëw te ñaan nga nanguwul ñu xeeb xalifa te wul ñoo xeeb sëñ Babacar kon man kon minel mil wij dima bi waaye ba ma jàkkaarlu yent bi laa am ne li may ñaan yàlla may na ma ko maanaam kooku kooku kenn loo yëkkati a diis moo la ko wax bi bi bi mag ñi ne ko waa yow euh, góor gi Malick waxa naa ne ko waa Serigne bi yow dañ ñoo jaaxal yow yow sa mbir bis bu xëyee di gën di yéeme mu ne eh, du man de góor gi la de. ëpp talo du man de Maam Laaj Malick mu ne eh, du man de Maodo la lu ngeen gis ci man rek weccatu Maodo la. xam nga lay xamal ne wala góor gi As As Diagne la mooy papa yi ñoom Mansour Diagne dafay defar néeg Maam Laaj Mansour mm. fekk fa weccet mu foog ne góor gi soxlawul weccet. mu jël wecce dugal ko ci poosam boole koog wecce tam bi mu defaree par maa lay mën sa ñëw ne eh, wecce bi ne fi <laughs> mu ne ah si mu a kay andi yaa ngay jaxase sama wecce ak sa wecce dóor wecce li di tànn bii laa moom moom ma bii <laughs> bii laa moom moomu ma bii bii laa moom moomu ma bii eh juróom bii sa juróom laa eh eh maa moom fukki dërëm bi ah ba mu jeex mu ne ko loolooy sa wàll ba fi sama wàll ah nga di koo jaxase ku mën a ràññee juróom yu ñu jaxase ci poos. ak cent franc kooku xam nga ne min ahlillahi rijaali wallahi min akbar rijaalillahi wallahi cheikhul haaji mansour kenn xamul noo koy def déedéet dafa am loo xam ne ba fi may tëjee nag mooy cheikhul xaw fi may tëjee mooy dafa am ku ma yónnee benn benn message mu ne ma alaaji mansour ku ko jullee bis ni tay heure bii net net net fekk na ñu jullee ko ba toog di waxtaan tay la vingt neuf waaw mars bisu àjjuma la tombeel maam Mansour ñu ngi ko denc ay minuit bi ñuy xadara la dog ci xadara ci jumaa allah allah la dog ci kër gu mag ñu fekk maam Abdou fu muy xadara déey ko ko na ko góor gi dem na te fekk na moom waxoon na ko sëñ Haadi dafa jaale bay de mun ne ko ee eh, toogal Haadi dafa am luy xew danga koy fekkee ah maam Abdou ñëw jaale si talaata la ko tàggu àllarba kon na day de mu ne ko ee eh, toogal ah, dafa am luy koy fekkee ajjuma mu jël xutba Seydi Hadji Malick jox ko mbaxana Seex al Haaji Maalik ko demal ci jumaa ji nga xutba jaaleel ma nit ñi sëñ Babacar si bu ma tudd bul tudd sëñ Babacar xaala laaw xaala rasul bi ñëwee mu ne ñoom sëñ jógu ñag e eh, nu ngeen gisee seen waaj ji ñu ne ko fa tabaarakallaa mu ne e kon léegi soon mën na tàggoo ah mais nit ñi foog ne dañuy fo day fo ab moom demul moom préparé na ay bagaasam am na loo xam na diggante ma na xalifa bi la du ma ko tooñ loolu du ma ci wax fa mujj ak moom ak la waxateeg moom ci li ñu mag ñi nettali ci ñu muñ mujj waxal la bokkal ci xalifa bii moo tax du gën a kenn ah. ku ko xam Alioune ah, yaa ngi bëgg a ma dem foofu laay daaneel. Ah, waaye li gën a yéeme bàyyi daa ko kii day laaj ku ko julle. fekk na booba ñaari sëtu Seexu Tijaan Serigne Sidi Ahmed mi ñu tuddee Pape Sidi muy dugg. Pape Sidi muy génn lay. waaw Pape Sidi mii woote. Ah. maa ngi koy bëgg a tooñ wëllu yu piir la. ku am cër ci yàllaa ngi nii ki woote léegi di jooy. dëgg de wëllu yu piir mooy Pape Sidi. turandoom la niru. Oh. turandoom la niru. maqaama yi nekkoon ci turandoo sëriñ Sidi Ahmed boobu mu ngi ànd ak sëriñ Mouhamadoul Habib ñu ñëw jaale si sëñ Babacar fi ñu leen dalal Baye ñoom ñu war a waaj pour ñibbi sëriñ Sidi Ahmed mii turandoom gént gi Seexu Tijaan mu ne ko doo dem sama xalifa day faatu te yaa ko war a jullee Allahu akbar mu ne ban xalifa man jaal naa sëñ Babacar moo doon xalifa bi may dem ñu ne ban xalifa mbaa jàmm la ko ma ban ko ban loolu ñu ko ko wax talaata ci àllarba ci ngoon alxames àjjuma bi mu jullee tamit ñu ne ko alaaji Mansour génn na àdduna mu ñëw mag ñëpp dajee ñoom nag ñu ne ko kenn du ko jullee kurul yow mu ne moonte sama maam loolu la ma waxoon kon yow mi ma doon laaj ku ko jullee jëlal boobu jëlal boobu leer <laughs> eh, ma dooli la ca benn yow mi ma koy laaj Cheikh Tidiane digal ki ko jullee mu jullee ko ñu ngi ko jullee ay minuit bisu àjjuma le même jour jour heure bii net mu ngi fekk mag ñaa ngi toog di waxtaan moo tax bis bi jotaay bi dafa am xaal ajjuma ku ci denc sëñ Babacar si ñu toog ajjum talaata àllarba alxames ajjuma ci même heure bii ñu denc ko ñu toog di ko waxtaanee jotaay bu am xaal la keroog Tiwaawan kenn talu la wax tey la neex ñëpp du fottas demu cheikhuna jërëjëf cheikh alxalifa Babacar si wa mansuruna hmm. rëtloo na képp koo xam ne am na xel دمك شيخنا شيخ الخليفة باب كرسي ومنصورنا نتلو كبكو خمي أمن خل من الأزمات والجفاف وغيره لكويد نمو إجوخ يالا يين يب سيني خل لكويد نمو إجوخ يالا يين يب سيني خل نكوي دين موي جخيا العين يب سيدي خل نكوي دين موي جخيا العين يب سيدي خل نكوي دين موي جخيا العين بعد مالكنا منصور سيد بالعلم والفتح والاسرار والحكم maa ngi tëjee foofu di jéggalu ñëpp euh, may nuyu nag sama xarit sama soppe sama doomu nday alaaji Pape Aan waaw moom moo waroon a def guddi gi man préparé wu ma ko woon sax moo tax li may xooma ci dara sànq ci ay cinq heures laa jokkoo ñu ne ma il faut nga ñëw def première partie jéem naa ko woo sax moom waaye jotaay bi jotaawam la Pape Aan yàllaa ko baaxal mu yor xol bu set baax lool ñun ñi ñëpp moo ñuy dalal TFM ku mel noonu nag diggante ak maxtaan yàgg bi mu koy xam ñun xamuñu ko fii mm-hmm. kërama su fi waree ñëw moo ko moom wax dëgg yàlla xaaj Pape maa ngi lay nuyu yaakaaroon naa ne yaay waxtaan bañ naa ba tàyyi nag mm-hmm. ndax yow sa jotaay moo ëpp solo suñu jotaay sa xam-xam moo gën a bënn suñu xam-xam sa fasaaxa moo ëpp suñu fasaa cofeel ci nit ñi gi ñu am ci nit ñun amuñu ko waaye dama bokk ma wuutu la waaye nag nga fexe ne àjjuma yow it nga ñëw nag nga bégal ñu su fekkee ah, astafurlah man naa yem fi ñu ma yem loo mm-hmm. du ma wax kenn kuy wax <laughs> waaye daal maa ngi lay jéggal bu baax di la siyaara dina ñëw incha allah di la ndokkeel te xam ne yow yaay man man maa yow mm-hmm. jërëjëf man lépp lu xëccoo di maye man duma ko am xëccoo ma dara lépp lu ñuy xëccoo bëgg ma lu nit di def damay jàpp ne maa koy def ku ma fekk muy waxtaan damay jàpp ne man maay waxtaan mm-hmm. man noonu laa gisee yëf yi parce que teg ku yaakaar ne tànt yëpp mën nga koo wax Eh, dugg nga ci loo xamul. juum nga. li fi Baye Ibou Sakho wax kenn waxu ko fi. kenn takkatu rajo di ko déglu. ñun ñii di wax yëpp Habib Sarr ñu raw. kenn melul nu moom. kenn takkatu rajo di ko xaar. Pape Mansour Sarr. mag ñoo ñoo doon tëdd ci kër gi. ñun ah. dañuy jéemantu rek. kon dañuy jàpp ne kenn ku ne. muy man a kum ci mën a doon. foo nekk di wax rek sa morom ngay wax. muy ñoom ñëpp nag. Mara Fall ak Ahmed Fall ak Souleymane ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. tuxkatu cigarette yi dañuy mayante meeg. Mhm. su fekkee dañoo ñàkk fula nag xaala laaw xaal rasul di nettali waxi jàmbur ñu teg la ca. Mhm. ba nga bëgg a wan diw na ko raw naa la wala du ma sa morom ba duñ nuyuwaat te ay cuune la ñu. dafay jeex yi yàggul yi ay mbalit la rek. dañ ciy def Serigne Babacar Sy Mansour mu ngi may dégg. daf ma mos a wax mu ne ma boo amee bu ngeen amee soxla bëgg mu faju su ngeen dee dem programme yéene leen ko ci. mu ne ma jag saa yu démb yi mooy seen tànt yi bu leen dem ci place pour lu ñu leen fa jox def leen ko ngir jaamu yàlla te bu leen dem fu ñu leen woowul te fu ngeen dem am leen digal sëñ Béthio moo ñu ko ko loo ko li may wax yëpp foo ma mën a fekk lu may wax dama koy noté ndigalam la mhm. kon nag maa ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp Abdou Aziz kontaan nañ bokk yow jotaay ak Baye Dago ay mag yu baax ngeen mhm. ñëpp a leen di sago mhm. mu jëw leen puso bi mu réer ñun biñu nekk xalé di ñëw boobu ñom bay mouri bay Paate Mbay bay mawdo Buri ño daan jitu ngeen top seen ginnaw ñun ñi nekk xalé tuuti buñu leen gisee kontaan dem ba mëna toog ak yeen ngeen boole seen bop yeena baax way ñun buñu gisaan rek dañuy bëgg man buma ma mosaan gis pap Dagor wala pap abdaj mbay damay dem man ma nga makka pour man sama affaire yeb baax na de waaw koku bu la mayé ci bopam di wacc ci kilifa yi di la bolé ñom duñu dem ben programme ñi fu ñu dem programme ñooy bokk añ ñooy bokk reer ñooy bokk néeg ñooy defandoo lépp macha allah te bu leen neexoon na ngeen aju mhm. yàlla may na leen marta boobu bi ngeen di tagg al yonent bi euh, Habib mais judduwul man judduwuma du siidi mii ñun ñi ñëpp ay gone yu tuuti lañ te fu ngeen dem dañuy mel ni ñun ñëpp bokk ndey ak mhm. léegi sax gisoo gisoo euh, siidi bi mu wax alaaj daagoor la wax waxul papa de dana Abdou Aziz ak alaaj daagoor parce que ñoo bokk écrit bi benn la même écrit la. boo fi nee naan maam paa bi tamit écrit bi ñoo ko bokk rek waaye boo nga bokk ci écrit bi rek noppal sa bopp. mu jeex tàkk. macha allah ñu sant la gërëm la. jërëjëf Abdou Aziz Guèye. jërëjëf ca bayti imaamu baytu Lamine Ndiaye. di kenn ci xalifa bi. woote na. Yirim Kayta ca Roso. nee na Roso ba muritani kenn na la woon. macha allah Abdou Aziz ah, ah, Abdou Cissé ca Sine Demba Bunna Sine Abdou. Abdou Seen nee na ñëpp a ngi seetaan. sunu bàyyi Pape Mansour kan bi ànd ak Pape Sëñ Bay Abdou moomam ak sunu yaay soxna Ndey Faatu ak sama turandoowu Serigne Pape Sëñ Bay Abdou ñoom ñëpp ñu ngi ñuy seetaan. Serigne Sène woote ñu ngi nuyu sunu Serigne bu baax. kuy suivre programme bi di borom xam-xam. Mm-hmm. Amira waaw wallaay wallaay ndeysaan di soppeeku képp ko baax moom xam-xam rek ko ko ñor te Amira dafa mën a jàng de oh. loo wax lu jub xam na ko bu jubul xam na ko si Malick fa mu ne ñu ngi koy nuyu di nuyu mboolem ku dégg arab arabiyatun la tatakallam lugatul arabiya kama tuhib waaw arabiya la de ku jàmbaar la ñu ngi koy siyaara bu baax a baax yaa sayida nasuruki siyaaratal istimdaadi fa anti fa anti habibatun lana wallahi naxnu naa jamian ki ak Ousmane Diaw ca Kaolack. waaw waaw Abdou mu ngi ñuy seetaan. waaw waaw waaw Maasu Dramé ca Dramé Escale. nee na waa Salim kenn kenn Jim Dramé Jim Dramé ca Nioro Dirib. ak waa Kër Makumba. waaw waa Kër ñoom Alioune Dramé. góor gi ah, euh, Thierno Ahmed Sall. ca Géejawaay. mu ne nag ngi nuyoo. Mouhamad Moustapha Niang ci Mbour ak Soxnaam. ñi ma woo dañoo bari yónnee message ñëpp daam ñu dëkk Koyaande Kanji waa Bignona. nee nañ kenn nelawul Abdou Aziz ñu ngi lay bëggee yow ak Pape Dago ak groupe bi ngeen àndal jàppalantaay Sénégal ñëpp a ngi bëggee ñëpp a ngi bëgg ci sunu maam ju baax ji ñu waxtaane nga xam ne ñun ñi wax xamuñ ci moom dara waaye nag Cheikh Ndiaye di suñu rakk moom tamit mu ngi seetaan ca parcelle mhm. nee na waa parcelle yëpp kenn nelawul télé yëpp a ngi Malikia tey macha allah dafa mel ni Cheikhul Xaw moom dañ ko war di biis bis bu ne rek ak Serigne ak Serigne Sène mu ne Serigne seen waaw seen Sène Serigne ku baax Abdou nee na ku baax Fat Diop Fat Diop gàmmu teewoon ñun ñii ñëpp lay solal ñu ne yéen ñii bu génnee ma yéen ñii ñëpp defal ak yow yéen ñii ñëpp man bokkuma ci de yéen ñii ñëpp jay na ba kebe waaw waaw na ba ku baax waaw ñun ñii ñëpp dagg ay yére di ñu jox jay na ba kere di di di di sëtu maam Mamaloo ñu tuddee ko sunu maam jay na ba kan sunu maam jay na ba Kamara waaw nday xadi nday xadi albis anamu nday xadi albis benn soxna Ndeye kadi Albes sama sama waso woon maa ngi koy ziyaara bu baax a baax soxna su baax Pape Faye ca Sali nee na waa Sali Mbour Abdou nyepengi seta Mbour ñëpp a ngi kenn ñëpp a nga dëkk bi. si Mbour Sali waa ñëpp a ngi seetaan waa Sali. Papis Niane nuyu ma suñu yaay maman Dieng ba Doucouré bu baax baax. ak euh, ñëpp macha allah waa kër Makumba ñu ngi leen di nuyu. waa Makumba di leen remercier alors euh, dañuy déglu rapidement message bi nga xam Matar Ndiaye yónnee na ko bu ko defee ñu ñëw nag ñu Euh, Matar Ndiaye yónnee na ay ay kàddu cant ay kàddu gërëm euh, ci ci guddik tey gi bu ko defee tamit ñu ñëw jël ay jël euh, jël kàddu cante gërëm yi surtout bu bu hmm. aja bu ajaratu paala ni ko defee woon daaw noonu lañ koy defaatee ren daaw amoon daaw daaw amoon na daaw daaw daaw dañ ko joxoon ay teraanga yu bari ren tamit dañ koy joxaat teraanga yu bëri lu ci mel ni billet Fès waaw soxna Ndeye Paala jox nañ ko billet Fès

mbokk yi nga toogal ñëpp di leen ziyaara di leen bàllu àq di leen ndokkeel ci guddi gu tedd gii ñu nekk di ñaan yàlla yàlla nangul ñu suñu koor nangul ko mboole mu jullit waaye di ñaan yàlla Sénégal yàlla dina a tàppe xol yi yàlla def ci jàmm def jàmm ci àddina bi yëpp it et eh, xanaa bëgg bëgg rek moo tax ma ne naa la yónnee message bi mm-hmm. nga jottalil ma ko mbooleemu nit yu toog ci plateau bi di ko commencé ci sama soppe sama xarit sama mbokku taalibe di suñuy bàyyi Abdoul Aziz Mbaye ak waa kër maam Moussa Allé Mbaye yëpp mi maam Mansour di maam Daw Góor ak njabootu maam Moussa Allé yëpp waaye di nuyu it équipe Malikia TV yëpp nag di leen félicité ci liggéey bu rafet bi nga nekk te mooy liggéeyul yàlla di liggéeyal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye it mooy liggéeyal képp paskono ci yonent yàlla Muhammad rek te bëggu ko ñu ngi leen di féliciter et eh, di wax nak ñu tay dama bëgg lool sax maa ngi bitim réew waaye sama sañoon plateau boobu tey maa ngi yéen a koy bokkandoo toog assiste ko ba mu jeex eh, sama sañoon yi waa kër maam Moussa Alla yooyu ñëw bu ñuy ñëw maa leen di teeru tatagal leen daf jox leen seen wàccuwaay waaye daanaka sama xel da ciy dal ndax seen kër la ñu ñëw ndax ñoom it ku ñëw rek ñoo la war a teral ñoo la war a teeru mm-hmm. na ma ko mën a defee ci palaato boobu ñoom kenn ku nekk ñoom mën nga loolu nag dalal sama xel ñuy ñaan nag ci barke yàlla bii ñuy waxtaanee tey di Maam Mansour ñu ngi ñaan yàlla suñu borom dolli ko ay leer dallu ko ngërëm bi jaay Moustapha moom ak way juróom bu tedd bi di Seex Alxaaji ak Seydi Haaji Malick Sy radiyallahu mu bokk koog mboolem ay magam ak ay rakam mboolem njaboot Seydi Haaji Malick yëpp bokk koog mboolem mu jullit yëpp suñu xol rek fees moo tax man ne naa la yónnee message bi. ñu ngi nuyu nag waa Sénégal yëpp.

yàlla ak bëgg maam Seydi Hadji Malick ak it cofeel bi mu ëmbal ba mënuñoo gàntal dara moo tax mu ñëw ba ci plateau bi ñokk ñokk yéeg ba cinquième étage li muy metti metti li muy tële tële yëg naa ni forcé ba yéeg mhm. ah loolu nag yàlla mi am pay mu ngi ñaan yàlla fay ko defal ko ko muy ngërëm mook mboolem ñu ma àndal defal ko ko it muy sutura bàyyi man man boole ñu mu àndal defal ko ko it muy teraanga àddina ak àllaaxira defal ko mbooloo mi jullit asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf eh, El Hadj Makhtar Ndiaye Amin eh, ñoo déggandoo eh, kàddu yooyu nga xamante ne Makhtar Ndiaye yëkkati na ko jëmale ko ci li nga xamante ne mooy. Euh, staffu euh, Malikia bi waaye tak jëmale ko ci yéen ñi nga xam ne tey yéen a ñëw euh, pour bégal ñu bu baax a baax ci Seydina Mohamed rawatina ci bés bu tedd bi Papa Abdou ñoo déggandoo kàddu yi de waaw ah, rafet na jëkk na mhm. man nag dama ànd ak sama kilifa waaw di sama wéju sama lépp mhm. tabaarakallaahu gën maa jekku kaddu macha mhm. allah moom wérul mhm. wallaay te it amoon na ngànt gu mu ñëw mhm. te wax na ma ko mhm. te ngànt lu doy ngànt la ngànt nag kenn du ko weer da nga koy yëg lu ca ma da ko fexeel ba ñëw rek ndax mu dëgëral jotaay bi ndax moom mag moom mag moom mu mag bu ñëwee rek bàyyee lépp ñëw batul nga di ko laaj lu tax nga ñëw kon la ko tax jog jóg réy na ci moom ñu ñëpp moo ñu jur mhm. te tamit xalaatam jekk na te rafet na nga bëgg ko bàyyee kàddu gi d'accord mu wax waxaaleel ku bëggoon a ñëw te ñëwul mhm. nit ñi bëgg a fekke lii bari na wallaay dëgg la bay ndax ki ñu ko askanale moo am fu mu toll ci ñu baax ji wax ba ñëpp de mm-hmm. wax ba ñëpp de mm-hmm. ci ñu ci moo am fu mu toll ci ñu baax ji mm-hmm. moo tax ñu baree baree bari foogu di woon daan dina demee nii waaye yàlla lu mu dugal loxo mu am solo barakallaahu bëgg ko bàyyi kàddu gi ndax su ma ci xuusee yi du am njëriñ dëgg la mbay. comme que tudd naa loolu te itam mu moom ko. ndax mhm. wax naa nit soo bëggee jubóog moom. Mhm. da nga koy jox cërëm. koo jox cërëm. Mhm. jubóog moom. koo fi xañ cërëm. rayante moom ak kóoroon. day joxante cër yi ndax ku amul cër doo joxe cër. néew ma ñoo ko am de. waxuma loolu. waxuma waxuma ni am naa cër. doon feeg lu nit lu nit moom ma yëkkati ko jox ko ko. lii cëram a. te itam ñun ñëpp ñoo àndandoo jox ko loolu. laaju ko de. ñëpp ñoo àndandoo jël cër bi jox ko. tabarakallahu am na lu war a wax. Mhm. mën naa ko. Mhm. waaye nag moom ci gën a jëkk de. alhamdulilah waaw ah, barakallah. macha allah bisimilah ñu bàyyi ko kaddu gi. bisimilah Pape Balogue jëlal micro bi. Ah, sant yàlla bu baax. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin di julli ci yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. kaddu yu néew rek. Mhm. Ah, bi wane na boppam. ki ñu doon waxtaane yi wax dëgg yalla ñepp bit bég bit ñépp a bég ñépp mhm. rek de kuy jullit rek mhm. te bëgg lu baax mhm. bég nga tay kuy jullit la ni te bëgg lu baax bég nga tey bég nga mu jëm ci yalla nga mu jëm ci Muhammad bég nga yit mu jëm ci Seyyid El Hadj ñu sant leen yéen yéen ñi ci télé bi jël cant gi nag teg ko ci loxol Cheikh Sidi Mouhamadul Mukhtar Njaay yàlla sàmm ko yàlla wattu ko ku lay bégal ci la mu am danga koy bëggal ci li nga man loolu rek mooy wax bi beneen bi ci des nag mooy teraanga yi lépp ginnaaw yàlla ak yonteelu Muhammad ak wayjur yi du nun Seydi Hadj Malick la moom la lépp moom la waaw Seydi Hadj Malick mhm. mu jëflanteeg na mu jëflanteeg góor ga muy góor gi mu saale ñi ñëpp bàyyi ko ci mhm. ñi fi toog ñëpp nag kenn raxu fa tabaarakallahu la mu moom ba léegi ñu koy suuxat te mënuñu ko suuxat ñun dañuy jéem rek waaye ñi ngi jéem nag yàlla defal nañu sutura ci mbaaxam ak tedd ngam ba am ñun ci jur ñooñu ñu ci jurit ñu ngay jéem te ñoom it ñañu jur ñu ngi leen di jéem a jéemal <laughs> yéen a ngi jëf ay teraanga mhm. teraanga yi ngeen di jëf bu doon ni nun la duñu ko jëf dafa am lu ñuy xoole ak lu ñuy dégloo moo waral teraanga yi te li ñuy xoole ak lii nii dafa lépp ginnaaw yàlla ak yonteelu Muhammad si Hajj Mali rek la lii def nañ ko fi daaw mhm. yàlla may ñu dund ak wér ñu fekk ko mhm. li ñu ko yàlla may ñu sant ko alhamdulilah rabbil alamin ñu defaat ko déwén tawgee ko nii waxe ko nii te ñaar lañu def nag mhm. benn bi cab dasi bi ngeen ko def benn bi nga def ko ci nun ak ma maag Mansour mhm. mu rafet lool ngeen jël nag booba responsabilité lu jëm ci wàllu tagg yonent bi teg ko ci loxol ibrahim mii di sunu doom muy magu xale yi ñoom ñëpp ñu bokk ndey ak baay nag mu sawar ci nag lool léeg-léeg mu jëli sax keneen koo xam ne kii bu ñëwee fii ñun rek lay wax boo nekkee ci biti wala nga nekk fële te seetaanoo télé wala nga dégg da nga naan gone yaa ngi commencé ña ngay way te fekk la loolu nag li ko waral te barkeel bu ma nga jógee si xaj Malick jalla waadu moo ko wax góor gi si musaale loo bëgg waxal loo bëgg rek wala yu yàlla boo bégal ba mu ne la loo bëgg. Mhm. nga ne ko lépp loo xam ne bàyyikoo na ci man rek nay tagg yonent bi. loolu barkeel la. Mhm, ñu sante ko yàlla nag. waaye damoo wunu ko tiituroo wunu ko. Mhm. beneen bi ci des nag nga baal ma entre parenthèse. waaw euh, dama bëgg bu ñuy ñëwati fii. ñu wut sécurité ñooñu ñu tudd. gros bras. Ah, déedéet sécurité sécurité. wut leen ko. waaw parce que léegi ñëpp dañuy topp. defe ni yor nañu xaalis te yoruñu xaalis non dama lay wax rek dañ leen a agressé. parce que dañ leen di seetaan ci média yi. waaw boo liggéey ñu ngi leen di seetaan fee boo liggéey ñu ngi leen di seetaan fee boo liggéey ñu ngi leen di seetaan fee ñu yaakaar leen di téléphoné ak li liñ leen di jox ñi ngeeg alal nañ ñu wutal sécurité. d'accord. moo gën a wóor ah. waaw mu kalaf du daw. te war naa ëppale boppam daw. bu doon deeyit bu mu daw. du kon nak nañu wutul wutal sécurité d'accord buñu génné fi ñu top ñu and ak ñun ba ñu ag suñu kër inshallah parce que dinañ ag ci kër ko xamni gi du suñu kër ci ñi mhm. waye ñun am nañ fi kër mhm. waye du ñi ño tax may wax ci dakaru gi bu ne taxaw ci buntu ba di fëgg ñang leen top bu leen yexé ubbi fa lañ leen di fek ki fan ko fek barki dem nañ ko fexé nak d'accord jërëjëf benen bi ci dess moy teraanga jigéen yëkkati mu dem ci soxna Abdez wa ajaratu ndey paala muy euh, Fat fal la tudd Fat deug turandoo moo sant Fall ñoo ngi ko ah, ma sha Allah turandoom Fatou Bintu Rasul la tudd turandoom moy sama soxna turandoo bay daaw góor mhm. moo doon denc maam paala mm. maam paala nag doon ko baax te yaatu mhm. taalibe yi tudde ko maam paala ndeysaan loo tax paala bi mm. danaan togg di joxe rek baax lool daaw góor moomu nag mhm. bay daaw góor moomu moom lañ ma tudde mom sax momu ma tuddal boppam. waaw mom dañ la siif waaw momu tuddal dama gane adina, entre parenthèses rek. Mhm. fekk fa papa mu fekk sëñ Babacar yónni ko mission. waaye nak avant ñuy tudd ñëw na. Mhm. bay Mansour Alaaji Mansour radiyallahu taala anhu mi ñu doon waxtani léegi. Mhm. yabal magi jàkk ji ñu ñëw pour tudd si. taseeg sama turandoo bay daaw góor fu ngeen jëm laaj man suur góor gee ñu yebal pour ñu tudd si moom di tudd naa koo pare ñoom ñu dellu waxu leen kuñ ko tuddee dafa ne mën tudd naa pare daal di ñoom ñu dellu dem ci laaj Mansour laaj Mansour war leen ma daaw góor ñu daaw góor gi daaw mu ñëw ba Mansour ni ko waaw daaw góor ñi maa leen pour ñu ñëw tudd si gone naa ko ku baax ki mun kooku tuddee mun ko sans bopp daaw góor <laughs> am nga fulla ah. macha xam nga loolu mag ñee ko man waaye ñun génération bi mën nu ko. nga jël nag teraanga jooju. Mhm. teg ci loxoom. Mhm. Maodo ñaamaa ko jur. bàyyi ma dàq na tëgg yonent bi. waaw la ko wax. ñaama ko Maodo ñaama daaw góor a ko jur. daa góor ak musaale. daaw góor ak musaale ñoo bokk mën naa wax sax ñoo bokk ndey ak baay. benn baay. benn baay lañu bokk waaye ñoo bokk ndey ak baay ndax ca seen maam seen ñaari maam bokk ndey ak baay mu jur nag soxnas kii ñu yëkkati dénk ko ko yaay kii moo wàcce soxnas baayu ndey paala yaay kii tudde na ko doom sax doom dafa dundul bàyyi kii moo tax bi ñu ko jëlee jox ko ko ma ni laaxar wa mën naa ne yaayam lu dee ca kër baayu ndey paa la mbaa lu fa xew yaayi kii mooy def lépp moo koy wàcceel soxna ku la wàcceel soxna kay moo si lépp def lépp wallaay doom baay lañ mu nekk nag jigéen joo xam ne ji ju am jom la di ñaq waaye nag jëkkëram jàppale ko nag këru taalibe du neex day neex tey boo lëggee mu naqari mhm. waaye nag kaay ma la mm. lu neex rek la ñu lekk de ah, lekk naqari loolu bàkkee nañ leen ko waaye dafa ñëw lekk ca ceeb ba mu neex la mu ni waaw ceeb bu géwél bi lu tax mu neex man ko ñu duñuy géwél de ay taalibe lañu. wallaay dëgg la. ay taalibe yuy tagg yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ay dañuy géwal de. wa sallam na bu yàgg ci ñun. ay taalibe tagg yonent yàlla Muhammad lañu. parce que dañ ñu juruñu ñu ci ngéwal. déedéet ñun juruñu ñu ci ngéwal xamuñu ngéwal. ñun dañu jur ci yonent yàlla Muhammad ci barke Sidi Xadim ma ngéwal ga fa ne woon lépp El Hadj Malick ko dindi. xot bënn dënd ya sol nu dëndam. loolu la moo doon def. Mhm. du ñu amul. wax naa ko barki dem naa ne ku fi toog ñu la géwal nga nangu ko nag kooku sa affaire la waaye ñun du ñu géwal ah. du ñu géwalu kenn it. mooy taxaw tagg géeram ne ko maam diw sa diw moo rey diw diw ñun déedéet. ñun dañuy taxaw tagg yonent bi rek. rek sallallahu alayhi loolu nag bu amee. Mm-hmm. ngeen jël xeeti teraanga yi. Mm-hmm. di ko def ci nun mm-hmm. boobu dundum. yonent yàlla Muhammad. sallallahu alayhi parce que ñii heure bu nu génnee. Hmm. sol yére yu rafet. Hmm. ku leen gis xelu ka leen gis xelam du dem ci ñoom xelam ci yonent bi lay dem. Ah. sallallahu alayhi wa sallam. chaque jour ma wax leen. wallaahi. moo tax man leen. dee leen sañse. dee leen sol lu rafet. Hmm. dee leen wax ndànk. seen daal seen wax ca kaw daal nay tagg yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi ci. ñoo leen ci jur waaye ñi ngi ci. di ci sant nag njabootu Seydi Hadj Malick ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel que mhm. ci jiitu muy Seydi Boubacar dana yàlla guddal fanam yàlla na guddal fanam dana fi yàgg na fekk leen incha allah ñun nag dañ cee xam dara ndax dañoo ànd ak moom mhm. ñaar fukki at ak ñaar wala ak juróom ànd nañu moom ok mhm. ñun ñaar dong la daan àndal bu ñu àndee moom sax danga naan nii nii ñu ñu mel kii sax mar lay tali. ak woyefam ak mbaax surtout kii nag. te saako ne na ko mar boo xal ci xale yi bare yàq nga leen lool surtout Abdou Aziz daa na moom fàllewul kuy dund. waaye mbaax goo xam ne gii lépp ko lal. sëñ Babacar bu ñu àndeek moom balay dugg ci néegam hôtel yenn dal bala cay dugg ñun lay jëkk a xool ba xam nan la ñu placé. di nu visité di nu toppatoo ginnaaw li tëgg yonent bi fa no newon ba mu jël ñu yobu jag saw ci kanam wala jabdu bu doon mon kon tay mar day tali oh. yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla sàmm yal ko wattu mom ak ay rakam Cheikh El Hadj Malick si Maodo ak Seydi abdul uh-huh. Moulay Aziz ak seigne Mansour mu gore mu bax mi te uh-huh. nopi ah. tay borom farata ah. di delu nak di yeesal sunu wóllëre suñu xarit suñu soppee muy maam Ousmane mu Cheikh Al Hadj baax Aziz Dabakh bëgg ñu lool yal na yàlla yeesal yërmande allahumma amiin incha allah amiin baay yal na koy ay bàyyam teeru amiin baay allah yow tam Cheikh Omar ñu ngi lay sant jërëjëf sa taxawaay rafet na jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax sa kàddu rafet na fa tabaarakallaahu di sant yi ñi nekk ci kër gi te yor télévision yi dëgg la jërë ngeen jëf. jërëjëf na leen yàlla sàmm. na leen yàlla taxaw. yàlla bi nga xam ne moo yor mbaax. yor taxaw. yor gudd fan. yor wér. yal na leen ko yàlla defal. ci barke ki doon waxtaanee léegi. waaw monsieur El Hadj Mouhamadou ko de. yàlla na ko yàlla def de dara jëyantal di leen gërëm bu baax techniciens yi. caméraman yi yéen itam. leen di sant. yal na yàlla gërëm leen. li ngeen def. bu nit ñi bëggee bay woote. ak di def lépp génnu leen ci de. dëgg la yéen a ngi ci biir. ñaanal na leen yàlla taxawu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñaanal Paala yàlla yàggal ko tam. looloo taxoon ma waxee ne maa gërëm Paala ma ni ko yaa koy wax. wallaay kenn yaa koy wax dégg nga nee naa ñaanal Paala. wallaay ndeysaan ko ñaanal bu baax suñu yaay ju baax ji. waaw li ñaanal li ko ñaanal doy. yàlla ah, barkeel ko. allahumma amiin waxal nee na yàlla nee na eh. Abdou nee na waaw yàlla barkeel ko yàlla barkeel njabootam yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér te yàlla na nga yem ci moom waxal amiin amiin <laughs> jërëjëf Mbaye <laughs> jërëjëf macha allah <laughs> Saïd. naam Saïd naam. kii mi ngi nii de. Ah. boo ko arrêté leneen lay wax. Ah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape Dagour. waaw entre oh. ah. ngeen baal ma. parenthèse nga tijji bëri na de. wallaay euh, euh, sunu euh, doom ji. waaw. rakku bi ñoom ñaar ñoo bokk day bàyyi. moo am bés boo xam ne moom lay taxawal. waaw Cheikh Omar yaa ngi may dégg. maa lay dégg waaw moo am bés boo xam ne moom lay taxawal. Mhm. fii ci waagu Ndiaye. waaw ci mbedd mi ñu tuddee sëñ Babacar Mansour. waaw ci garage yu Guédiawaye. waaw mi ngi koy def nag waaye nag mi ngi ko mi ngi mi ngi mi ngi ko wéer ci muy guddi yonte Yàlla Muhammad. takkusaan lañ koy commencé. incha allah waaye nag mi ngi jël cër bi. Mhm. jox ko waa kër maam Musaale ak waa kër góor gi ëmman mbay Maodo bàyyi Mansour mbay mu baax mii doon woote léegi Mansour mhm. Cheikh Oumar mhm. Mansour ñu ne moom ñoo dëkk mhm. mag mu baax la ku mën a defar ku mën a wax lu baax Mansour boo amee lu ko naqaree dafa dégg lu ñaaw te buggul dégg lu ñaaw day defar rek ku ko déglu mhm. na nga ko war a dégloo mhm. bu la yàlla dimbalee mhm. doo juum te mag moo xam ni dem na ànd ak ñu bare dégg lu ne dem fu ne teraanga jëno mu tegu ci loxoom ko ku mu waxal daf lay bëgg a dimbali yal na yàlla guddal fanam amiin amiin yàlla sàmm ko yàlla wattu ko wattu nu wattu suñu njaboot wattu mboolu mu jullit ak suñu njaboot njaboot seen xaj maa ñi ngi ziyaar jigéen ña ñu baax la ñu ñu ñu sopp la ñu jigéen ña bu leen di taggal yonent bi dañuy jooy oh. la commencé ci njabootu si Hadj Malick muy jigéen ña la commencé ci njabootu Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh muy góor ña muy jigéen ña oh. loolu sax jarum ba koy guddal Seydi Ahmed wax na na ko léegi rek oh. moo téléphoné di jooy noonu la ñuy tagg yonent bi ci seeni kër ñuy jooy fu leen ko waxale ñu kontaan lool boole koog jooy ak génne seeni alal joxe yal na yàlla guddal seen fan. amiin amiin Baye jërëjëf na leen yàlla taxawu yàlla bu leen kenn ëppale ci kër Alaaji Maalik. amiin amiin ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi. sant nañ leen gërëm nañ leen. jërëjëf di gërëm nag suñu waa kër. waaw suñuy soxna. waaw. waaw ñu gërëm leen. ñoo jur ñi uh-huh. moom Nagoy moo jur mooy yaay Sidi mi. ak uh, Yaaxadi. Uh-huh. mooy yaay Papa Abdou mi. ak ñeneen ña ci kër ga màggat soxna màggat ma nga fa. ñoom ki ne tabaar yaatu na. Mhm. yaatu na waaye daal ñu gàttal ko ci ñooñu rek. d'accord ña ci des ñu yóbbaale leen. waaw ñoom boo tuddee yaa buri sàmb rek. waaw ñoom ñëpp dugg yóbbu nga ñëpp ndax moo jur ñëpp. mu ngoog yaa buri sàmb moo jur ñëpp maa ngi maa ngi nuyu Pape Mansour ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw Mahamadou Mansour. ak euh, am na yéen a ñëw soxnaam. waaw suñu yaay Thiam. Fathiam euh, Fathiam bi mooy yaayu ngañ mooy yaayu ngañ bëgguñu lool nag ndeysaan ñu ngi koy magat sàmb waaw bëgguñu lool magat sàmb waaw adda tukki moom mooy soxna si Mansour waaw Mansour mooy xalifa bi ku baax ku baax baax te woyof wallaahi macha allah jërëjëf jot rek ak yitteem moo tax. lépp lépp merci beaucoup merci beaucoup Mugok. ngoog tàkkusaanu euh, soppay Sidi Ahmed Mbaye ñu ngi leen koy fàttali ce sera le 27 euh, avril euh, fofu ci diwaan Waagu Ñaay Esplanade bu Serigne Babacar Sy Mansour du ñu aussi tàkkusaanu elage Ngagne Mbaye ce sera le 13 avril momit Ngagne Mbaye tàkkusaanam gi fofu ci diwan 13 pap Abdou maa yow kañ la def suñu tàkkusaan MBC foog ñu def suñu tàkkusaan de ah. abal xaw bi.

Euh, de la part de qui a été bien sûr euh, moi euh, mam As Mbaye merci beaucoup Nous ñi encore une fois ajaratu Paala nous, Paala ñu koy nuyu yaram si Sidi Sidi am kay agent de sécurité nous Moussa sécurité. Cheikh Omar aussi euh, suñu soppe suñu xarit borom borom Atijani business di agent de sécurité en même temps euh, di di way di yëngu tay bi tey dafa tey dafa ñëw ba sama kër indil ma montre ak lunette né mako def ci bésu bal xaw bi. est-ce que ñu mako wa kër ah, ah, mu yor mu tuddee ko nak Atijania business. yàlla mu ngok mu ngok Cheikh Omar yalla yalla barkel euh, Ibrahima Mbaye wa Gambie yóbbante nañ ma ci yow né nañu dañoo bëgg ñëw tag fi Seydina Mohamed né nañ fokk ñu wutal leen ñu joggé ba Gambie ñëw fekkee li nga xam ne mooy académie Ramadan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waa Gambie yëpp euh, tey jot naa fa message yu bëri euh, ñoom Diop mobile sob ak ñoom jóob mbuus ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak Madiop euh, El Hadj ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen remercier Lobe Sarr mu Serigne Babacar si sama cousine nuyul ma sama bàjjen Ami Pam bu baax a baax yéen ñëpp ñu ngi leen di Adja Ramatoulaye Dieng ah mu Dieng bu Gàmbi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yaayu Malika suñu yaay macha allah chaque jour day seetaan moom it euh, nit ku baax la madame baas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la bëggee euh, Bibi mon frère euh, merci beaucoup Ndiassé waa kër Serigne Babacar Sy Mansour Tivaouane Couture ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax merci beaucoup Ndiassé yàlla yàlla barkeel Modou Amar Tivaouane 24 ñu ngi lay nuyu bu baax a baax jërë ngeen jëf Euh, merci beaucoup Daouda Ka yéen ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax euh, kontaan nañu ah Ngañ Baay lu mu wax nii sax nee na euh, Ngañ Baay lu mu wax nii sax mu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax jërëjëf ah macha allah neena na mayaat na ma 3 pièces miin nga ko ci man chaque at mu may ma 3 pièces Ngañ Baay daaw bi ma soloon ci ci ci bi ñuy bi nga fi ñëwee. Ngañ Baay ak ma ko ma mayoon. waaw te man ma gàtt. waaw muy sama sang waaw muy sa sang wax ko loolu jeex na kon ngañ baay léegi yi nga war a jox Pape Abdou yow jox ma ko dégg nga <laughs> amul benn problème incha allah merci beaucoup yàgg nga maa defal euh, teraanga yu mel noonu yàlla yàlla fay la merci beaucoup euh, ngañ bàyyi ñu ngi lay euh, nuyu bu baax a baax merci beaucoup à MBC merci beaucoup naam waaw jigéen. waaw maam Yacine. maam Yacine maam Yacine Mbaye. Mbaye Mbaye mooy Jaal Mbaye. ah waaw ak ak Aïssatou Bousso ñu ngi koy nuyu baax a baax gërëm. di gërëm ah. sëñ Alioune Diagne mi moom it. waaw wax dëgg yàlla. wallaay ndeysaan ci kaddu yi fa tabaarakallaahu. jërëjëf yal na yàlla yokk sa xam-xam. jërëjëf ku baax nga. jërëjëf ku baax la wallaay ku baax la wallaay ku baax la yàlla yàggal. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay ku ma jóob ma jóob ma job ma job ma job jéy. ma jóob jéy. ca Paal. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ku baax a baax a baax a baax. Mansour Mansour maa ngi lay ziara Diouf. ma jóob Mansour Thioub bal xaw mi ca Kër Moussa. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Euh, Mansour Thioub bal xaw mi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. ak aji Maguette ndeysaan. aji Maguette jabaru jabaru sëñ Babacar Mboup ca ca États-Unis. d' accord incha allah jërëjëf mu goog

di ko ziara mu ngoog di leen fàttali nag suba incha allah mooy conférence su Serigne Moulay Sy abi foofu ci diwaanu Bijilo Gambie ci ginnaaw hôtel Baobab waa Gambie yëpp nañ dem teewe ko incha allah euh, Serigne Moulay Sy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it euh, teewlu na émission bi ay yoon yu bëri bëri woote euh, Ibrahima Diaw ñu ngi lay nuyu Ahmed Fall Atijani mu ngi leen di yóbbante nuyoo mu ngi leen bu baax a baax Ahmed Fall Atijani mu ngi leen di yóbbante ñu ngi koy nuyu bu baax Optilux léegi de xanaa <laughs> xaw la ah merci beaucoup depuis États-Unis merci beaucoup à nos partenaires au Royal bijouterie Serigne Babacar Sy ñu ngi leen nuyu baax a Sam's euh, jeu de dames Canal Plus euh, euh, Basic Bank Atijani Business Cheikh Omar Sécurité maa ngi nuyu baax a merci Yalla Yalla Barkel, lunette yeeg Yalla yal na jaral sécurité bi tamit Yalla si yàlla sàmm Ousmane ma ca cité mbay Mbaye ku baax la Pape Abdou mu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax Jaw Ousmane Jaw ah, Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax a tamit waa Tëngéej Serigne Niel waa Tëngéej ñu ngi lay nuyu Pape Djibi Diop d'accord merci beaucoup merci beaucoup Ibrahima suba suba incha allah euh, on se donne rendez suba soobee yàlla Habib Kébé ah sama sëriñ boobu ak Aline Badara ce sera une très très euh, mu merci beaucoup Aline Badara Ndoye souba ak Habib Kébé donc suba ci samedi bi ce sera tout à l'heure d'ailleurs Inch'Allah en attendant de vous retrouver tout à l'heure merci beaucoup yéen Yalla yalla faylen yàlla fay leen ci euh, addiya yi ngeen yónnee gis nañ ko jërë ngeen jëf yalla na yàlla fay yalla yéen ñëpp euh, sudul on se retrouve tout à l'heure en direct de Malikia TV ci li nga xam ne académie Ramadan d'ici là portez-vous très très bien avec les programmes de Malikia TV ndax ñun ñooy leeru Mawdo xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour ak kan sëriñ Seydil Hadj Malick Sy Maodo ak sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ci teewaayu sëriñ Ahmada Sy Jamil ak mbooleem famille yu Cheikh Seydil Hadj Malick Cheikh Mame Ousmane Diop responsable moral Dairatu Latif moo ànd ak waa Dairatu Latif di leen yëgal seen conférence annuelle bi nga xam ne at bu jot dañu koy amal ci kilifteefu xalif général des Tidianes loolu kañ lay doon jàpp nañu ko samedi 30 mars 2024 fan lay xewee fii ci Grand Théâtre bu Dakar lan mooy doon thème bi naka la ñu war a nekkee ci biir néegu sëy kan moo koy traité xanaa sunu responsable moral bu tedd bi muy Cheikh Mame Ousmane Diop at bu jot nag maître Ali Fall avocat à la cour mooy doon suñu parrain d'honneur bés baa ngi noonu di ci delloo njukkal sunu yaay sunu maam Adja Aysatu Acca Diagne bu maam Khalifa bajaan bés bi nag dinañ ci delloo njukkal ñaari jàmbaar yoo xam ne seen taxawaay ci lislam bi rafet na lool mooy kan Chérif Ibrahima ay Aydara Atijaani ak kan Seydina Issa Laay di doom ci Chérif Abdoulaye Thiaw Laay mi fi nekkoon xalif généralu Laayeen yi mbokk yi ñen ñooy sunu marraine soxna Aysatu Sané soxna Mariama Mané ak soxna di ci woon ak mbooleem islam bi bés bi nag dañ ciy delloo njukkal sunu baay